ban public bu exceptionnel wala mbégte koor bu exceptionnel wala boog mbégte koor mooy ban public comme looloo xew si jamono fu mu toll nii mbokk yi ñu leen nuyu bu baax a baax fépp foo mën a nekk du ñu teewlu grand théâtre la ñuy tourné tey ji euh, ban public euh, bi nga xam te nii ñu ngi koy amalee si weeru koor bi mu ñëw si benn contexte bu particulier tey jii nii lañ war a tëj euh, campagne électorale bi nga xam nii moom moo ni yóbbu si premier tour élection 2024 yi muy 24 euh, mars bi nga xamante ni si leen jëm dimanche incha allah tey jii si minuit la lépp di buur moo tax euh, bëri na ay gox euh, si réew mi campagne yi mu ngi fay fës bu baax a baax tey jii sur sur le plateau de Ban Public ñu am mbégte lool di fi dalal koo xam ne nii miin ngeen ko lool tamit si jotaay bi mais Cheikh Bara Ndiaye ñu am mbégte lool di ko fi dalalaat ñu nuyu ko bàyyi ko mu leen teg ñuy teewlu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi kontaan ci ci plateau bi. Mohamed jàlloo di nuyu ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew waaye balaa loolu di baalu àq ñëpp ci koor gi di neen yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu kooru jàmm e, te nangul ñu e, suñu koor te may ñu ci ay yiw nuyu suñu xarit yu baax yi sëñ Mansour Cissé ak sëñ Babacar Kébé taalibe Sidi Lamine Niass <laughs> ak e, Cheikh Ousmane Touré mm-hmm. nga xam ne sànq rek laay déglu benn waxtaan bu doon def moom ak euh, sëñ Babacar Mbuub mm-hmm. far nelaw après may génn ma ma ma koy ma gént ko nga xam naa li ma ko doon <laughs> xam naa li doon déglu far nelaw. <laughs> temps yi nag coono bi daa bëri nag. temps yi coono gi bëri na de. waaw damaa tëdd rek nag bi ma jullee tisbaar ba nag far ma doon déglu moom laa doon déglu far nelaw ma maa ngi gént bëri mu ñëw ñu ànd ci maa moom yorob oto paan ñi ko doon puus xaw ma daal sonn lool ci gént gi ma yeewu ah xam naa dama ko doon <laughs> dama ko doon déglu moo tax waaw maa ngi lay saare bu baax a baax di jërëjëf nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp jërëjëf am contentement bu baax a baax toogaat fii ci plateau bu am solo bi jërëjëf jërëjëf yooyu yëpp si la bokk ndaxte fu mu toll ni moom ban plus dafa am reer bu am solo boo xam ne nii saa su ne daf koy am fii nii si Grand Théâtre euh, maa ngi nuyu bu baax a baax i tamit Serigne Mansour si euh, Cissé am mbégte lool wax dëgg yàlla dalalaat la xanaa micro rek pour waxtaan bi gën a mën a neex. waaw miinul nag moo waaw mais ma lay fay bu baax a baax a baax. Euh, Mouhamed Diallo. Mm-hmm. di nuyu Alaaji Cheikh Baara Ndiaye. Mm-hmm. xaw ma ndax dem nga Makam déet waaye xam naa ne comme tudd naa Alaaji bi moom. <laughs> loolu moo ci topp ci kattan mm-hmm. suñu borom barke bi mooy nuyu Babacar Kebe di nuyu Cheikh Ousmane Touré di nuyu bu baax a baax nag le personnel technique di nuyu aussi suñu jigéen bi Sira di nuyu aussi toute la communauté de Seneweb di ci jiital sama yaay bu baax a baax a baax di nuyu tous les sénégalais d'ici et de la mm-hmm. diaspora. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax a baax kon si communauté Seneweb bi la bokk moom. ah moom moom lay seetaan. macha macha allah macha aussi bëri na ñu fay toog Babacar Kébé. waaw Mbappé maa lay <laughs> maa ngi lay fay Mbappé. gars yi maa ngi lay fay ba léegi <laughs> Mbappé moom loo mën a wax ma bàyyi la <laughs> te comme man damay jógee ji ba ci sa Kaymoor jaar ndimbu jaar Kaymoor mel na sa wax jaar Ndofane doo ko yegg si donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Cheikh Bara Ndiaye nuyu la nuyu ki nga xam ne moo di Serigne Mansour di nuyu également ki nga xam ne moo di sama sëriñ ak sama xarit Cheikh Ousmane di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ci waxtu ñoo ñuy teewlu. jërëjëf Cheikh Ousmane Touré maa lay jaar bu baax a baax a baax sanca bi rafetati na. non yow laay toog. doo morom Babacar Kébé. yow laay toog yaa ngi Babacar <laughs> mais maa ngi lay nuyu Diallo di la ziara di ziar ñi ma bokkal plateau bi di ko tàmbalee ci sa invité Cheikh Bara Ndiaye di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di am mbégte mu nekkaat ganu émission Banc xam naa bu paree dina ma firil gént bi incha allah. Mm-hmm. <laughs> waaw oto bu paan ñu koy puus. waaw di nuyu sëñ Mansour <laughs> di nuyu Babacar ak l'équipe technique di ko jaarale ci loxo Omvito borom acekey mm-hmm. li ma ci metti rek dafa indi acekey mi lekk bu mu jeex séddalewu <laughs> di nuyu sénégalais ñuy setaan ñëpp mooy ñu nekk ci réew mi comme ñu nekk ci diaspora bi di ñaan yàlla waxtaan bi yëpp nekk njëriñ ñal sénégalais jërëjëf. jërëjëf euh, Cheikh Ousmane Cheikh Bara ñu sant gërëm la parce que mbuur nga jóge mm. te it xam naa ne moom boo sañoon sax toog waaye mbirum kàddu moom <laughs> ñu sant la si baax gërëm la tey jii la ñuy clôturer campagne bi. Mm. ngeen façon ko yéene wala ngeen fas yéene defee ko si mbuur yéen a koy defee foofu euh, lan nga gis mbuur ban impression nga am si lii xew mbuur waaye tamit ban bilan. moom ngay tiire waale euh, si campagne bi nga xam te ni day jeex tey ji incha allah. bilan pour. waaw mbuur d' abord ki ma doon campagne voilà bilan wu. global non waaw bilan global. waaw après nag deuxième partie waxtaan ni ñëw nag si sa candidat. waaw bilan global bi mooy man mbuur laa jóge mhm. euh, vraiment stade ba euh, waxuma la stade bi mais li wër stade bi rek di fa nekk bu waa stade bi yëpp génnoon ñooñu bu duggee rek duñ xajuñu waaw mbedd yi buntu stade bi rek man gaaree naa sama oto dox lu lu bari doog ko mën a àgg bi may bi may bi may bi may ñëw bay agsi ci siis bi ma jox ma toog dafa mel ne ko doon sport parce que nit yu bari xëccoo da ngay mbëkkante ba sonn doog a dugg loolu moom moo fa am te vraiment euh, noonu la demee parce que tamit euh, parti fu moom maanaam ñiñ ko xaj ñiñ ko seqal ci langue gi maanaam dama jàpp ne dañoo amuñu sens daal ci election bii parce que amu ci kenn koo xam ne heure bii daaw heure bii daaw wala daaw géej rek xamoon nga ne di nga bokk ci élection ku dul parti Pastef kon donc ak ñàkk a jekku da cee am bu wér. est-ce que du contraire bi. Ah, noonu la. ñëpp ñu doon naan Ousmane moom bu ñu moytul wala Pastef bu ñu moytul moom élection yi di ñëw du si am candidat. waaye Pastef moom xamoon na ne dinañ am candidat ndax ñu ngi ñu ngi dencoon seen bakkar fegu na Thiel mais doone ma Anta Anta Babacar Ngom heure bii laa xama woon ne day nekk Sall bañ ko amnistier rek doo xam ne dana nekk mm-hmm. loolu agul daaw mm-hmm. euh, doone ma Serigne moom la doone maat euh, Daoud professeur Daouda Ndiaye moom la Idriss Seck booba Macky Sall yeeweegu ko ma nga woon mu téye xamagut ba xam day day demam du dem mm-hmm. Amadou Ba mu ngi woon ci wutal heure bi daaw wutal Macky Sall troisième mandat Mm-hmm. dégg nga Boun Abdallah Dionne ma nga woon ci wutal troisième mandat mm-hmm. ah, Aly Ngouille Ndiaye mi nga doon déglu ba xam moom la ñuy tànnam duñ ko tànn mm-hmm. maanaam daaw heure bi daaw koorug daaw mel num Pastef ñoo xamoon ne élection yi dañ ciy dem ñeneen ñëpp xamuñu ko woon moo tax élection yi man maa la jox benn affaire amul benn candidat buy gagné sa bureau de vote à part Diomaye képp candidat yëpp nag te li ma la wax li ma la wax ni mathématique laa la jox doone ma ñoom ñëpp kenn du ci gagné sa bureau de vote bu amee kenn ku ciy échappé lu tuuti te ciy tane Khalifa Sall lay doon boobu tuuti. sa Grand Yoff ak Thierno Alassane te ñoom sax. dañuy perte dañuy perte sax seen bureau de vote yi mais ñooy tane sax gars yi ci des ñeneen ñi moom gis dara. campagne yu ñeneen ñi tamit yéen seen candidat dafa dabe bu ñu koy waxee noonu dafa dabe fii ngeen dooreewoon campagne bi teene ak APES euh, waaye tam ñeneen ñi ngi doon campagne. Mhm. amoon na tuuti coow campagne tam ban bilan nga si tiré tiré de manière globale. dabe bi. Mhm. waaw dabe bi première fois mooy maanaam lépp loo xamante ne dafa am rek maanaam day am ay inconvénients yu mu lay tegal mais day am ay avantages avantage bi mooy dernier dernier ndaje bi Pastef amoon akapes la ko defee woon yaa ngi koy fàttali. Mhm. mooy bu fi Sonko defoon. ak ak yeewi askan wi. akapes la soo mhm. pourtant toog nañ at Macky Sall nanguwul Pastef réunion sax da leen ko doon aaye. tey débat sax boo ko defee ñu amoo autorisation at lañ toog dajewuñ fenn bi ñuy bi ñuy bi ñuy njëkkat bi ñuy def foofu Ousmane Sonko moo fa ñëw indi fa mbooloo bi muy wax mbooloo mi niñ manifesté woo da ngay xam ne ñii kii moo leen fa indi finalement bi koy defaat maanaam Sonko ñëwul te dafa gën a fees kon at mi ko doon xeex tas ci parti bi def ci lépp wane na ne ñoom dañ maanaam jéeg dox bi ñuy dox moom dara taxawu ci te la première fois mbooloo mu toll noonu nit dajale ko fa noppi absenté waaw bu dul mbooloo moo tas si diin bokk man seppee ko ci nga ne loolu sax affaire diine la hmm. waaye Youssou Ndour mënut a feesal grand théâtre te ñëwut Balla Gaye mënut a feesal benn stade te ñëwut futti ku bëre dégg nga keneen mënu ko Sonko nag moo feesal stade ba noppi moom dikkut te ñii ñëw ñëpp xam nañ ne du ñëw ba noppi ñoom ñu dem loolu moom avantage la boo xam ne hmm. maanaam ku xool rek da nga gis avance deuxièmement mooy ACAPES moom préfet ayewu ko kenn aayewu ko da takki rajo rek tàmbali bañ ko defeek léegi keneen ñëw fa fu bi idi dem na fa idi dem na fa idi da koo xaaj mhm. <laughs> ci digg bi xaaj da ca génne parking daal fa oto yi gaare yooyu bi idi wootee ah. hmm, daa yaraaxoon non da koo xaaj da koo xaaj ci digg bi génnee ci parking mais gis naa fa mbooloo de ah non dama ne agapes daal xëccoo ko kenn mhm. voilà mais yow yeneen kàndaay comme mbirum Diomaye moom ne signal mais yeneen candidat yi ban campagne moo la si gën a marqué si yeneen candidat yi wala yow teewlu woo si benn non man kenn du ma raw man moom loolooy sama loolooy tax sama sama sama sama affaire moom man noonu lay doxale man fii ni Sonko mën naa wax wala fii ne Diomaye gis naa ko mu def ñaari émission yoo xam ne bu teelee bi wala fajëri beeg yëpp topp tooguma ko waaye Khalifa Sall tey karawaanu ngoonam bi fii la daara ma ci rëcc amal parce comme comme da ngay wax. Mhm. nit yi ñuy def acte yi ñuy def ci ngay wax. Mhm. il faut nga koy xam boo ko mhm. dee xam rek. mi ngi mel ne yaa ngi liir téere yi yaa ngi def lépp. dégg nga campagne nag maanaam ban candidat nga wax moo ma ci marqué. waaw Anta Babacar hmm. mi ngi campagne waaw yor na oto yu baax wër réew mi <laughs> ah, waaw yor na oto yu baax. fekk na ma nguma ngéewu romb ma hmm. gisuma sax mais oto yi baax na cortège bi mag na. Hmm. ba pare wër na réew mépp te boo ko doon xool élection yi du du doone moom faveur la mhm. mais da xam ne li mu war a def yëpp mi ngi koy def def na ko vraiment man kooku moom marqué na ma ci mhm, d'accord dégg nga mais à part ça nag lu bari li ma marqué ci élection yi mooy man Amadou Ba gisuma mu def benn action parcelle lu tax c'est vrai question lu tax mhm. parcelle mooy sa mooy sa safe foofu nga war a xëccante pour gagné ko ba pare. Hmm. wala nga gagné ko bureau de vote activité bi yëpp dafa jaarut parcelle. est que jàppul ne foofu mbokk na ba pare kon soxlawul mu fay jël temps bu bari. mënut a mokk ba romb ni su ni ni ni ni ni ni Sonko mokkale Casamance. metti fa la tàmbalee parce que mooy saison. mais Diomaye itam di nga posé wu question boobu ci moom de. ah ma ne Diomaye aussi nga mbuur mi waaw mbuur la quoi c'est que mbuur moo ëmb njaga ñaaw Diomaye nga mbuur mi ah? hmm. ma ne tey démb lañ mitin njaga ñaaw pour hmm. préparer kaar yeeg lépp ñëw mbuur hmm. Diomaye nga mbuur njaga ñaaw dafa tuuti ci Diomaye mënu faa dem di fa di fa def dara njaga ñaaw tul sax téeméeri ba pare njaga ñaaw si département mbuur la mbuur ci département bala dem def ko fa dégg nga gisuma mu lu mu def parcelle dafa boykate parcelle donc kon lan la dégg nga Salit su ma ko seetloo man Grand Yoff gisuma fa lu mu fa def. mais mën na jàpp nañ tamit foofu mbokk na. waaw waaw. li ma ci gis mooy man damaa gis ne euh, parcelle moom Amadou Ba dafa ñemewul maanaam booy yi ëllëg bi ñuy daw moom boo fa demee moom boo moytu maanaam dañ la fa ëpp doole ëpp doole goo xam ne moom maanaam dangay dem jéem a dem ay resaato ak yooyu lijjanti ji waaye. Dakar sax yow dox fi ba da gis fi mitin bu Pastef organisé wu daanaka yomb. d'accord biñ ne bërit karawaan la ñëpp songandoo boo ko seetloo. waaw mais biñ defee trois jours dañ ko ne tegg ci suuf. Khalifa Sall ba tey jii laa koy doog gis mu def karawaan tey dañuy def ay visite de proximité dem marché wala dem ci benn association wala dara taxaw fa wax. que koor gi moom sëñ bi ngëm-ngëm mooy tax nit ki woor ba noppi ñëw di la topp topp la Sonko mi koy def da ngay gis day mitin trois heures du matin démb sept heures mi ngi ma fekk maa ngi toog Thiès sept heures sept heures soo fekkee na Sonko nekk ci kaw pont Ndar bi di mhm. di jéggi di dem di loolu militant bu la koy defal du trois mille kooku moom da nga yokk prix bi <laughs> gars yi mën nañ laa jaay bëccëg gi mais mhm. jaay la guddi gi moom mënuñu ko tey nag Khalifa Sall def na benn karawaan boo xam ne am na style bu mu def mhm. mooy dajale ay xale yu jigéen sol yére yu koor euh, kaalawu kum ah. noonu. am na lu ma jaaxal tamit waaw muy. Euh, bi ñuy tàmbali maanaam quatre cent personnes mat nañ ko mais bi ñuy jeexal matatuñ quarante <laughs> man loolu jaaxal na ma. mooy nan nga mën a en tant que Khalifa Sall nan la mën a programmer quatre cent personnes ànd ak ñoom plus de trois heures de temps ngay wër Ndakaaru te kenn maanaam ñeneen fekk si wuñ ko. Sonko bu wutoon cinq cent personnes solal leen ay tiset wala ay ay jàllaabi suñ génnee maanaam yeneen quatre cent yu leen gën a bëgg Sonko ñooy ñëw bokk ak ñoom kii bi mais rang gi moom kenn yàqu ko ba tey loolu dem loolu loolu ay ay kii la ay mandaxe la Idrissa Seck moom gis nga ko non moom Déthié Fall la ko coup d'état moo ko boo ko seetloo dëgg problème Idrissa dëgg dëgg dëgg dëgg ko Déthié Fall la base bi yëpp Déthié ko jël fi Idri daan dem mu xubbu Déthié fay dem mu xubbu waaw ah, am na sax ñu doon wax ne pare na. base de données bi moom la Déthié récupéré def ci ay parrainage. <laughs> ah waa réew mi daan nañ ko ko xotooñ. waaw na Déthié seen base de données la récupéré. waaw da koo kudat loolu moom boo ko seetloo rek rek di topp Déthié Fall da ngay xam ne Idrissa la Idi moom moo jàppul ci dara. Pape Djibril Fall tase ngeen. Pape Djibril non tase wuñ fenn. Hmm. mais maa ngi koy siifur. Hmm. mais Pape Djibril nag moom. woote na débat de. waaw mais miti na gën a yomb débat. Pape Djibril mooy politicien boo xam ne ba mu tàmbalee léegi benn yoon la mas a mitin seen buntu kër la ko defee caajaay defaatugu ko feneen bëri nag roi des arènes nag kii doogat bëri tey nag mënuñoo bëri nag wax dëgg yàlla loo bëgg a bëgg bëri bëree ak moom nag vraiment ñëpp ay candidat la non dafa am foo war a jaar mais Diomaye ak euh, ak Pape Djibril Fall mais débat la ñoom ñaar pourquoi pas Pape Djibril ak Anta Babacar Ngom débat la ba tey mais Pape Djibril Fall sax am na ñu rawee ñoom jomaay parce que Pape Djibril Fall boot na listam dem assemblée nationale. waaw Bassirou dem dem ñaaw te ni seen gañe ko. mais mais fàtte ne Diomaye Diomaye moo nekkoon onzième personne. si nationale ci liste liste nationale. titulaire ay suppléants am ñoo dóor waa Benno Bokk Yaakaar da ko fàtte. mais nag ñoom ñaar débat la mais su pléant wu jomaay ñoo nekk ensemble di ko toj ñii di jomaay dañoo dañ ko maanaam da ngaa jël équipe équipe nationale du Sénégal def onze jours teg dégg nga jëlaat yeneen onze jours yoo xam ne ban lañ war a toog far ñu ne ñii équipe bii dañ leen a suspendre maanaam ban bi ñëw gagné kon kay ñëleen moom bu ñu ñëwoon dañuy rey ñi. mais loolu nag Sonko loolu nag Sonko la du Diomaye ah. Ah. loolu nag Sonko la du Diomaye. Diomaye yeggul ci biir de. d'accord. at ban candidat Daouda Ndiaye moom seenoo ko fenn moom. Daouda Daouda waaw mi ngi mi ngi doxal de. Hmm. moom itam vraiment comme kuy doog a ñëw en tant que kuy doog a kuy doog a débuté hmm. man gis naa ne mi ngi def ay ay ay kii daal. docteur Boubacar Camara. Boubacar kamara nag ak ak Mame Boye Diao man jàppoon naa ne xaw ma nag seen resultat ci ci wat bi de. Hmm. mais jàppoon naa ne ëpp nañ doole ñii daal. gënoon naa. xaar ñu ñu gën a tàng daal. d'accord xaw ma nag koor gi lan xaw ma bettaat affaire bi ni leen bette la xaw ma qu'est-ce mais boo seetloo. Mm-hmm. niveau bi ñu waroon a toll ak ak ak même même Boun Abdallah Dionne. Mm-hmm. boo xoolee. kii wul daal bun moom bu ñu def. ñu doon xaare daal. tey bind na communiqué sax vingt appel au sénégalais ak yooyu bind na communique moom tey. Mm-hmm. ah communiqué la def tey. ah mënoon nañoo vocal ñoom gars yi yu bëri dafa doon nañoo def vocal. <laughs> <laughs> d' accord Cheikh Bara naa ñëwaat si yow sëñ Mansour Sy Cissé micro bi encore ban naa ngay tirer si campagne bi nga xam te nii tey jii lay jeex. bon de manière général mhm. mën nga ni campagne bi def nañ ko ci ni ko la majeure partie des Sénégalais doon xaaree à part quelques cas de violence comme à Sibassor comme à Kaffrine. Euh, ak fan encore je pense que mooy ñaari. waaw Daaru Moxti. Daaru Moxti surtout. Hmm. loolu xam naa Cheikh Baare moom foog mu wax ci. parce que hmm. aussi tamit il n'est pas indiqué que ni yow boo duggee ci dëkk am ñu jàpp ne foofu seen titre foncier la. Hmm. mu jaral ne ñuy dóor ay sox xaaju guddi. loolu man très honnêtement le procureur qui est compétent à la matière devait naturellement ouvrir une euh, benn information judiciaire parce que campagne électorale tekkiwul ni la justice Mm-hmm. léegi campagne bi boo koy analyser. Mm-hmm. d' abord euh, di nga ne da nga koy def ñaari pàcc. pàcc bu njëkk bi mooy la campagne quand a été hésitante parce que après le report de la présidentielle da ngay gis ni. Mm-hmm. candidats yi ils étaient un peu groggy quoi c' est comme par exemple la liste de Yewwi Askan Wi. bi nga xam ne dañ ko invalider. boo xoolee Yewwi toog na un mois yoo xam ne def toog na une semaine. doog a door. Mm-hmm. naturellement seen campagne. Mm-hmm. parce que le début de la campagne coïncidait avec euh, la tabaski. Mm-hmm. c'est vrai. donc Déthié Fall ci boppam moo defoon itinéraire tracé bi nga xam ne foofu la ñoom Sonko waroon jaar. OS il a démarré à Ziguinchor def fa pak après génn. donc ils ont fait trente neuf départements sur les quarante six. donc ñoom bi Macky Sall ñëwee ak élection yi ak date yi ñu ci jot a wax. yaa ngi dégg. Euh, nga xam ne c'était un peu élastique tiré sur jusqu'au 15 décembre da ngay gis ni campagne bi ni mu waroon démarrer démarré wul loolu noonu donc euh, démarrer déma démarrage bi c'est comme à l'allumage quoi c'est-à-dire nga mhm. xamante ne ndànk-ndànk la démarrer. léegi ba pare am ñuy dégluwaale cour suprême. dégluwaale cour suprême. Mhm. donc gars yi dañu démarrer rek. mais ba tey il étaient pas à fond. c'est vrai du démarrage loolu. tous les dix neuf candidats da gis ni seen état major yi mhm. da nga koy sentir sur le terrain amoon na sikki saaka tuuti quoi léegi nag li mayee essence laay jël ci campagne bi mhm. mooy la libération du ticket présidentiel Pastef à savoir OS Bassirou mhm. ñoom ñaar bi ñu génnee ci la affaire bi am nag emballage yaa ngi dégg donc dañu génn rek ils n'ont pas perdu du temps parce que ils savaient que le temps était raccourci pour qu'il fallait faire le maximum de département donc boo xoolee pour être plus efficace à l'étape de je pense Kaolack mhm. fi la ñaari candidats yi séddoowee dëkk bi maanaam séddoowee en fait di des ci Sénégal mhm. je pense non maanaam boobu après ñu tase Kaolack après ñu tase Kaolack mhm. voilà n'est-ce pas Kaolack lañ tasewaatee waaw dañoo tas après ñu tase Kaolack defe naa Kédougou xaw ma lañ. lañ taxalikoo côté boobu lañ taxalikoo waaw. mais Kaolack sax après Kolda defe naa leen taxalikoo. Kaolack ba léegi dajawaatu. ah dajawaatu na. Ah. xaw ma ku def tracé boobu. Mhm. mais il est intelligent. noo xam nga tracé boobu moom li mu gën a jëriñ. Uh-huh. mooy démb. Uh-huh. ak tey par uh-huh. exemple. Pastef day xëy produire huit événements Amadou Ba produire deux. waaw xaw ma ku def tracé boobu. xoola démb mais c'est efficace. Diomaye def na def na Linguère noo barki démb. dafa def Bambey. Diourbel Mbacké Daara. koo def Kébémer ah, def Pire. def Louga ah, def na Pire waaw ah, def na Louga def Louga def Ndande. d'accord ñoom quatre quatre effectivement la ñuy produire ci génn benn benn bis. ñeem adversaire yi ku ne benn Amadou Ba ñaar ñaar lay mën a. mais ñoom finalement def nañ fépp. ah parce que Dakar xam nga ñoom Dakar la ñu commencé. Dakar la ñu tàmbalee waaw vendredi dernier ay la mhm. conférence de presse. Mhm. Mhm. moo tax. ils ont préféré rester soixante dix kilomètres de Dakar. bon au moment où Amadou Ba était à la place de la nation te foofu bon. y a à dire et à redire hein, parce que man mbooloo mi ma fa doon yaakaar dafa mel ni est-ce que oto yi ëpp ñu nit ñi ah, foofu laa jaar. jii nii waaw est-ce que oto yi ñu nit ñi <laughs> mais bon on verra dimanche. loolu la fa nekk kay wax dëgg yàlla moom Pape Djibril sax mën naa ëpp mobilisé. man wax dëgg na yàlla fa laa jaar yi nga ne très honnêtement. maanaam maanaam maanaam euh, sur investiture Bougane la <laughs> mat na ko ñaar. man fa laa jaar. ba ñett sax sëriñ bi <laughs> jomm naa di wax loo xamante ni amul donc de manière général mhm. Euh, di nga gis ni campagne bi d' abord comme ni ma la ko waxee ci tàmbali bi c' était hésitant après mu am emballage en fait ça s' est emballé quoi. Mm-hmm. léegi nag boo jëlee profilu maanaam boo jëlee élection bii. Mm-hmm. man jàpp naa ne élection bi mënoon nañu ko def mille vingt et tax mais Mouhamed Diallo li ñenn ñi doon bañ ba tey c' est le prolongement moom la Sénégal di dund mooy dualité entre Pastef. ak benn bokk yaakaar election yi mënoon nañu ko def bi ñu génnee ci événement mars 2021 ñu def élection yi sëriñ bi loolu moo cest à loolu moo am quoi au fait mhm. on a essayé de créer des candidats satellitaires à travers les officines du pale am na ñoo xam ne da ngay xam ne ñii dañ leen a ngem pour ñu jéem a wàññi doole Pastef mais dañ ko renforcer finalement xoolal bu baax li ma la wax aujourd'hui maanaam discours bi pas bi Pastef waroon am la coalition Diomaye boo xoolee Benno moom la am nañ fexe dem deuxième tour. Mm-hmm. mais Pastef aussi bi Sonko Diomaye génnee. Mm-hmm. est-ce que ñoom tam yékkiwuñu tuuti Amadou Ba parce que moom lañ attaqué mais bi ñu attaqué Amadou Ba. dañoo dafa taxawee taxawaay foofu très bonne nga man li ma jàpp. oui mooy Amadou Ba dafa war a dem sax sant Ousmane Sonko c'est-à-dire bi ñu koy lancé ay pic. Mm-hmm. Amadou Ba doon gagné en visibilité. man gëm naa ni am na sénégalais yoo xamante ne. ñu ngi commencé seetaan vidéo Amadou Ba le vendredi bi nga xam ne Ousmane Sonko nee na Amadou Ba yàgg naa jël ma ne ko tegal fii parce que pour de raisons de contrebalance de check balance. Mhm. pour des raisons d'équilibre bu di bu A waxee. wala déglu bee mhm. c'est doo ñëw analyser. Mhm. donc attaque yi ñu ko doon def man il a gagné en visibilité. est loolu moo tax nga gis benn candidat buy woote débat sax finalement. ci beneen ci beneen ci beneen wàll gi. Mm-hmm. loolu question la boo jëlee par exemple wax na ko Anta Babacar man jàpp naa ni Anta Babacar mooy li ma leen waxoon rek. Mm-hmm. bu ndengaleer affaire ndengaleer bu amul woon Anta Babacar Ngom du am. parce que l'affaire Ndengler. Mm-hmm. ak nit ci Bassirou Diomaye Faye taxawee c'est sûr que ni papa ji. su maanaam dénouement bi ci am gënalu ko. te bu génnee yi mën na koo saraxe. mu yebal doom ju jigéen sachant que aussi en Afrique au Sénégal plus particulièrement dañuy am benn genre euh, yërmande ci jigéen mu ne ce sera moins grave pour moi mu yónni doom bi daaw na Njaay aussi. mais boo xoolee réplique bi ko Anta def nee na ko sa mag mi ngi liggéey si tool ya. sa mag ban nee na magu Bassirou Diomaye mi ngi liggéeyee sa tool ya. mais sëriñ bi xam nga ñun amuñu. waa moom tamit dafa mel ni jéem na hmm. dugg si maanaam duel boobu. Hmm. Anta mi ngi travail dugg si duel boobu non gis nga. parce que mi ngi attaqué Diomaye pour ñu koy tuddaale. waaw mooy non li ma la wax. Hmm. c'est-à-dire aujourd'hui Diomaye bu la attaqué tu gagnes en visibilité boo ko attaqué yow aussi tu comme le disait Babacar Justin Ndiaye. sur Ousmane Sonko. ñaari côté yoo ko mën a jëlee Ousmane Sonko il tient le haut du yaa ngi dégg. Mm-hmm. bon mën nañu wax ci euh, kii ni ñu koy waxatee. Hmm. wala dama leen di boole ku mel ni par exemple Boubacar Camara. Mm-hmm. ku mel ni Daouda Ndiaye. oui ku mel ni sëriñ Mbu. Mm-hmm. ak kan encore. Mam Boy wala boole woo ko Mam Boy. ak kan Aly Ngouille boole woo ko si. Aly Ngouille. Malick Gakou da nga ko siy boole. Malick Gakou. Pape Diourif Fall da nga ko siy boole. ñoom ñëpp. ñooñu noonu say woowu. waaw li ma leen di wax mooy. am parrainage tekkiwul ne da mën a drainer ful mhm. tekkiwul parce que ki lay parrainé xam nga parrainage mhm. ñëpp xam nañ ne dañu ne au minimum sur sept huit région nga am fa deux mille deux mille waaye mhm. mais il n'est pas dit ni yow am nga par exemple les épaules de l'Alizé maanaam am nga dayoo bu lay permettre tey deux mille yi nga xamante ne ñoo la parrainé Thiès boo wootee Dakar deux mille bi ñuy ñëw tekkiwul loolu mooy li Cheikh Bara doon wax sànq tekkiwul nii aussi tamit boo wootee Thiès Ziguinchor loolu mais bu oto yi ëppee nit ñi tam ça pose problème ah man de am na loo xamante ne moom romb naa léegi question man impression boobu laa am te dangaa laaj donc te dama laaj te ñoom dafa mel ni ak waa boor bële ñoom jàppoon nañ ñoom ñoom moom Dakar ba pare aussi man affaire bi peut-être ils ont essayé de fair dans à, à travers le directeur de campagne ñu ne par exemple Moussa Sy il va gérer les parcelles assainies mm-hmm. mais présentement nii en termes de personnalité politique Moussa Sy ne pas être une identité beaucoup plus remarquable que Amadou Ba. Mhm. parce que tey Amadou Ba tu imagines tey il perd son bureau il perd son centre de vote. symboliquement ce serait euh, voilà ouais, un coup dur symboliquement parce que ñun li ñu annoncé woon ñun waa Parcelles Amadou Ba dafa waroon ñëw jeudi man loolu laa jàppoon in fine il ferme la campagne <coughs> zone boo xamante ne bii. il n'est pas représentatif là-bas il n'est pas originaire là-bas xam nga par exemple bu nekkoon dafa dem euh, Grand Dakar sax bon tu vas dire que pour des raisons nostalgiques et cetera affaire yooyu mm-hmm. mais il est là ici à Colobane moi je n'ai pas compris yaa ngi dégg bon yan candidat ñoo ci desaat Khalifa euh, Sall xalifa Sall en fait c'est-à-dire Khalifa bu fexe woon ba la filière électorale traditionnelle socialiste au mhm. maximum mhm. mu puiser ci lu baree bari bari bari xalifa xalifa pourrait être un faiseur mais jàpp naa ne aussi tamit élection yi du élection parce que on aura beau refuser ça mhm. mais élection yi mooy élection yoo xamante ne bi c'est le prolongement d'une dualité entre Pastef et benn Bokk Yaakaar ak ñaari candidat yi bëggoon retiré ñu ne ñu lànkal leen ko Cheikh Tidiane Habib si waaw am na ñu wax ni. Mhm. dañoo respecté wul les 72 heures le délai de 72 heures. Ah. dañ ko war a respecté am na ñu wax loolu. loolu moo tax la conseil constitutionnel à refusé man am na ku moo wax loolu. d'accord qui est dans l'administration judiciaire. Mhm. léegi nag euh, kan moo ci desaat encore ci candidat yi. Euh, defe naa wax nañ daanaka wax nañ ñëpp ah. mhm. Idriss Seck Idriss Seck. chef de l'opposition non Idriss moom. moom xam na ni du am lu bari. ci élection yi non Idi nag war ñu koon fàtte ah. très honnêtement non moom. non dama lay laaj yow wax ma ban effort. non faute grave la ñu def nii faute grave la wax ma ban effort la def. déployer ko sur le terrain. bu lay permettre yow en tant que journaliste nga xam ni kii jël na élection yi au sérieux tey man je pense que il euh, Idrissa Seck il est venu pour jouer en fait les seconds rôles de cette présidentielle les gens parlent moins en moins de lui man je pense que Idrissa Seck a été victime de son entrisme en novembre 2020 mm mm-hmm. peut-être bu taxawoon positionné wu en rôle de vigie mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. wuyu véritablement son nom du leader de l'opposition mm je pense que ne il aurait gagné en nora mais defu ko dafa dugg génn te génnaalewul dara poste premier ministre bi rëcc ko en un moment les gens pensaient que ni sax. Mhm. Macky moom moom la waroon investir. Mhm. est-ce que loolu la doon négocier finalement il perd le de premier ministre. il n'est pas le leader de de de, de comment encore il n'est pas le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. donc ba pare aussi tamit ci diggante bi gis nga li xew. ñi ko gënoon jege dem nañ seen yoon. yaa ngi de il n'est plus le personnage. il est toujours charismatique mais attractif quoi mhm. xam nga waaw avec des offres nouvelles donc euh, Idrissa Seck c'est morfondu dans je sais pas comment on l'appelle ça encore mais daal de toute façon du Idrissa Seck bi nga xamante ne moom lañ doon gis en 2007. à Thiès. Mhm. parce que xam naa ne ku fa miin nga. Mhm. docteur Babacar Diop mi ngi foofu Birame Souleye Diop mi ngi foofu Thierno Alassane Sall. mi ngi foofu. Idrissa Seck mi ngi foofu jàpp nga ne mën na euh, jugaat à si présidentielle bi. no xam nga d' abord man dama gëj a gis en animation d' envergure bu réew mi def ci wàllu politique dama ko gëj a gis très honnêtement bu doon élection yi. duñ fi toog di wax ay wax Idrissa Seck nañu wax ne dëgg quoi au fait. Mhm. Idrissa mi ma xamoon ak jeunesse bu dynamique bi mu amoon. 500 mhm. cadres yi mu amoon kañ nga gëj a dégg ñu toog di waxtaan ci lu jëmale yaa ngi dégg réew mi kanam kañ nga gëj a dégg Idrissa Seck jël position. sur ce qui s'est passé ces quatre cinq dernières années génne ay communiqué mhm. wax mhm. def sorti mais loolu gëj na am mhm. te idi am na ku ma wax ne ma bon aussi dafa am ku ko waroon jox xaalis joxu ko ko mu toogoon di ko xaar ay calcul am faussé tamit mu ngi ci Pape Djibril Fall wax nañ ko <laughs> waaw waaw ngi woon si loolu non man pur moom ñu baal ma tam fàttewoon man pur man jàpp naa ne daayira la quoi te parti daayira bu gagné élection <coughs> seen leader bi wax ko ne yum léeg-léeg mu envoyé ma message ne ma lii lañ bëgg a def ma ton ko ne ko defal lii léeg-léeg mu envoyé message du ma ko ton parti du doxee ci humeuru benn nit mais yum tam nee na réew kenn ko dénk koo xam ne nii da ngay incarner leneen lu dul yow loolu mooy lan mooy par exemple ay Sonko deful politique ay Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko pur pur deful politique dañu waxante dëgg rek man pour man pur pur hmm. peut-être pour faire da nga naan parti la boo xamante ne dafa il est sorti des flancs ou bien du flanc d'un daayira autrement dit pur daayira la loolu laa jàpp Babacar ban bilan nga tiré ci campagne bi waaw xam nga Mouhamed xamee mel ne da ngaa jël note de bu baax. waaw bu yaatu sax xam nga bu nga doon wax waxu campagne bi tey. mën nga mhm. ko teg daanaka ci benn li ñuy woowe benn examen. Mhm. mais da ngay jël examen bi nga def ko nga def ci sujet. Mhm. mais ci biir sujet bi di nga ci def li ñuy wooye benn angle de traitement. angle de traitement bi moom laay alloué exactement ñenn ñi nga xam ne peut-être am na lu ñu jàppee woon campagne bi. te véritablement campagne dalay jox benn charme boo xam ne. au moins mën na plonger nit mu am sentiment wala pressentiment que que may déglu kii wala ma dem bokk ak kii. Mm-hmm. mais moment bi ngay xool campagne présidentielle bi ni muy demee. Mm-hmm. dafa mel ni mënoon nañ ko natt déjà comme ci ni ko kii comme ci ni ko Mansour waxee. mooy ci bi ñu nekkee ci élection législative yi man du wax élection locale mais presque ci élection législative laay wax. Mm-hmm. mais tey représentativité bi ngay gis bu fekkoon ne fuul mooy fal. parce que dalay leer na su boobaa mën nga bañ a yegg daanaka ci réalité bi mais Mhm. pour au moins nga mën a wax que ne diw sàngam ak diw sàngam day leer na ma ne lu mu gàtt gàtt gàtt war nañ mën a am position yi mhm. donc ça veut dire natt bi nga xam ne jot naa taxaw déjà au début dafa am loo xamante loolu lay définir mhm. mais leneen li mooy que benn jour dañoo toogoon ma lay wax na la politique Sénégal depuis presque quatre ans à cinq ans que ñu bañ ko ñu nangu ko il y a des politiques nanguñ ko wax ci kàddu waaye ci doxalin ñu ngi wane xam ne peut-être moo Ousmane Sonko génnagul waaye jox na benn méthode de politique par rapport ak ay nitam yoo xam ne. Mhm. ñoom ci seen jëm bopp bu ñu amoon opportunité yi. Mhm. ci noonu la jàngee pour définir la politique. Mhm. lan moo koy définir. da nga toog gis Cheikh Bara Ndiaye mu yenu fan yenu ruq bi nga gis keneen mu yenu ruq bee nga gis keneen mu yenu ruq bee loolu calcul bi da nga koy teg ci à la base fan la jógee mooy. tant de jours la ñu am et on est dans l'obligation de sillonner le Sénégal pour mën a lenn li léegi bu fekkee pour da nga bëgg a matal boobu noonu. il faut nga teg stratégie yoo xamante ni moo lay permettre avec le peu de temps li nga am ci nombre de personne nga mën ko profiter pour mën ci gañawaale déjà. mais boo ko balaa ngay dem. waaye journaliste bi laay laaj foofu. Mhm. lan moo tax ñu bari bu ñu bëggee ku leen couvrir ñaare dañuy fay lu bari wala nangam mais ku mel ni Jomaay. Mhm. wala Sonko. waay dañuy da gis li koy topp si ay site ak nangam buuxante bi day bari live yi bari pourquoi. Euh, xam nga. waaw <laughs> non non yow boo bëggee wax Babacar lay nopp <laughs> tontu après moom. <laughs> d' accord non mun naa bàyyi mu jiitu ba mais xam nga foofu lan ñaar la lay jox. Hmm. xam nga ñun dañoo nekk ci média du ma weeraale ñëpp nag mais par exemple boo ko xoolee bu baax ñeneen ñi dañuy nekk dans l' obligation yow bu ñu la fayul doo dem mais kële parfois yow sa visibilité dafa am lu mu tenir te pour yow nga mën a téye sa rythme de visibilité ci nit ñi. tu es de suivre exactement pour mu mën la jox. parce que question d'audience quoi. parce que audience bi mooy maintenir exactement ñu ñëw di la topp tu t'imagines une semaine yow ci biir campagne bi Diomaye Faye fayut la demoo fa en terme de visibilité sa chaîne nan lay demee exactement soo bëggee amaa relève bi pour mën a jugaat ci ñeneen ñi problème dëgg moom ngay am léegi nag par rapport aux autres ñoom ci seen jëm bopp dalay leer na tey bu fekkente ni fay ñu la quelle que soit la régulation bi nga xam ne jëm nga ko chercher tu es obligé yow tamit leen fa dem que am na ñoo xam ne fay ñu amuñu ñu leen topp am na ñoo xam ne comme ñoom amuñu benn nit koo xam ne da dañoo choisir benn candidat pour mën di ci gagner hmm. parce que en terme de visibilité non seulement di nga am loo am mais tamit ci sa chaîne YouTube paiement bi dafa am loo xam ne moom lay indiwaat en revanche <coughs> am na ñoo xamante ni ci élection présidentielle bi la ñuy seen record de nombre de visibilité ci live mais amewuñ ko ci keneen ku dul kenn parce que ñooñu moom laa la wax na la keroog a ne dafa am benn mbir boo xam ñoom dañ ko comprendre mooy en terme de res maanaam en terme ci loo xam ne fu mu toll ni tembe dañoo yeey nga xam ne ay nekkoon ci déjà parce que da nga daan bàyyi xel que ne Ousmane Sonko bu daan def euh, parfois live. Mhm. ci Facebook nga ko daan natt. mu daan dem ba ñu naan tey battre na record Facebook parce que dañ ko daan ne di. screen eh, léegi nag gars yi ñu ngi battre ay record de léegi gars ay cinquante mille la ñuy la loolu moom xam nga du ci tontu ndax yaa ma gën a xam fi mu jógee. gisoo non moom ma ne yaa a gën a xam fi mu jógee xam nga ku toog di la wan live 91 cas en direct live bi jeex nga gis ko mu nekk 88 cas kooku il faut nga interroger wu. mais laay véritable bu toll ci 91 Om Siteu mi ñi wala ñeneen ñi seetaan ñoo ñu gën a xam xanaa au moins di nga taxaw sax que ni bu amee 24 heures dina taxaw ci 300 wala 400 nombre de vues mais nooy def très bien mais nga am 50 cas en direct le lendemain ñu xool sa live mu toll ci ay 110 wala 88 ça veut dire que ni booster gi Dame Mbodj doon wax démb mu ngi am ci ñenn ñi koy def. d' campagne bilan bi. waaw te bilan bi instant bi ñu toll nii lim lay wanal lenn la mooy maa lay wax ne la angle de traitement bi nga xam ne jot naa taxaw. mais mhm. tey jii dafa am loo xamante ni loolu lay symboliser. mooy que ñu baree bare ci ñoom tey jii les gens sont capables déjà de tirer un bilan. parce que mhm. dimanche ci heure bii nii wala dimanche à de 15h wala 16h. Mhm. da ngay defaale déjà mooy projection ngay jëlee ji à li nuyoo woon que ne maître Abdoulaye Wade la mu daan dajale ci ay mbooloo problème la daan am parce que déjà il faut nga fàttali seen meeting bu mujj biir Dakar fii on avait dit ne carte gi jeex na amatul lu ñu nekk di calculer mais bi ñu commencé génn résultat extérieur loolu ci jëm moo doon wan que ne biir Sénégal lan na ci extérieur dina am benn projection boo xam ne moom lay lancer walla à l'intérieur du pays c'est-à-dire que mën nga am capacité di réunir en tant que ku a man a xaw a nekk lu may bàyyi wàlla xel te nit ñi tamit parfois duñ ciy wax lu bëree bari mooy Déthié Fall parce que dama ci buggoon def benn point bu ndaw pour taxaw ci. oui parce que gis nga Déthié Fall boo ko xoolee ba stratégie de campagne dafa xaw a wuute xam nga ñeneen ñi newoon naa la dinañ am problème pour mën a génn dem campagne parce que li ñuy jii yenn ci Sénégalais yi moo tax ñi ragal gàcce dëgg te xam ne gàcc da leen ciy fekk ñooñ génnuñu dañoo def port à maanaam dañuy ñëw fëgg nuyoo woo la l'avance pour mën ko def. parce que dañuy xel ñaar que ne bu ñu ñëwee à l'avance lu ne mën na leen cee fekk ñeneen ñi nga xam ne xam nañ seen bopp ñoom dañ ko téye d'une autre manière léegi nag Déthié Fall boo ko xoolee ne kii ak fenn foo mëntu dem bu ne te politique base daf ci am solo mooy que ne ki ngay teg. ba pare hmm. baax nekkatul ku ñuy jàngal yenn yi ci bëree bëri. Hmm. ndax très bien ndax ingénieur polytechnicien voilà mais boo xoolee seen passage ñoom ñëpp ak ni ñu doon def moo tax ma yaakaar que ne ci élection yi bu dee ne surprise dina am véritablement ça être la personne de Déthié Fall parce que non seulement il a organiser les choses de manière boo xam ne moo ko may passage gi mu am ci biir électorat bi ñu doon wax ci wàllum passage li nga xam moo di parrainage bi te ci biir parrainage ba mu jeexaatee dafa solaat ay dàllam encore génn am loo xamante ni yaakaar na ko mais avant yaakaar bi également liggéey na loo xam ne au moins leneen li ci tegu nag mooy que ni comme ni ko ñëpp di gisee quand on parle de Ousmane Sonko parlant également de Diomaye dalay leer que ne ni yaa dafa am benn circuit machine boo xamante ni moom la ñu teg catégoriquement te ci machine boobu noonu ni ñu ko tegee déjà mooy da jiital daanaka ci benn mooy yeetal bi dafay taxaw ba pare regroupement bi dafay taxaw mais su boobaa tamit ñoom projection la ñuy wuti jiwaat. d'accord te loolu boo ko xoolee da koy da nga koy taggee ni comme lamb ju tas rek. d'accord euh, Cheikh Ousmane maa lay maa lay maa lay jaar. ban moom ngay euh, euh, tirer. Euh, si campagne de manière générale mais la capacité aussi de démultiplication bi nga xam ne moom la Diomaye amoon te ñu bëri amuñu ko. loolu si la moo ko expliqué par exemple benn Cheikh Bara Ndiaye boo xam ne ni mun na jël caravane boppam jël benn axe ba keneen jël beneen axe keneen jël beneen ak coalition bi ni mu kiiwee. qu'est-ce qui a fait la différence par rapport ak ñeneen yi ak tamit bu si boolee couverture médiatique bi nga xam ne ni aussi nemmeeku nañ ko si. waaw xa nga élection yi bilan bi ñu ciy njëkk tiire mooy Sénégal moom politique doonatul lam doonoon. sénégalais yi comprendre nañ ndax avant élection présidentielle foiru politicien la woon maanaam foiru kan moo dàq nax sa morom. Mhm. ku ci nekk ñëw ci sénégalais yi wan la ni man maa la dàq nax embobiner na sénégalais yóbbu leen. élection yi nag dafa wane ne sénégalais non seulement yeewu nañ ci loolu waaye xam nañ enjeu wu élection présidentielle yi rawatina yu 2024. Mhm. moo tax boo xoolee homme politique yu bëri dañu am problème ci terrain maanaam problème mu exister. problème mu mën a génn sénégalais yi topp la problème mu mën a génn jaay sa discours wala wax ak sénégalais yi ñu déglu la soo xoolee ñaari homme politique ñoo monopoliser terrain camp wu rupture incarné par le candidat du PASTEF à travers coalition Diomaye muy basiru Diomaye ak ñi màndal beneen bi mooy camp wu continuité Amadou Ba ko incarné ak ñi màndal diggante boobu Diallo om politique bu ci bëgg exister exister wu mooy troisième fois bi ñu doon jéem a wane amul Diallo parce que sénégalais dañ jàpp ne soit ñaaraam danga ànd ak ñi fi nekk bëgg continuité wala da nga leen contre bëgg rupture léegi nag yow bu ñu la gisul sa discours leer carrément ne lii moo la tax a jóg du ñu du ñu du ñu adhéré ci sa cause la preuve campagne bi ñaata candidat ñëw attaqué candidat pouvoir bi à part Bassirou Diomaye lu néew la. mais ñeneen ñi jomaay la ñuy attaqué. mais élection présidentielle xanaa candidat wu camp du pouvoir opposition moom la ñuy attaqué mais attaqué wuñ ko. jomaay day attaqué Amadou. jomaay la ñuy attaqué ñeneen ñi attaqué jomaay. moo tax mais stratégiquement ça se comprend. moo tax sénégalais yi jàpp ne ñaari camp la rek. Amadou la ñi feeñ ak ñi nëbbu. Mhm. jomaay la. mais mais Cheikh man su ma bëggee bokk si coow li aussi. man su ma bëggoon léegi am riir. damay jën si ma jaay man ma wax dara si Cheikh Bara Ndiaye ñëpp bind Mouhamadou Diallo tàkk Cheikh Bara Ndiaye ma am riir. waaye boo waxee ba riir gi ñëw comme ça ma xeexee doole Cheikh Bara Ndiaye. boo waxee ci Cheikh Bara ba riir gi ñëw. waaw maintien nga après maintien wane fi nga bokk. <laughs> waaw wane ne carrément mooy jëlee fi Babacar Kébé waaye yow Cheikh Bara rek nga attaque Babacar doo ko tur te nee nga moom nga bëgg a remplacer li mu baaxut. man yokkal la foofu mooy Abdoulaye laa doon wax rek euh. maanaam boo bëggee siiw da ngay eh, saaga ku siiw defe naa noonu la ko doon waxee. waaw waaw loolu loolu tamit stratégiquement lu ñu mën a comprendre mais ñoom en fait dafa amul cohérence munoo mhm. am dix dix sept candidats opposants mhm. kenn moo ci attaqué le candidat du pouvoir mhm. à partir de ce moment sénégalais yi àndut ak pouvoir bi yëpp bëgg changement dem adhéré ci benn candidat muy Diomaye ñi bëgg continuité ñoom ñëpp dem adhéré ci Amadou Ba muy continuité léegi nag ñooñu monopoliser terrain bi campagne bi métti trop ci yeneen candidats yi nga gis ni pour pour nga gis candidat bu dox ñëw ci bërëb ànd ak fukki nit romb benn gox di mm-hmm. di wax programme am wala di dérouler caravane nit ñi génn màbb uti ko dafay jafe mm-hmm. léegi nag yow di moment que ne am nga problème boobu rek da ngay gis ni mm-hmm. champ politique bi ñaari candidat ñoo ko monopoliser mooy continuité ak rupture léegi nag benn candidat bi mooy ki incarne rupture muy Bassirou Diomaye mm-hmm. Mm-hmm. dafa am ay atu ci élection bi yoo xam ne li ko dimbali mooy candidature am ki ko porté muy Ousmane Sonko. Mm-hmm. laata élection yi kooku dafa occupé woon terrain ci ay nemmeeku tuuram ci ay programme ak taxaw taxawaay bi sénégalais yi soxla opposant di ko taxawee taxawaay boobu tey mooy li Ousmane ji moom la Bassirou doon góob yaa ngi comprendre. maanaam Basirou dafa nekkoon di récolter li Ousmane euh, semé woon moo tax amul problème bi looloo tax jafe-jafe yi yeneen candidats yi am ñoom amuñ ko yaa ngi koy wax léegi da ngay gis ku mel ni Cheikh baara ak ñoom Mara ñas ak ñiñ àndal yor seen caravane génn. jaar gauche Basirou jaar droite Ousmane jaar fa ca des. donc da ngay gis ni ñoom problème mu timing bi yeneen candidats am duñ ko am ñoom dinañ def plus de région que les autres candidats seen discours. dana gën a àgg ci plus de sénégalais que les parce que sénégalais yi ñoo adhéré ci maanaam programme boobu. Mhm. moo tax ngay gis ay sénégalais di taal seen oto def ci essence génn def caravane te du ñu militant passif du ñu sympathisant passif. Mhm. loolu moo tax ñoom temps bi ñeneen ñi doon am blocus pour mën a wër dëkk bi ñoom. Mhm. temps boobu def nañ plus de maanaam plus de zone que les autres candidats. boo xoolee coalition Diomaye mhm. zone yi mu wër zone yi mu parcours mhm. yeneen candidat mais mun nga ne un tiers bi sax defuñu mhm. beneen bi dafa am lu inédit lu ci am xam nga élection benn caravane lañ daan xam mooy bi leader bi yor mooy bu mag bi mooy sillonné nit ñi génn bi waa dañ gis ñaari caravane wala ba ñett wala lu ko mais jàppal ñaar yu mag yoo xam ni fépp fu ñu génn dangay naan mooy caravane bi gën a mag mujj gi dualité bi lan la woon Ousmane ak Basiru tey kan mooy gën a duy mhm. bu kii feesalee midi kii feesal quatorze heures beneen problème bi nit ñi amaat mooy beneen obstacle mooy weeru koor gi ñoom dabu leen ndax ñu bari dañ doon wax naan campagne bi nan la gars yi di meetinge nan la gars yi di caravane ak koor gi ñoom dañuy génn ci bis bi fi nit ñi wooree nit ñi génn topp leen topp leen ba heure dog jàlloo mhm. loolu foog ñu taxaw ci sénégalais ni mu fonkee dog ay umpulteg ak sa dëkk heure dog nga bàyyi sa dog taxaw ànd ak ñoom di leen déglu ba caravane bi dem nga door a dem xëy na reer wala dog ji mu génnaat guddi gi di caravane nga topp ko ba fajar gi yow xam nga ne xale yi topp ak mag yi topp caravane Ousmane Sonko beeg jomaam yëpp yàlla dañuy karmat mhm. xëdduñu digg guddi gi lañ ko topp ba fajar rawatina démb ak barki dem ma démb li ma gis ndar ci li ma fekkee ci politique te gëm naa ni li ko jiitu te fekkewu ma ko musta am. mooy marée humaine bi. non marée humaine bi d'accord mais marée humaine bu la topp ba yenn heure yi ci yenn condition yi. sénégalais ni mu fonkee koor nga xam ne dangay gis ku yeewu magum jëm na la wóoruma lu tax mu ne la xëdduma démb man gis naa ko ñu tàllal micro mu woddoo servette lu xew mu ne dama doon xëdd dégg caravane bi daw ba fa xëdd ba fa sama soxna. ak soxna si. waaye yow loolu boo ko gisee da gis ne kon sénégalais yi. ñoom adhéré nañu ci benn cause ñu bëri ci ñoom it tànn nañu seen orientation léegi nag foofu jàllo lan nga ci tirer comme conclusion pour beneen classe politique mooy en réalité ñoom bi société sénégalaise bi di def mutation ci wàllum politique di soppeeku ñoom comprendre topp ñu mutation boobu loolu nag moo leen téye fi ñu ne tey yow candidat yu bëri mais dañu am problème mu soit bu ñu demee fenn bu feesee bàyyil xel ñoom ñooy ñëw yor seeni oto débarquer ak seeni nit mbooloo bi li ci ëpp ñoo koy indaale duwul caravane ñaar ñetti oto yu génn nit ñi génn wër leen bàyyil xel candidat yu bëri Amadou Ba moom foiru oto la moom oto yi ëpp nit ñi défilé oto la moom ku buggoon jënd oto wala xam oto yi xew bés mën nga taxaw xool caravane Amadou Ba Amadou Ba oto yi ëpp nit ñi ñaari yoon fu ñu demit dangay ngay gis ni ñoom ñooy yóbbaale seeni nit loolu nag li ci joué bokk na ci président sortant bi waxoon naa la ne la du dugal loxoom ci campagne wu euh, euh, candidat bi dugalu ci loxoom manipuler nañ fi benn presse mu yeewu na Macky rejoint son candidat ma la gis Macky Sall di campagnal Amadou Ba moom ak tusngel yi ñu daan defal naan boo xoolee asamaan da ngay gis Fatmatou Sara di fóot. ñoo jour waaw lendemain tam xarit. Babacar boobu xale la waaw di séntu Abdou Diambar ak mhm. Fatmatou ngi sumb fóoti pourtant da ngay xool nuage nga ne waaw gis naa ko <laughs> <laughs> loolu gis ko ak gis Macky Sall campagne al Amadou Ba ñooyam moo tax sax après le pale a démenti li mu séq ak waa Bennoo wax na leen ko romb nuyoo la maanaam comme dëkkandoor comme li leen def nër moom ay wàllum dëkkandoor romb nuyoo na leen def sa waa dem loolu feeñ na beneen bi dama la waxoon na la Amadou Ba ñi ko wër ñoo ko dimbaliwul jàll. Mhm. dañ ko gëm loolu lu amut mooy politique boo xam ne dafa yàgg politique gu démb la suñu bàyyi ak suñu maam yi ñoo ko daan politique mooy grand électeur nit ku am baat moo xam ci diine la moo xam ci cosaan la moo xam ci lu mu mënti doon kooku demal la ci nit ñi wax ak nit ñi gàddu nit ñi indilu ko loolu dafa xewi. Amadou Ba noonu lay. en parenthèse am na ñuy wax ne que Diomaye ñu koy reproché loolu te sax dal naa euh, Souleymane Jules Diop mu relevé loolu que Diomaye def na tournéem daanaka dem fépp mais amul sax fenn foo xam ne jàdd na fa pour jar kilifa diine. ñaari tontu laa ci am benn du force muy benn du force loolu foog nit ñi xam. waaw mais mais dëkk bi nag dafa mu aadoo. chef lay neex rek nuyoo du force. mais des fois nga romb xam ne ku fa romb nuyoo yow nga romb fa nuyoo. muy benn. Mhm. beneen bi mu bañ ko def mu gën ci ndax bu ko defee ñu ne manipulation lay def récupération lay def ñetteel ba contexte bi ñu toll weeru koor boo xamee programme mu kilifa diine yi. doo fa dem di leen interrompre. soit bëccëg bi ñu ngi ci tafsiru xuraan bi wala ñu ngi ci jotaayu durusu xasida yi nga bëgg a dem ba loolu. quiétude bi sëriñ bi soxla am na ñoo xam duñ ko gisee noonu. an mumbaay bi. waaw te beneen bi gis nga fi dof yi fi génnoon naan moo julli ci ci jumaa ji génn na sëriñ bi ci jumaa ji lay meeting wan la na la man munaloo ma dara jumaa ji yooyu yëpp boo ko boolee da ngay éviter yooyu mhm. te élection yi dafa sensible boo xoolee Ousmane ak mhm. Bassirou dañoo diwu diwliñ ci campagne mhm. plusieurs zones dégg nga ñu ne caravane bi annulé na ko pour des raisons de sécurité yow xam nga ne Ousmane Sonko kuy am fit moo lëpp fit ci homme politique ragalul lacrymogène la ragalul yuuxoo ragalul xeer au contraire saa yu demee benn dëkk mu jaxasoo da ngay gis day génn mais pour éviter yenn yi. da comme Matam par exemple bu juw ñu dugg Matam Kolda dem leen Ourossogui mais dugguñu Matam gis ñu zone yu bëri dañoo mujjee dëpp donc loolu da ngay éviter yu bëri te contexte bi daf ko laaj léegi discours yenn candidat yi xam nga wax naa la ne la candidat yi au lieu que ñu dérouler seen programme attaquer la candidat du pouvoir defuñ ko il préfère tirer ci seen collègue opposant xam nga gis nga ku lay naan la poste président dafa sensible duwul ni diw nga tànn ngir diw mu doon du dëgg mais pourtant kooku woon dafa waroon mal placé pour wax loolu xamul daw Cheikh Tidiane Youm la dama xëy tudd bu pur waaw Cheikh Tidiane Youm moo représenté woon pur ci élection yi passé si Yewwi Askan Wi moo nekkoon figure bi mm-hmm. bi Eurotan élection jotee dañ ko remplacer ak Aliou Mamadou Dia. Mhm. nit ñi lu ñu wax Aliou Mamadou Dia mooy sëriñ bi sëriñ bi mooy Aliou Mamadou Dia. ñoom liñ na nangul ci seen candidat moom moom la bëgg a bañal moom beneen candidat c'est pas sérieux et moom vraiment discours boobu nit ñi xaaruñ ko ci moom vraiment parce que sénégalais yu bëri dañ gëm ni bu dee Pastef am na allié bu dëggu ci yeewi gi mu nekkoon ñu bari dañ jàpp ne pur c'est le te dafa am discours yoo xam ne non seulement boo ko teniree ma ñàkk mën politique la ndax du yàqal waa ji waaye yow dana la yàqal. mais tamit est-ce nekkul si campagne nag ku nekk war a jaay sa candidat. xam nga dafa am lu mat a sóor jàllo du postu président rek am ci réew bi boo doonul président mun nga doon ministre boo doonul ministre mën nga doon directeur boo doon directeur mun nga doon président beneen institution loolu lu mat a sóor lu du postu président rek a am ci arène politique. te gars yi des fois bu ñuy wax dafay mel ne laax bi bu mu ci munta lekk naa ci këppum suuf plaatu laax ba rek new fa leneen a nga fa. d'accord te loolu dégg naa ko ci yeneen kàndaay yoo xam da ngay xam ne maladresse sa daal. Déthié moom laa été intelligent moom bi ñu ko laajee programme. ëllëg que Déthié xam na ne na doon ab ministre. mu ne dama jàpp ne sama prés sama programme moo dàq yëpp si adduna bi mais moom personnalité. mais dugg ci buñ leen tànnal. ki leen tànnal du moom post bi gis nga Diallo. dama koy wax pour Boubacar Camara réew mi kenn ko jox ab inexpérimenté. foofu laa ñëw expérience Diallo diggante asamaan ak suuf nit juddu wu ci am expérience yore réew loolu amul. c'est fou diggante asamaan suuf la. xëy na nag mais jaar jaar quoi. jaar jaar ñëw par exemple nga nekkoon ministre premier ministre ministre des finances yaa ngi dem ay négociations ay réunions. ay réunions bilatérales waxtaan si kii xool fonds yi dem FMI waxtaan xam nga yooyu. mooy expérience boobu maam rouage yu état. waaw léegi ci laa ñëw si gis nga jàll. Ablaye Wade bi muy jël réew mi lan la doonoon. mais nekkoon na ministre di dugg fi génn. laps de temps. Mhm. amul benn expérience bu mu ci acquérir bu dee foofu la ñëw. pourtant dañ daan wax ni mu ëpp xam-xam ci continent bi. oui. <coughs> du dëgg. Mhm. Senghor ban at la bàyyee ban at la nguur gi. 74 ans. Mhm. Ablaye Wade jotee ko ci 74 ans. Abdou Diouf jotee ko ci 40 et quelque. nekk gouverneur 25 ans nekk premier ministre 35 ans. Macky Sall jotee ko ci 40 et quelque. xaw ma cinquante quelque hmm. donc problème du âge gis nga at gi Senghor ne mënatul la Wade jot moom exercer douze ans d'accord amul benn président boo xam ni keroog bi ngay bàyyi nguur gi doo ci ëpp expérience que bi nga koy door a jot maanaam comme ñi lay wax ne la hmm. Macky fi muy bàyyi la gën a miin yow hmm. loo pratiqué kañ képp ku nit ku nekk si métier mais li nga ciy doxal boo ci yàggee gën ko miin c'est vrai d'accord pour tëj maanaam beneen bi ñuy jéem a diaboliser yenn candidats yi réew kenn du ko jox xale gis nga jàll loolu Sénégal waru ko cabaar bi mën na seede ak Mansour amut ñi ñuy wax ci kilifa diine ci réew mi yaakaar leen amu ci kenn koo xam ne yoon bi nga taxawal wala ba ngay sanc dëkk wala ba ngay nekk ci li nga nekk ëpp nga fanweeri at fanweeri at laa la ah si seen ñaar fukki at ak et quelque lañ tàmbali muy Cheikh El Khadim di Cheikh Ibrahima Niass di Cheikh Omar Foutiou di Sidi Hadj Malick Baye Niass 21 ans la bind premier téere 21 ans Medina Baye bi ko Baye Niass di sant maa ko mag ci aaj 30 ans la trent ans. 21 ans Sidi Hadj Malick noonu Cheikh Ahmadou Bamba noonu waa léegi yow réew moomu yow nga bëgg jël ay nit na leen yéen dem leen uti modèle boo xam ne moom màggatum xobe moom la ñuy def référence. loolu amul donc loolu buñ ko complexé sénégalais. d'accord mais Cheikh Bara. Mhm. Goulet Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ku xam fi ñu jaar ak Amadou Ba attaqué wuñu ko sax si lu ñu mën a attaqué si wàllum projet programme continuité PSE waaye bëri ñu attaqué poche ba ñu bëri jàpp ne loolu sax maladresse la ak lan si wax tamit si mbirum CFA beeg poste poste de vice président bi. mu mel ni kat ñoo xam ne nii daal ñuy làmbaatu leen daal ñuy làmbaatu ñu dajagul ba léegi ni xamul lan li ñuy dégtal askan wi loolu tam ndax nekkul ay erreur de waaw est-ce que ne amul ay erreur de communication yoo xam ne daal maanaam kii wax fii Sonko wax fee Jomaay wax xalaatam fii ay amuñu woon temps xoolaat programme bi ñu ngi woon kaso bi ak yu bari yoo xam ne daal tax na xel tey tuuti daal waaw léegi damaa bëgg ñëw ci kee dafa wax ci affaire bi ba mu naan la xam nga fu muy jóge Euh, tey ku mel ne Khalifa Sall toog na TFM am dix mille bi onze mille bi gën a bari ci fi mu mën a yem maximum ci TFM hmm? TFM booba Ndour Sarr la fay maanaam ay professionnels yoo xam ne ñoom hmm. ñëpp ay vie lañ ñoom ñu toogoon ak moom ñëpp ay vie lañ boo boolee seeni vie hmm. am nañ public ñoom boo boolee seeni vie ak yi leen Khalifa andi ci deux ci seen YouTube boo xam ne am na plus de deux millions abonnés. Khalifa génnee fa onze mille vues. même pas une semaine nga dem ci beneen tele maanaam sa sa code popularité dem ba quatre-vingt xaw ma nangam mille wala yokkaat lu ëpp cinquante mille vues ci seen YouTube boo xam ne un million abonnés la am te yow dong yaa fa toog léegi kooku boppam lay nax wala askan bi léegi ku toll ci laaj réew ñi nit ñi maanaam nit ñi. ak nit ñi ñuy tagge Sonko daa dëggu Diomaye daa dëggu diw daa dëggu yow nga toll ci di leen fen ci ay vues est que kooku yow psychologiquement sénégalais yi nga bëgg a jiite pare nga wala pare woo ci Amadou Ba kasaalika yow mënoo nekk ne sa temps de antenne RTS bi ngay am Habib toujours moo lay raw Cheikh Tidiane Dièye moo lay raw Diomaye moom maanaam li nga am ci ay vues da koy ñett te. li nga wax nii Jeune moo ci def ñett. li mu wax nii Jeune Afrique def na ci sondage non. waaw maanaam saa boo jëlee vie yu Amadou Ba am. Mhm. man koy di da koy da koy multiplier ci vie yu Jomaay 3 mu doog a tolloog moom wala mu ëpp ko. mais vie la moo léegi Jomaay am na 60 000. wala vie day voté léegi Jomaay dafa toog ci plateau am 60 000 vie. par te san normal kuy doog a génne kaso. waaw. c'est normal sa première déclaration. def un an waxuñu ak yow. Mhm. nga c'est normal a a xam boog laa bëgg a déglu ba naan amut xam-xam ñi naan ku nga indi nga mais may mën a nduru fay ba mu njëkkee dalal Amadou Ba ñaata vie la amoon matul dix mille tey nga ñëwaat indiwaat quatre vingt treize mille te yow demoo fi kasu dara beesu fi quoi. te moment bi muy toog ak Baye Mën a Ndour Faye ca booba mi ngi doon xëccoo ak Diouf Sarr ca xeex bu metti ba ñu doon déglu ba xam man ku mel ne man na ma doon diglu ba xam Amadou Ba dafa bëgg a nekk candidat wala bëggu ñëpp di la topp tey nga ne yow RTS mënoo faa am 10 000 bi ñëw fi am fa 93 bi seetaan fii xanaa ñoom du la ñu war a xooli fële léegi yow koo xam ne ay vie rek nit ñi lay seetaan rek pare nga moom pour fen ci nit ñi di leen ci gëm looloo gëmul ak loolu lu nekkul est-ce que kooku pare nga yow pour maanaam nit ñi programme bi nga leen di jox sax kon wax wax nga ci dëgg. wax naa leen nag ne leen mais mais balaa nga ñëw foofu vie la moo tax. kenn bëggul dañuy bañ par exemple bu la diw ëppee vue ñu jàpp ne diw moo la ëpp dayos wala vue léegi day damaa bëgg bu ma gisee Ousmane Sonko ne ko korite gi na nga woo képp ko seqal ah, a lu mu def ñu ne dañ koy def lu mu def même léegi bo même léegi ñëpp am asura fàllu léegi xalifa rek gis nga kenn ngi taxaw ci ginnaaw yor drapeau bi di upp même Amadou Ba da ko am léegi asura waaw ngor ba koy gis. waaw ñëppay am assurance dégg yarga si koy gis assurance maanaam comme candidat yi ci des ñëppay wut assurance mu taxaw ci ginnaaw di upp ay ay ay ñun diw la ñu bëgg ma wayi Pastef yi la ñuy jëlaat boo xoolee léegi drapeau Sénégal yi am lépp lépp lépp lépp ci Pastef la ñu koy jëlee ji léegi nag mais nee naa leen mën ngeen a loolu garaawul mais am récupérer leen ay turandoo <laughs> loolu moom moo leen te ticc na boobu moom la kenn mënut lijjanti te man mii Sonko mi ngi si ñaata moom. Sonko nee na woon mi ngi ci trois ans mais ëpp na ko. waaw ah, man deux ans yi ëpp na ko ndax man dem naa caaro yi ak euh, Midina nit dab ma jox ma xale ne am Sonko mu ndaw a ngi noonu ma ne est-ce Sonko yëg na ko non yëgu ko man kenn ki maa yëkkati cinquante mille jox ko ne ko maa ko ko joxeel ci Sonko keneen ki jour akapes la woon moom itam am na lu ma ko jox ne ko maa ko joxee ci defal ma ko ci man ma dem Louga keneen fekk ma fa ne ma kii xale bii. Ah, meneen Ousmane Sonko laa ko tuddee. ne ma mais dam bi bi mu ñëwaat dafa ëmb rek laa ne Sonko laa koy tuddee far mu ñëw nekk jigéen mais tuddee moom laa ko tuddee. jigéen mu tuddee ko Ousmane Sonko Sonko. comprendre nga. Mhm. loolu noonu ma laa bëgg yeneen candidat yi ñu génne ko ñoom. waaw mbii doomu ndaw moom ak yooyu gisuma ko fenn ci dëkk bi. <laughs> waaw bu la tuddee ba tuddee la jigéen moom. dégg nga léegi kee dafa waxoon ci kilifa diine yi aussi. Mhm. Souleymane si Diop moo ko wax mu ne. jomaay demul ci benn kilifa diine mais jomaay demul këram bay dem ci kilifa diine koo xam ne yow da ngay course ak say moroom ñu say morom daw ba rawee la juróomi fan ñu doog laa yeewi na léegi demal nuyu sa bàjjan nuyu ji sa nijaay nuyu ji sa tante doog a dem doog a xanaa yow dugguñu nga campagne Sonko ba fii may wax ak yow duggul këram bi mu génnee biir dakaar la yow mhm. def fa def fi conférence de presse fi la fanaan xëy def conférence de presse takk ko jëm Casamance booba ak tey jii may wax ak yow dugg ku demee sa kër kay gisoo say jabar gisoo say doom kay koo gisul waru koo jàmbat joomaay keroog bi mu génnee maa ngi moom ànd ba biir këram li def mooy summeeku lekk génn ba tey jii may wax ak yow du gaadu léegi ah, est-ce que xam nga ne joomaay baayam ak yaayam ña nga ñaga ñaaw ña nga ñaga ñaaw est que xam nga ne tegu fa tànkam <laughs> léegi ku ku sa ndey ak sa baay gisut nga def un ci kaso bi sa ndey sa baay gisuloo ko la gisut na la muñ lan moo tax ñu ne day dem seeti kilifa diine yi kilifa diine yi farata lañ bëgg nit ñi di ci nekk du faratay jomaay ak Sonko mooy dem mitin yi léegi nag man damay wax Souleymane Sy Diop mi wax loolu li nekk ci cortège su jomaay ci sëti sëñ Touba ak sëti Alaaji Malick ak sëti Baye Niass amul kenn ku ko am mais en parenthèse sax cortège su jomaay koo nuyu mhm. ñëpp Mbàkke Faal Niass ñoo ñoo mais en parlant de Cheikh Bara xam naa sax waroon nga si ñëwaat mais yëg na ay kàddu aussi gannaaw li xewoon Daaru Muxti. bi débat boobu ko war a ci langue politique. d' accord affaire yooyu xanaa. waaw dañ ko ci a seppi quoi parce que non seulement du respect. non gars yi gars yi bu ñu jaaxlee. gis nga démb mais mais yow nga waxoon tamit am na interpellation. interpellation yu ñu mooy non xaaral démb dafa am koo xam ne. Mhm. maanaam dafa am lu feeñ ci moom. mooy li ma la wax rek di feeñ ci vues yi di fen ci yëpp ndax boo taxawee nga de man benn soxna laa yor am keneen ku ñëw dem ba soraanoo nëbbatuwut laqatuwut du ma ne nag damay dugg ci biir privé jàmbur parce que ëtt bi la xewee mhm. ne ma madame maay yaayi seex yi mhm. ma dem Ba <laughs> ñaaree xaritu jëkkëram mhm. ñu gis nit ñu la xame di ko wax mu toog fii ci digg ndakaaru nga pare ga ne du ma jëkkëram war nga ñoo wax lu tax mu wax loolu ko nee benn la. déet mais lu tax ndaw si mën a toog fii tànt ne ko maay maay sa jabar. keneen ko wax de fanaani gendarmerie boobu mais lu tax moom tamit mu toog ne benn la yor. déet looloo tax nag maanaam xam nga mbir mi. looloo tax bi nga xëyee tey nga dégg déggoo ñu naan Anna Diamanka tas na. waaw waaw parce que problème boobu biig la xew xam nañ ne lii moom dana jur polémique. Hmm. te pare guñ ko leeral ñu léegi ñu bëgg ñu toxal ca Anna Diamanka. gaaw naan jabari Sonko tas na pour bañ ñu traité bi. Hmm. léegi toppatoo kaa yëpp boo leen seetloo ci suba si ñoom bu Anna lañ dem. <laughs> fàtte na fàtte nañ bi. fàtte nañ bi ah, Anna nga fee këram. Hmm. dara xewut ci moom dara mais dañoo bañ ñi traité cas bi. mais est bañul tam ñu dugg si vie privée. lu vie lu am su lu am. Sorano ba pare. Sorano moom vie privée du fa dem. léegi nag yow koo xam ne yow mënoo mënoo déclarer say femme bëgg naa damay def déclaration de patrimoine kooku mën da nekk nit ñi mënoo leen a laaj li li ñu yor nga ne jox leen ma ko ba noppi yow li nga yor. doo leen ko wax Amadou Ba dafa lëndam mais na waxtaan rek Amadou Ba nit ku lëndëm ma lëndëm ma la parce que yow soo dégg ci ay wax mi ngi wër réew mi wax rek waaye fi mu ñu jëmee moom naraguñu ko wax waaw ah, waxaguñ ko rek continue ba tey jii bu ma jëlee réew mi lii laa bëgg a def mosuñu ko wax ba pare tamit beneen problème mooy Amadou Ba ku ñàkk mosoo koo gis benn yoon laa mos a seen mu toog ak ku ñàkk mooy bañ ko wàccee ci oto bi mu taxaw ak maire bi jaay mbokk benn yoon boobu du toog ak nit ku ñàkk jomaay ñi nga naan amut expérience waaye aka am expérience ñu ñàkk ñi ndax baayam amut mm-hmm. yaayam amut yaayam néeg ba ma ko fekk ventilateur ba ba ma fa gëjëg léegi matul ñaari weer ventilateur bi baaxul barki sëñ tubaa bàyyam ma nga toog ca ca ca ca ëtt ba def nii tànk yorog wantaayam kooku moo am expérience li Sénégalais yi dund waaye koo xam ne yow si nga xam ay oto yu rëy ay piscine xam maanaam yëgoo ne am na kuy ab cinq jafe kooku boo ko ne régleel problème mu réew mi di ko réglé moo tax jomaay expérience bi mu am boobu lañ soxla mooy yëg ne nit ñi ay sareeti fas lañ yor am na koo xam ne brouette la yor di ko puus am na koo xam ne maanaam néegam amul courant am na ñoo xam ne ab ventilateur xamuñu luy clim. dëgg la dégg nga sa kër am sareetu fas am am amu amu mbaam say rakk di bay anta Babacar Ngom bu ne magi magi magi magi magi jomaaye ngay bay ca tool ba cela veut dire que kon baykat yi kon jomaay du leen trahir ndax magam a ngi ci biir léegi nag Amadou Ba yow mokk ñàkk ñoo defut nen mais maanaam fii ne yëgut ne Amadou Ba yëgut ne am na koo xam ne bu xëyee suba ba ngoon trois cent francs la mën a am wala mënta am dara. am na na ko déjà. fa mu ko dund. xaw na tumuraanke bi muy nekk gone. ak mais mais balaa ñu ñëw foofu. Cheikh Bara comme noonu la kilifa diine mais kàddu yi nga xaaral ma wax la rek. kàddu yi nga xam daal dama lay laajaat benn laaj koy repréciser. ba nga juddoog naga mas ngaa gis ku la kër Amadou Ba añee wala fa laa naanee café tey. mbaxal bu tooy bi déggoo ko. dama ne chaque dimanche. chaque la mbaxal bu tooy bi mbaxal bu tooy bi. fan la seen kër Grand Dakar. foofu Grand Dakar seen kër la añee bu jën kañ la li disoo vidéo bi. loolu bu yàgg wala léegi non ba tey ba tey avec ses amis d' enfance. baax na dinaa ci ñëw Grand Dakar mais léegi Cheikh Bara en dina ñëw si loolu en parenthèse comme ñu wax si kilifa diine mais mbirum politique as yi est ce que laajoon na ngay àgg fenn fii. ay bu diw faloo ay ma def nangam si tarixa. waaw waaw maa ko wax. mais est ce nekkul ay baat yoo xam ne. si sont des man maa ne la bu Amadou Ba faloo ci mi ma wuti jëkkër sëy maa ko wax. du maa ko wax su gannaaw su yàggut wax xaac bi kay ak yooyu. maa ko xaacu waxoo ko man maa ko wax. mais da na yaakaar ne man dof buy wax laa nii di làmbatuy wax lu wér laa la wax. non même bu fekkee wér na mais est-ce que Amadou Ba bu déggee monsieur le président ci àdduna ma dem wuti jëkkër man nekk jigéen man maa la ko wax fii ba dimanche ca timis loolu <laughs> kay amul problème ñu naan non li nga wax nii li nga wax naa xam nga ne yow man ah, li ma la wax xam naa ko képp ku may duma ndax doolee Amadou Ba xamoo li xew loolu kay man maa ko wax al jàllo te maa ko répété waat fii ma toog man Cheikh Bara maa ko wax Amadou Ba du gagné senegal fii te ba dimanche ci timis mais Cheikh Bara man lambatuwuma de. élection kenn ko gañ avant de. waaw lan mooy gañ avant lan lañ nan lañ koy gañee avant. jour élection yi mbetteel mën na am. ma ne dama ne la bu Sénégalais yi ñooy wate. Mhm. ñooy fal. Mhm. ba ba Amadou Ba amul lu muy xëccoog Sénégal Sonko fii ci Sénégal gii te Sonko jëlu ko kooku man maa la ko wax. non fan nga ko teg ci ci lan exactement déedéet dama ne damaa war réew mi di wax ak nit ñi xam li xew adduna amut lenn loo xam ne bis bi mu amee nga ko yëg jigéen sax day ëmb tey nga xam ne neuf mois ci kanam lay am doom yàlla doo nga xam de day def dara garab gii mango gii da ngay xam ne tant de année tant de mois ca weer sàngam la gaañ gi meññ mën nga ci jël avance su sax mango ji baykat bi yoru jiwam mën naa jël avance ne la bu ma ñorelee jaay la parce xam na ne lii nii lay deme nit ñi nag boo waxee ñu naan nangam ci loxol yàlla la ne waaye yàlla bu jëlee ñëpp def ci benn xol ñëpp yori carte d'identité taxaw di xaar dimanche kii falu xam nañ ko xam nga ne PDS gi taxawoon ne man du ma bokk lu Mimi Touré bokk tey ñu bokk tribune ne xam nañ li xew PDS bu doon xam na ne élection yi deuxième tour la jëm du dem ànd ak mag kenn day xaar deuxième tour jàppale kenn ne ko maa la gañal élection yi premier tour la non non loolu dina si ñëwaat mooy mooy prochain tour mais. lu leer la la wax attaque yi ñuy attaqué ñoom Amadou Ba ñii Sonko ñu attaqué Amadou Ba est que loolu wanewul ne que Amadou Ba am na dayoo et que ñoom ils sont obligés jëm koo wàññi bi. attaque bi ko Sonko koy attaqué xam nga dafa am benn affaire bu am mooy Sonko ak Amadou Ba man dama ko wax démb gis nga Amadou Ba crédibilité ma maanaam damay ragal mu perte élection yi ba noppi cinquante ans yii crédibilité bi mu tabaxoon mu mu tojaale du démb rek maanaam ab femme feeñ na hmm? <coughs> gis nga gis nga Ousmane Sonko dafa mën a politique Ousmane Sonko ku xam politique la ku mën a politique la lenn moo tax dina épargne Macky Sall mooy leeraangeeg élection yi ci loxol Macky Sall la nekk. leeraange ak yi ci Macky Sall la nekk kon benn njariñul Sonko mi ngi ci loxol Macky sàll te lori Sonko nekkatu ci loxol Macky amul nu mu ko mën a wàññi te dama ko wax fii amadu Ba bu Sonko nekkee ci prison ba def fa sept mois amadu Ba la ah bon man wax naa ko kum neex nga gëm ko kum neex nga wedd ko sinan man sëñ Mountakha a génnee prison man moo téléphoné Macky Sall wax ak moom mu bàyyi ma balaa muy màggal maag koo doon defandoo grève de la faim sëñ Mountakha yónnee ci man yónnee ci moom mhm. balaa muy yónnee dafa téléphoné woon Macky ne ko soo bàyyee ndax doo bàyyi Sonko ndax comme dafay def grève bala cee dara xew mhm. Macky ne ko ko bàyyee su ba wax ko mu bàyyi grève bi ma bàyyi sëñ mun taxaa yónnee ci Macky Macky bàyyi euh, yónnee ca am Sonko Sonko bàyyi ko sëñ Mountakha woo Macky Sall téléphone li ma lay wax lu wér la ne ko Sonko kat dakkal na gerew ba léegi nag Macky Sall ne ko dinaa ko bàyyi te dinaa waxtaan ak moom far Ba Farba ma Madiambal Diagne classe googu ñoo ne bu ko Macky Sall bàyyee ñu xaru ji ñoom Macky Sall ba tey ji bàyyi na nguur gi du dem Touba parce que lim permettre sëj bi ba noppi maanaam génn ca te amul explication yi loolu tax mu ba Touba. da dafa rus a dem. du fa dem dafa rus te couleur la nag day bari kersa. du fa teg tànkam. mais léegi ba na ko xanaa mën naa dellu léegi. ah waaye daa wax sëñ bi nag sëñ bi wax bi tooy xepp sëñ bi jàpp ci loola ba noppi dara amu ci. la bàyyi ko ca kaso ba Amadou Bala. nan la mën keroog bi mu Macky Sall yi demaat Algérie ne bàyyi leen ko bala maa ñëw. parce que xamoon na spontanément lii day am lii amoon keroog mu ne bàyyi leen ko bala maa ñibbisi. ca ajjuma ca guddi lañ ko waroon a bàyyi ñu xëy agressé may mun a dur fay ñu ne dañuy laalale asamaan seeg suuf si li def na ko ñii nii nangam nangam ne alam nikk Sonko la parce que intérêt boobu rek la woon Sonko nag yooyu la xam. mais Cheikh Bara président Macky Sall nu muy nekkee président moom si jëm ko am lu mu mën a yëlif ak pir yi ni muy jaaree ci moom moom mu décider la ay yeneen nit mën a def lu contraire de loolu. Ah, loolu lu mën a nekkee loolu laaj la de loolu laaj la mu mën a décider. maanaam président Macky Sall yor doole yor nguur gi nekk le chef de l'État. waaw joxe ndigal ab surgaam. wala ay surgaam di def leneen lu safaanoog dëgg ab candidat boo xam ne dafa war a gagner taxaw ne ko lii boo ko defee du ma gañe soo ko defee man ngay xeex du ma gañe bul ko bàyyi ñu xataraayu ci Macky Sall gis ne moom bu génnee buñ pertee kon danaan ño danaan dañ naan moom la mu difficile ci moom trop candidat la boo xam ne génnuk Sonko moom xamoon na ne génnuk Sonko musiba la te Macky Sall topp na ko ci bala wen bala trois bi ñu waree ubbi campagne bi jour bi muy dàq élection yi la trois la Macky Sall xam ne réew mii ci loxol booy yi la jëm mu génn ci nag liñ ko doon tegal noonu woo booy bi xool lépp lu mu appapare ne bëgg na ko mu defal ko ko bàyyi joxaat ko parteem génne ay goneem génnee ko kaso censé ministre de l'intérieur bi nga xam ne dafa ànd ak kaaw Amadou Ba teg ko neutre koo ko changé lu waaw ah loolu lépp mi ngi fi Sonko dik ko lan Sonko amul lenn lu ko dig. ak loolu fan lañ ko waxtaanee biir réew wala biti réew. non biir réew mi lañ ko waxtaanee. ci biir fii kon waxtaan am na ko. déedéet xam nga Sonko nee na la wax na ndax yu xam nga sëñ bi dama ne la. waaw ah. indépendance su Amérique sax dañ ko waxtaanee. ça moom ah. amul lenn luy am ci àdduna lu dul dañ ko waxtaanee dégg nga. Mhm. waaye lan mooy waxtaan wi Sonko def ne. wax naa wax na ci man Ousmane Sonko Macky mënu koo tëj ba tijji ko te waxut ak moom man mii dañ doon yónnee ci man te man du ma Sonko du ma Sonko du ma kenn dañ ma daan woo téléphone. ci biir. sama biir kaso. te fu téléphone bi di jógee. ah xam naa man xam naa ko. dana am koo xam ne dana téléphoné diw na ko jox ma jox heure tel nañ ma jox diw ma wax ak moom ma wax ak moom kilifa wala nit ñëw ba ci suba diw dana la seet si mais mais waxtaan boobu heure ñu woo la ne la di nangam nangam ñu wax ak yow. mais Cheikh Bara. fi waxtaan bu ne na ma delloo sama parti ñu ma sama parti defut dara. Macky Sall moo xam ne yor nguur moo fi nekk ak génn ci nguur. d'accord yor na nguur gi yore ko ni mu ko neexee bu bëggee daa bëgg a dundaat ci réew mi. màggalu Tuubaa mu cay dem di dem gàmm Tiwaawan di dem ci ciit yeeg ngénte yi dafa am comportement boo xam ne mënoo ko am ak Sonko ba noppi di dund ci réew mi normal kooku moom moom mi ngi noonu yow yaa gën a xam ne Macky Sall bu fekkoonte ne tey jii par exemple tey tey lañ ne keroog la cinq def nañ élection yi ñu ne Ousmane Sonko gagné na ko maanaam Diomaye Faye gagné na élection yi. Mhm. ñu toog ba tey jii di la 22 ñu ne Ousmane Sonko guddik tey génn na kaso askan wi génn ni ñu génne jiital Sonko duñ bàyyi Macky Sall duñ ko romb këram man maa la ko wax. boo yi ni ñu doon génne rëbës keroog su fekkoonte ne dañ makke da leen a topp ba jusqu'à bout. ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu génnal seen bopp nga xam ne seen xeexu bopp moo leen génne fukki at yi Macky Sall dootul am jàmm fenn ci àdduna bi Macky moo ko moo xam li muy def. Macky ci renseignement lay liggéey. oui renseignement. loolu noonu la demee amul lu ko Sonko di dik amul lu mu koy ñàkk a dik moom moo xam li koy may jàmm mu def ko. mais gisoon na ñoom Sonko tam ragal neen Amadou Ba si élection yi. ragal luñ ko. ñu ngi koy sóor de déedéet Amadou Ba loo koy ragalee. amul nattukaayu lu ñuy natteel nit kuy gagné élection ah fekk ca Amadou Ba Amadou Ba mooy koo xam ne bi mu tàmbalee ba léegi maa Amadou Ba mooy rallier di ñëw ci Amadou Ba ñu koy publier Thérèse Faye bennoo la bokk def déclaration damay jàppale Amadou Ba ñu ne Thérèse Faye ñëw na fu mu demoon <laughs> ah Moustapha bu Louga ma dem Louga Louga xumb mu xëy suba dem ci biir mairie bi la tëju ne damay jàppale Amadou Ba <laughs> ñu ne ah, Moustapha Diop da ko jàppale xanaa bennoo kay. gannaaw ba ko amal ba woowee. bennoo jàppale bennoo. boobu la gëj Louga de ñëwaatu fa. ñëwaatu fa. bennoo jàppale bennoo. ah ay Thérèse Faye ay ba ngoom ñooñu de ñooy ñëwaat naan dañu jàppale Amadou Ba. Macky du jàppale Amadou Ba. man yii yëpp daan naa ko wax xaw ma nit ñi ñu koy bàyyi xelam déet gis nga Macky Sall du gis defet di ci dugal loxoom di daanuwaa waaleeg defet su ko leeroon ne Amadou Ba day gagné élection yi mu ànd ak moom campagne ba mu saf mbir mi ma nga tàmbalee keroog bañ defee meeting di investiture ba ñu def ci xaalis bu bari la teew boo ci génnee géwél yi ak waa bennoo yi nga xam ne dañ leen invité jeex na amul amul public. mooy mi ñu defee woon kin faat kin faat foofu la mbir ma yàqoo Macky Sall keroog ba mu fay génn mer la génne ne ne joxeetu parteem bisu keroog ak tey doo ma wax benn sées bu bennoo moom bu mag bu amadu Ba duggati fa mbir ma yem parce que Macky Sall Amadou Ba da ko doon nax di façonné ci kawam rek noonu la affaire bi demee léegi nag li nekk te nekk ba ñëpp xam ko mooy élection yii di ñëw bennoo du ci am dara surplus yi ma lay wax nii jël ko waxuma ay Touba ak ay Thiès ak ay lu ma xam hmm? mais Kaffrine bennoo daka daan gañe quatre-vingt-dix pour cent bu ay résultat yi tàmbalee demal diglu gis nga ay risaatool ak ay Podor ak yooyu ngay gis demal diglu Cheikh Bara sa tournée nax na la de baax na man dew ma foofu dew ma fa man sama tournée fi ma dem nee naa la jarut déglu hmm. fi ma démul laa la wax fi ma demul hmm. déglu résultat yi sëñ bi lii du ay élection yi nii dem ak ñëw révolution la révolution xaw ma ñu koy waxee. <laughs> révolution révolution révolution la. nit ñi dañ dañoo pare li ñuy def Amadou Ba mënta ñëw bari ki démb moo njaay nga fi nekk candidat te yow Amadou Ba maa ngi la koy wax ci suba maanaam dafa am nit koo nit la koo xam ne ku mat jàngat la. maanaam spécial Amadou Ba moom war nañ koo def ndax yow mënoo ne da bokk ci élection nekku candidat. li may wax nii nag lu am solo la jàlloo lu nit ñi war a bàyyi xel parce que am réew lay laaj man doon naa ko laaj yow foo bokk ci Sénégal nangu ko wax am na ñu bari ne ma Sonko tontu na la waaye Sonko tontu tontu na ma sax nag d'accord. waaw nee na Sénégal la ngeen bàyyi. nee na fi la juddoo. waaw juddoo jarul yëkkati. déet juddoo la wax. yow juddoo mën a jëriñ réew mi waxuma yow juddoo nga fi def. man mii sax juddoo ma moo ma si boole. juddoo ma si boole de. man mii waxuma lool ndax juddoo rek ab jàll na ko wax naan ko fi la juddoo. ma fi nga juddoo. mais mais mais na ne ma ne bu ñu neexee nañ dem jël ab marocain mu ñëw yor réew mi garaawul. mais loo ñuy nëbb. ci bu fekkee mën na ko yor. bu ñu la juddoo d'accord fi nga juddoo léegi yaa ngi ni ñëw léegi ñëw ñëwuñ piip maanaam ñu découvrir deuxième femme yaay Cheikh <laughs> loolu ñu ci nëbb nga ñëw naa non non man daal ñu ne la yow góoru ñaari jabar nga ne eh, bu ma ko waxati baal ba ma waxal ko sama bopp yow Sonko moo la wax ñaari jabar laa yor Serigne Mboup moo la wax ñaari jabar laa yor ñu yor ñaari jabar ku ko ci nëbb loo ciy nëbb irresponsable ba ñemee woo wane say femme non nee benn la ñu nangu ko bennam rek. Cheikh Bara waaw léegi beneen ah, la. moom ko moom. parce a. damay bañ a tooñ a tooñ daal am na ñu siy tudd beneen Amadou moom moom na ko moom kay leeral na parce que nee na benn la Ba mii. si tudd beneen Amadou Ba. waaw waaw moom moom xanaa xooloo ñu àndandoo état Masoro Amadou ko dar ñi mere ñaa aawo baa ñëw jëli ñaareel bi monté ko indi ko. d' accord. waaw xam nga parrainage bi man dama lay wax rek gis nga man topp kaa rek laay def ka parrainage bi aawo ba da daa génne di mosle léegi daa taw. génn tut gaa yi dem jëli monté keneen koo xam ne day ñëw di mobiliser di leen mosal. gaa yi de ku leen di mosal dong de. lii bi mbir mi jërut jërut nëpp nëppal waa léegi dafa am na ma doon bëgg wax. lu am solo laa wax nii laa la bëgga wax ba pare nga doog a dem. Amadou Ba nan la mën a nekkee candidat moom n'est-ce pas d'accord woon ñu dàqee élection yi loolu la wax ci dialogue bi. Hmm? Ah, biñ dàqee élection yi Latif Coulibaly da koo jege daal di démissionné. Hmm. mu jaral ay Eva Marie Coll Seck di démissionné ay Birima Ndiaye ni mu bëggee Macky Sall ni mu ni mu fidèle ci Macky Sall taxaw di attaque ñoom Ablaye euh, euh, Omar Sow état ak ñoom Sahara Iyane Thiam di attaqué. Amadou Ba mi leen ngemb ñiy attaqué moom moo contre signé décret bi. waaw lu kenn xamut lan la kan. kan mooy Amadou Ba. yow yaay contre signé décret bii. ba pare mooy loyauté bi muy wax. waaw mais loyauté mooy lan boo loyauté kay nga ne man. ànd naa ci le président loolu moom du loyauté. non non non lii kenn xamul lu mu doon moom moom loolu moom suuf laa ko yàgg dégg xamul loyauté à géométrie mu démissionné parce que warut a signé yow xamoon na ne bi mu koy signé lii baaxul ci démocratie réew mi baaxul ci sécurité réew mi baaxul ci koom-koom bi baaxul ci dara nan ngay nekk premier ministre ñi signé loolu loo xam ne gëmoo ko bëggoo ko ba pare yaa ngi monté say say militant ne xeex leen lii ñu tasaaroo ci plateau yi di ko xeex yow nga jaar ci suuf contre signé ko ñëw taxaw bu ñu demee ci ñi ci ànd yaa ko signé bu ñu demee ci ci àndut yaa ngi koy xeex kan mooy Amadou Ba finalement. d'accord d'accord mais. le projet Pastef tamit ah, lii kenn projet bi ah, lu jar a laaj lu spécial kuy Amadou Ba war nga ko d' accord d' accord <laughs> mais mais mais tamit gisoo si tâtonnement tantôt sur le poste poste de vice président si CFA bi euh, monnaie nationale ak nangam ak débat bi xaw a jur polémique bu ndaw si mbirum Casamance may demee ak jomaay campagne am ndax jàpp nga ne que si diggante bi daal wane na que daal at mi la waaw mais xam nga réew Euh, d'abord balaa may àddu ci loolu. Mhm. yaa ngi doon laaj lan moo tax OS tey jii buy déplacé wu. Mhm. wala jomaay buy déplacé wu. Mhm. bi di ko topp. dafa am li ñu tuddee ci suñu jargon. Euh, un bon client. ñoom c'est des bons en commercial comme en information. boo mhm. xoolee keroog bi mu génnee le jeudi le vendredi il fait un discours de quarante cinq voire cinquante minutes mais avec les effets multiplicateurs gis nga ça inondé l'internet mhm. et de la même du Sénégal mhm. loolu euh, c'est parce que c'est des bons clients léegi projet bi man débat wu monnaie man dama ko bëgg a parce que pour man Sénégal priorité am loolu maanaam nañu fexe ba ñett yi am ci réew mi mm-hmm. nit ñi tolloo ci soo bëggee jàng mm-hmm. jàng li daal neex comme ni ko constitution bi waxee mm-hmm. moo xam arabophone nga moo xam francophone parce que ñaari mooy li gën siiw ñu fexe ba nit ñi tolloo ci bu ñu feebaree faju yaa ngi dégg ñu fexe ba du am rupture d'égalité ci nit ñi bu ñu bëggee Euh, suñu xiifee lekk ba seen biir fees mm-hmm. c'est-à-dire Ahmed mm-hmm. développement mënta weesu ñett yi mm-hmm. développement mënul weesu ñett yi amul leneen <coughs> beneen bi nga xamante ne c'est le non moins important mooy Ahmed Diallo mais très honnêtement Sénégal dafa sonn ci ay njiit yoo xam ne dañuy sàcc xaalisu réew mi quoi Mm-hmm. mais Ahmed yaa ngi posé wu la question sur pratique yi nga xamante ne dafay échapper sax au corps de contrôle. Mm-hmm. parce que gis nañ fi benn ministre boo xam ne biñ ko envoyé une équipe. Mm-hmm. de corps de contrôle il les a éconduits et ministre boobu pàcc biñ ko jox ci réew mi muy wàllu industrialisation yaa ngi dégg. gis nañ même bu demee. assemblée nationale bi nga xamante ni bii moom il est les autres son élus. Mhm. maanaam siide na sax di leen may débat. sant débat lay nekk. non c'est comme un ministre des forces armées. Mhm. xaw ma nag nan la koy lijjante. Mhm. moi je pense que ne urgence su réew mi foofu la nekk fexe ba nit ñi am yaakaar mën a toog ci dëkk. tâtonnement jàpp ko c'est-à-dire gis nga bu dee danga nga solution. bi nga xam ne moom mooy subtrat wu programme mu bi nga xamante ne ay input lañ ci doon en 2019 di nga xamante ne aussi tamit en 2024 am na yuñ ci yokk yaa ngi dégg mhm. mais amul dara loo xamante ne mooy li fi bees léegi nag attendons de voir à l'exercice du pouvoir comment ils vont se comporter parce que am na ci yu bari yoo xamante ne bi ñun jàppoon nañ ne ay le régime du président Macky Sall dañ ko doon lijjanti mais finalement on s'est rendu compte que sur la question des droits humains Sénégal avancé wu ci sur la question de la justice sociale Ahmed Diallo Sénégal avancé wu ci sur la question de la santé à part les investissements massifs pré ou bien post Covid mais qu'en est capital humain Sénégal avancé wuñ ci. Mhm. sur la question de la transparence Ahmed Diallo kon finalement président dafiy jóge bàyyil ñu fi. ay mhm. questionnement sur la gestion du Covid. Mhm. mu wóor la ni am na ñoo xamante ne amet seen activité mu ngi doon commencer après 18 heures loi bi ne la avant 21 heures demal nga ñibbi sa kër mais amet nos autorités est-ce que en un moment ils se sont arrêtés toog xalaat ne ñii pendant période boobu lan lañ doon dundee amet cest à gis nga wax naa ko démb am na candidat yoo xam ne bu ñu xamoon Sénégal fi mu toll nii nii nii nii ak fan lañ ko war a yóbbu en terme de repositionnement et de positionnement yaa ngi dégg. Hmm. repositionnement et en terme d'influence en Afrique avec un rayonnement sur l'international amet bu ñu ko xamoon ñoom ci seen bopp ñooy retirer seen candidat mais pas ay Cheikh Tidiane ji pas ay Aliou Sy ñoom seen bopp ñooy retirer seen candidat bi boo demee dëkk bu ñuy wax Sing Boyar Sing Boyar c'est dans le Fatick. cent cinquante kilomètres de Dakar une heure vingt minutes de trajet amet gars yi amuñu courant amuñu ndox da ngay jël dëkk bu ñuy wax Jilaas Pape Diouf mu ngi koy way yaa ngi dégg ak Boyaar cinq kilomètres seen diggante sing moo ci nekk mhm. mu ngi mel ni extrémité bii mooy benn dëkk bi point A point B point A ak point B am na ñu courant am nañu ndox point inter point intermédiaire bi amuñu courant amuñu ndox maanaam da dem ci dëkk yoo xamante ne bii fiilu courant yi da leen di traversé amuñu courant mm-hmm. adduction d'eau yi da leen di traversé amuñu ndox loolu mooy réalité réew mi amee dangay dem ci dëkk boo xamante ne bii teen bi niñ ko liggéeyee en terme d'encerclement de protection niñ ko war a defee defewuñ ko ni nga gis bëy bu dox ba dugg ci biir mbaam bu daw ba dugg ci biir mu wóor la ni foofu consommation ndox mi moom par les habitants mënatul nekk te imagines ces gens-là comment ils vont faire pour avoir l'eau potable amet ñun li ñu toog nii di ko def nii taal lamp yi nii loolu luxe euh, luxe la am na ñoo xam dañuy fay 200 francs pour charger seen moom non dañ koy dégg am na ñoo xam ne dañuy dox ay 8 kilomètres ay Fissel Mbadane hmm. xoolal dëkk bu euh, début année scolaire bi ñaari ñetti xale yooyu nga xamante ne bii ñaari engins yi doon def course cassette pël moo leen rey xale yi dañuy topp moo xam sump yi yaa ngi dégg wala salaan yi léeg-léeg di sernu di dox ay kilomètres loolu mooy réalité réew yaa ngi dégg ñun soxlawuñu un président boo xamante ne bii très honnêtement xamul dëkk bi gis nga dëkk bi boo ko xamee am ci ñoom yërmande c'est ça le débat boo xamee sénégalais yi li ñuy dund dëggantaan muy amet lii nii yàq la nga jóge Dakar dem ba Géejawaay dem ba Poutine euh, Pikine mais Ahmed yaa ngi gis xale yi li ñuy jaay li ñuy yor en terme de valeur marchande mais matul sax dix mille te mënuñu koo bañ a def Ahmed am na ñoo xam ne fii ak vingt ans sauf exploit bu extraordinaire mënuñoo amal seen bopp néeg boo xam ne ñoo ko jënd waxuma kër de au même moment dangay gis un ministre boo xamante ne signature kese moo ko mën a may mu mën a am terrain wu par exemple 1000 mètres carrés à Dakar un hectare hectare u Dakar un million cinq cent mille te kooku signature kese moo ko mën a may mën a fay cash léegi nii benn apartement bu trois cent millions mais loolu moo tax gis nga xale yi bi ñu demee ba gis ni am na benn genre souffle am na benn genre fenêtre de tir à travers un programme qui s'appelle PASTEF mais am na ñoo xamante ni bii ku leen waxoon ni élection Sénégal ak ni Sénégalais yi fonke weeru koor xëdd ak ndogu mais li nga gis nii gis gisoo ko woon sax en 2022 loolu la coupe du monde Ahmed Diallo Cheikh Bara moom ngi koy wax léegi 7 heures mu fees dell léegi nag xam nga lan moo mën a dalal dëkk bi mm-hmm. mooy nañu fexe ba dimage bu ñu voté mu am transparence yaa ngi dégg élection yi ñëpp bokk moom mënatul nekk mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. mais au moins nañu respecter la volonté populaire loolu mooy li nga xamante ne bii moom la ñuy wax autorité politique amul leneen léegi nag programme moom amet mhm. candidat boo lire programme nga ne kii mën na yor réew mais bul fàtte ne programme yi am na ci yoo xamante ne bii dañuy fay ay nit ñu bind ko parfois la ñuy taxaw di ko wax ñoom candidat yi sax mais xamewuñ ko comme ni ko programme bi nettalee en terme de narration en terme de récit peeguñu ko noonu peeguñu ko parce que xam nga man man li ma doon neex tey jii un candidat buy wax ci wàllu mbay yaa ngi dégg. Mm-hmm. même bu ko peegul tamit mu am lu mu ci dund. man dem naa dëkk bu ñuy wax bokkul ak ndengeleer mais dëkk bu ñuy wax ndingeleer. waaw c'est dans le Saloum. Mm-hmm. fekk naa fa ay matériel agricole yoo xamante ne bii Senghor moo ko fa bàyyi woon Senghor laa la wax sëñ bi y'a une paysannerie de l'agriculture maanaam nit ñi ci seen. Mm-hmm. mais am na jigéen ñoo xam ne am na góor ñoo xamante ne Ahmed Diallo. boo taseeg ñoom bu ñu demee ba lay nuyu dañuy hésité ni seen loxo wawe ndax liggéey bu metti bi ñuy liggéey ndax liggéey bu metti bi ñuy liggéey moo xam ci wàllu défrichage la moo xam ci wàllu baagu teen yi la moo xam ci wàllu mbay mi la moo xam ci wàllu élevage bi wala ñu ngi ci riziculture bi et cetera te buñ la waxee ne soixante-dix pour cent population Sénégal ñu ngi ci agriculture te jusqu'à présent depuis 1960 mbay mi gaa ñi ba léegi mënuñoo fexe ba suqali ko parce que da koy suqali ba pare doo ko def transformation ci lay entrer en action l'industrialisation donc mbir yi ay étape la. d'accord on est d'accord. d'accord mais Ahmed Diallo jusqu'à présent c'est-à-dire boo jël mën naa toog di la wax retard bi ñu ci am xoolal tey ji président bi muy ñëw il met on mettait 60 milliards ci wàllu meew maanaam gaani meew indi ko ci dëkk au même moment boo demee Linguère meew maa ngi foofu soxla soxlawuñ ko dañ koy tuur ci dex bi ani transformation ani industrialisation. te loolu tey jii mm-hmm. mais Ahmed bu ci état defoon investissement massif bi mu ci war a def am ay unité de transformation yaa ngi dégg am ay unité de congelation mais Ahmed xale yi du ñuy dee comme ça nii nii nii nii comme ay ay ay ay ay mbóot ci géej gi. te au même moment ngay gis koo xamante ne bii. foofu laay daanale amet mhm, mhm. politique kese kese moo mën a tax mu dëkk Dakar jógee ci àll bu xonq ba ñu koy waññeel ay kër pour bañ sax nit ñu xam ko daf koy jaral mu wut ay écran c'est-à-dire ay tur yoo xamante ne bii boo demee sax existé <coughs> loolu mooy problème mu réew amul leneen d'accord Babacar débat programmatique bi jot naa am mhm. nan nga ko gisee non dama gis ne débat programmatique bi nga xam ne jot nañ koo teg dama jàpp ne problème de niveau da ci am problème de niveau def ci am dans la logique où mm. ñu baree baree bari nangu nañ pour étaler benn programme aux yeux de sénégalais waaye maîtriser wu ñu véritablement li programme bi et aujourd'hui dama jàpp ko ne jarul sax di bind ci ay kayit pour weer ci mbedd mi di wane ne lii moo nekk sama programme wala lii moo nekk nangam il suffit tout court de parcourir le Sénégal pour savoir quel discours moom nga war a mën a tenir devant ay nit ñoo xam ne soo demee tey ci benn dëkk war nañ la mën a tàccu xam nga tey bu fekkonte ni dañ ko teg ci baanaka fi mbir mi war a mën njëkk a commencé mooy que ni nit en tant que candidat wala ki nga war a mën bokkal tant que la biir Sénégal pour xam exactement problème bi fi ne kooku warul mën a am fitu ne dafay yëkkati loo xamante moom lay bind pour jëm ko projeté lu ne Sénégal ëllëg peut-être ci la war a mën a soppeekoo bu la yàlla dimbalee nga nekk ñenn ci ñun ñoo xam ne au moins fa jógee nekk na fa sore lool di nga mën a xam les réalité de certains sénégal yi nga xam ne dinañ ko faral di dund. Mhm. c'est-à-dire dëkk nu mu gën a mën a soree rek nga gën a mën a comprendre la moo nekk réalité bi nga xam ne sénégalais peut-être mën nañ ko dund wala mu nekk seen problème mais tey politique yu fi baree bare ñi nit ñi war lañ leen mën a wàññi mënuñ laa wax ginnaaw jam ñaajo nu mel wala bu fekkente ni gis nañ ko rek avion lañ yéeg ca fenêtre ba lañ xool xam nu mu mel ci suuf léegi nit kooku su fekkente ni dafa toog presque dundam ba presque plus de 40 ans mu doog a yegg si waat ci biir Sénégal fas taxaw ci benn zone bëgg la gëm loo ne moom xam na réalité sénégalais wala mën na indi benn soppite ci dundu sénégalais kon xam nga déjà naxante ci foofu lay doo a commencé mais tey problème bi ñu gën a am mooy que ni ñàkkuñu lu ñu war mën waxtaanee parce que tey déjà bu fekkente ne sa xel dellu na ki ci mel ni Papito Kara sa xel delluwaat ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci moment boo xamante ni Sénégal jàpp nañu ñu ngi périr ci lieu boo xamante ni kenn xamagul ëllëg ni muy mel c'est-à-dire un boo xam ne dafa nekk ci lu sombre ñu baree bari ci ay ndaw mu dem ba jaraleen ñi jël ay risques yoo xamante ni xamuñu ëllëgi lan lay doon mhm. parce que leer na ne ñu baree bari ci ñoom bu dee cent pour cent ndax record la Sénégal battre ci question de l'immigration irrégulière ci at mi ñu génn nii mhm. te pourtant moo ni day moom moo ah, nekk ci atum 2024 bi ñu ne mais atum 2024 hmm. <laughs> bi yàgg très bien mais mais mais bi ñu toll problème yi nga xamante ni gën naa étalé wu ci biir Sénégal bi ci gën a war a mën a mag boo ko xoolee bu baax mooy migration bi nga xam ne jotoon naa ñëw mais hmm. immigration boobu noonu sénégalais yi li problème bi mooy ñu ci bare bari nangu ñu wax dëgg ji la parce que dañoo demoon ba toll ci benn étape boo xam ne il y a peu de il ndaw ñoo xam ne amoon nañ benn espoir peut-être ci benn profilu nit hmm. mais profil nit boobu noonu bi ñu demee ba yaakaar ka ne moom demeem dafa nekk loo xam lu lëndëm lu ñu baree bare ci lañ commencé di jël certaines décisions yoo xam ne kenn xamul lan la mhm. mais tey jii ñu dem ba toog war a mën a waxtaan ci ay sujets yoo xam ne yaatu la parce que kenn ku ci ne am nga loo xam ne jaay nga ko nit ñi mhm. mais ñi amoon problème pour mën a exister aux yeux des sénégalais dañoo dem ba jàpp ko ne waxtaan bi wala débat bi ci mais moo tax ma comprendre que ni ñu bëree bëri bind nañ mais li ñu bind xamuñu exactement lan la wala li ñu leen bindal mënuñu la wax na la lan la exactement parce que déjà dama jàpp ko ne tey dafay niroo que ne boo jëlee sa profession bi nga am war ci mën a wékk yenn détails ne moom nga expliquer Sénégalais est-ce que ne kii sax déjà dafa mel ni koo xamante ni moom li mu xam rek loolu moo ko yitteel ma dafay mel leneen yitteelu ko mm-hmm. mais tey am na te mu nekk problème mais n'empêche kenn du ci jël benn programmation boo xam ne am na benn ñoŋ boo xamante ni boo ko expliqué nit ñi dina am xam ne foofu lañ koy teg moo tax na mu yóbbuwaat ma déjà ci li ma parcourir daanaka ci benn benn yi nga xam ne jot naa am. Mm-hmm. faaw ñu naan la non telle personne moom bëgg nañ di ko déglu parce que soo koy déglu moom xam-xam la lay wax. mais telle cette personne boobu noonu nan la def ba mënul am benn popularité boo xam ne au moins ci nit ñi moom lay indi. parce que sénégalais docteur Boubacar Camara loolu dina koy wax lenn la parce que sénégalais dafa bëgg lu mu gàtt gàtt gàtt su hmm. nekkee ci diggante dund ak dee bu gessoo gis la hmm. nit ki loo am am am am xam-xam te sénégalais bi su nekkee ci problème bu gessoo mënul gis wala tey bu nekkee ci benn problème bi amul benn porteur boo xam nangu ko nekk pour dimbale ko soo ko doon dajaleel tous les diplômes du monde tamit kooku mënul laal lijjanti parce que dafay yaakaar que ne quel xam-xam boo mën a am ëllëg ci toll tamit mënuloo génn pour jëm ko soutenir hmm. te tey jii ñeneen ñi lu la problème yaa ngi doon imaginer tey nga am yenn candidat yoo xam ne nekkul keneen moo ne ci seen ginnaaw mais ñu porté ñoom seen propre personne dañuy sillonné biir Sénégal ñooy raw saretu mbaam bu ne ci kaw tali parce que vif vif ji noonu nga koy ndax foo mën a taxaw tamit lenn rek la lay indil mooy lan yow sa jëmmi bopp ji kenn xamu ko parce que mosuloo prôné acte politique bu war a mën tax mhm. nit ñi ne dañuy am benn confiance boo xam ne dinañ ko teg mhm. mooy moom du 2011 la commencé sillonné biir Sénégal. Mhm. mais avec man mu ma fekk Kaymoor la ma fekk. ñëwoon na fa. Kaymoor la ma a la maa ngi tax taxaw nii président Macky Sall mu ngi toog fële. Hmm. jàkkaarloo ak man maa ngi koy gis. li ma lay wax ne c'était en 2011. c'est vrai c'est président Macky mu ngi doon sillonné Sénégal boobu. mu ngi hmm. toog nii jàkkaarloog man te mën naa la compter ñi fa nekkoon assister ko ak moom. Hmm. mais moment boobu noonu mu doon def sax yow nga man maa ngi jàng foofu boobu instant boobu noonu <laughs> ma ne la boobu simple laa nekkoon. Uh-huh. ku mën a ne toog di fàttaleku bi muy déglu Sidy Lamine Niass ci école primaire. kon kay mhm. xam nga ne war naa la fàttali merci très bien mhm. donc moment boobu noonu boo ko xoolee bu baax moom génnam bu njëkk ba nekkuloon génn boo xam ne wàllum populisme moom la doon wut wala wàllum militantisme mhm. mais instant boobu noonu peut-être mën nga dem ne dinaa wuuti ji aperçu pour mën a xam Sénégal c'est quoi le Sénégalais exactement c'est quoi donc ñu bare bari ci ñoom nag dañoo umpale loolu donc am nga a ñëw étaler sur la table moo tax cabinet bi léeg-léeg mhm. jàpp naa ne baax na mais tam école du parti bi ñuy wax mhm. c'est très bien parfois ñu koy remettre sur la table pour que parti politique yi au moins ñu mën a xam lan mooy réalité dundu sénégalais mhm. mais lan mooy réalité sur le terrain mais lan mooy réalité programmatique mais tamit comment décortiquer cette réalité programmatique nga xam ne boo ko tegee nit nañ jàpp ko ne jëmm ji ni mu secrétariat exécutif euh, national bu APR ak balaa cour suprême bi ñaari laay combiné gisoon na ne Amadou bala boo xam ne nii daal mbir yi leerutoon noonu biir bennoo mais bi ñu dépassé étape boobu danga gis ne Amadou Ba bu gën a taxawaat rawatina bi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye génnee gàll ko ay kàddu nga gis ne dafa gën a taxaw taxawaay favori nag nga gis ñu bëri si waa APR di naan Amadou Ba day gagné premier tour mais loolu noonu. booy jàngat Amadou Ba évolution bi def si campagne bi ndax mën nga xaar évolution boobu noonu tàbbi ci urne ba may ko mu génn premier tour par exemple loolu c'est une partie de la question beneen mooy aussi le poids de la diaspora ndax da nga koy nattee 4 pour cent rek comme ni nga koy waxee woon wala ndax jàpp nga ne la diaspora aussi mën na am benn impact bu déterminant ci présidentiel solo ci élection oui waaw ah, xam nga Amadou Ba laata Ousmane Sonko di génn mhm. Amadou Ba bi Ousmane Sonko génnee pare du boobu li tax mooy Amadou Ba bu njëkk ba moom la woon moom mi doon uti. Mhm. ak nit yi porte candidature am ah. Mhm. waaye bu Ousmane Sonko génnee. du mhm. yam ndax ñenn ni dañ ne suñu fitna ngi nii di yo maam fitna jee ngi nii di direeku di ñëw. donc bi nga xamee ne Ousmane Sonko génn rek Amadou Ba ci parteem soutien yi day ëpp ndax am na ñoo xam ne ñoom bëgguñu Amadou Ba. waaye jàpp nañu Ousmane Sonko mii moom bu ñëwee ñoom seen kaso la. est-ce que mm-hmm. ndax ñoom jàpp nañu ci liñ ne jubut mm-hmm. ginnaaw yow nekkoo ci maanaam xam nga nu mu mel mm-hmm. yenn nit ñi jubul ñi booy wax waxi charia sedd woo am na ñoo xam ne boo nee charia rek ñu ne mukk mukk mukk xam nga luñ ciy xalaat daggum loxo gi ñoom looloo leen ragal loo xola charia dara généwu leen ci daggum loxo gi lañ ci ragal léegi nag ñenn ñi génn Sonko ñoom daggum loxo gi lañ ci gis moo tax dañuy daw xam nga léeg-léeg nga def li nga xam ne dangay ngay boole li la neex ak li la naqari def ko. Mhm. ñenn ñi looloo tax ñu jug waaye ñenn ñi xam na ni campagne bi déclenché wu na. Mhm. fond génn na bëgg nañ ci jot seen wàll. parce que fii politique parti au ni muy demee mooy candidat bi day ñëw sa gox mu bëri mu néew dana am lu ñu la sànni nga am loo ci yëngal après toogaat fas te comme ku nguur gi day waaj a jeex foog nga am nag loo rënkaale. Mhm. loolu benn la waaye bëriwul changement nag jàll bu dee da ngay wax rek te yàlla tax. mais mais gën na présent présence médiatique gën na ko am rek xëy na xëy na moom moo déployé. waaw mais jox na ko figure favori ah. wala mu dee ko non logistique la déployé mais nit ñi moom ñëw mais si côté coow bi ko Sonko jomaay Diomaye attaqué. li ma la wax sànq stade ba la song. parce que da doon contre da doon contre stade bi ñu war a def tey. stade du tey xaaju xaajaatu stade ba feesu. xaajut mu jógee fi war a ñëw Malika daa wéet ba ñemewu faa dem. xam na man daal lu ma ci jàngat sax man. Chabar boo xoolee tey ji place de l'obélisque lu mu néew néew néew daana gën a xumbule am am na jëm dafa gën a wéet. après Diomaye ak Sonko. parce que problème mooy élection yi daa des dix jours ñëpp xam kii gañ. ñëpp xam ne carte loolu moo ko rey. li ma ci jàngat. kan mooy directeur directeur campagne am. kenn xamu ko. moom daal mettre na en place son ma ne mooy vendredi boobu nga xamante ci la woote woon directoire te ñu hmm. bari demuñu boo xam ne defe naa Pape Malick Ndour Pape Malick moo fa nekkoon en tant que ay comité hmm. ah, dafa créé ay directoire stratégie comme d'accord bàyyi ko fa bii stratégie bi koom ak yooyu. d'accord man xam nga sax man lu ma jàpp. Mhm. waa Benno yi yëngal seen gox bi fa Amadou Ba ñëwee dañ ko doon woon seen doole kese. waaw yëngaluñ ngir jàppale. Pape Malick nag yëngal nag kii de. waaw waaw ku ci ne rek da nga ko doon woon sa doole. yëngal na gin gi neew de mba doxul. gin gi neew mais nag jàll loolu. Pape Malick yëngal na de Mbappé. parti au pouvoir. c'est parti ba résultat yi. Pape Malick Ndour. xam nga parti au pouvoir mhm. moom. def la plein. Mhm. du jàlloore. Mm-hmm. am nañ moyen bi am nañ logistique bi. Mm-hmm. réew mi xiifal nañ nit ñi. Mm-hmm. waaye yaa ngi gis ay vidéo nit ñi sol t-shirt yeeg yi euh, tissu yi. na la dañ maa loué. démb tas naa benn. waaw du ma la votel man barke sëñ Malika dama faa jaar jëm Kër Massar. donc am na micro Kër Massar laa jëmoon jaar fa rek mhm. maanaam nële laa jaar ñu gis photo yi man nekkuma ci kaw oto bi de photo yi jomaa yi lañ gis ak musique bi rek la ma fa yóbbaale ëpp na deux cent personnes <laughs> après laa laaj ñu ne ma Amadou Ba ñëwu fa te ñooñ Amadou lañ taxoon jóg tisari lañ sol taxaw <laughs> mujj laa toog démb Malika tournalu Malika ah. ñëwu fa maa ngi nuyu maa ngi nuyu Thierno Diop <laughs> Malika laaj ko ko dina ko yëg Cheikh Ousmane wóy la. li nga ci li nga ci comprendre daal mooy Amadou Ba moom jug na di campagne. Mhm. ak ñëpp ba mu des waa parti moom ba mu jugee di campagne ñëpp ànd nañoo moom ci ay nitam ba mu des waa parti parti moom ànduñoo ak moom léegi nag dawal nañ ba ci yàgg ñu jéem ko jaay nit ñi Macky Sall jug na tapé na sur la table ah il va rejoindre son candidat France campagne ga jeex léegi xam nga Amadou Ba xam nga ñan lay mere Diallo mercenaire yi ko mhm. jël mhm. porté candidature di ko gëmloo loo xam ne dara du ci dëgg. te dara waru ko lu dul bëgg poosam. ñoo la gën a xam ne sénégalais ànduñoo ko Amadou. ñooñu nag bis bu ñu voté ba pare moom ci guddi moom gëm naa ni moom ñooñu ñooñoo ko Amadou danañ xat ci réew mi. parce que problème bi mooy dañ ko jaay loo xam ne nekkul xam nga Amadou Ba candidat am euh, candidature am illusion. dafa mel ni ngay daw oto rek nekk ca àll ba seen taataa ndox foog ndox. te gisoo ko bu muy dawal bis bi xanaa. waaw waaw waaw waaw yooyu yëpp hmm. muy gént gi rek Amadou Ba candidature am illusion la. <coughs> muy benn jàlloo ñun d'abord Amadou Ba dañ ko xamul xam man waxuma ay waxu ethnie de xam la personne Amadou Ba dafa opaque trop. am tata la. xaaral ma ñëw rek yow Amadou Ba. am tata réew mi mënu la wax bu jotee ci réew mi fu mu jëm du dëgg. mënula wax bu jotee ci réew mi fan la ko jëme nee nañu homme d'état la ku mhm. am expérience ku xam rouage yu état la waaye xanaa Amadou wax dana bind programme est-ce que xam nga man déception laa am ci programme Amadou Ba campagne bi tijjee man dama foog Ba day wuñum Sonko ak Diomaye candidat yi na leen kaay leen débat nu ñuy yoree réew mi la muy wax ne moo leen jàngal moo wane ko waaye Amadou Ba laa dégg ci ay xase maanaam débat bu bu man foogoon naan débat programmatique lay def. defu ko. lan mooy programme am toog naag Pape Mahaw Diouf na ko lan mooy seen programme. boo waxee ñun la yoonu yokkute Amadou Ba mënul am même gis-gis bi ka le président Macky Sall ci programme yoonu yokkute. mais c'est le candidat de la continuité. waaw léegi yow. continuité PSE PSE nga bëgg a wax. waaw léegi yow PSE. Mhm. yow par A ou B xanaa da am loo ci yokk. ne lii réajuste moins. waaw ne lii di nga ko joyanti fii. lii di nga ko réajuster fii lii di ko éliminer lii di ci yokk lii di ko dindi waaye yow lu ñu wax rek yow nga ne continuité mais ñun continuité dafa am benn aperçu bu ñu ci am mooy à l'heure du bilan boo yee ngi dee ci océan bi à l'heure du bilan boo yee ngi jël yoonu Nicaragua man li am ay mbokk yu tëj seen boutique fii Sandaga dem Nicaragua kenn xamul ni mu toll à l'heure du bilan sénégalais yu bëri désespéré nañ ci dëkk bi ñàkk ci yaakaar loolu mooy continuité bi secteur privé boo xam ne gisul boppam ñaata capitaine d'industrie ñoo doxul fii seen capital ñoo xam ne il faisait partie des top cinq du pays ñaata ñaata ñaata entreprise ñoo fi këpp mais nga baal ma doguma la mais Bassirou Diomaye Faye ba ngay politique ñaari soxnaam yi présenté na leen feenee ah moom daw si mbuur ah, loolu ndax acte politique boobu noo ko mën a séduire na la gente féminine moom sédu moom wane na ne moom il assume te xam nga nag jigéenu réew moom dañoo bëgg góor guy assume bu ngoro gi yéexee sax ñu jàpp sa bopp bi na la yow doo assumer assumer en fait dafa bëri jàllu trop d'opacité autour de la personne d'Amadou Ba moo tax man ma gëm ni ñi ko wër bëgguñ ko xaalisam moo leen intéressé duñ ko wax li koy jëriñ duñ ko defal lu koy jëriñ Amadou Ba amul contact ak sénégalais yi maanaam Cheikh Bara mi ngi na la kenn laa ko mos a gis ak ku ñàkk mais waxuma la ku ñàkk sénégalais yi mbaxal bu tooy ku koy lekk tous les dimanches mooy déconnecté woo quoi déconnecté woo bu jën. yow seetlu woon ne borom alal yëpp ñam yu tooy mooy seen lekk xamoo loolu borom alal yi ci réew mi yëpp ñam yu mooy seen lekk xamoo woon loolu. non pale bi sax dañ fay daje ay daje yoo xamante Sénégal ah, amul benn alal boo xam ne mm-hmm. ñam bu tooy du lekkam. yow nag yaa ak ñoom a yem. da ngeen ah, bëri alal <laughs> xam ngeen pratique yi quoi. ay ñam rek la lekk. <laughs> man moom si si si si laa bokk quoi góorgóorlu laa. moo tax moom bokk góorgóorlu ñoom ñëpp ay ñami tooy rek lañ ko kal ay mbaxalu naar ay mbaxalu de problème bi du problème da mbaxal ngay lekk wala lekkoo mbaxal mooy fexeel ba sénégalais moom bi jóge ci mbaxal moom dem ci tufe su ko bëggee la problème mooy sénégalais yi dañ jàpp ne déjà Amadou Ba candidature am continuité wu candidature li fi nekk la. d'accord li fi nekk mooy la dëkk bu dëgër. sénégalais gisuñu seen bopp état de droit ñu salfaañe ko ku ma am ndey ku ma amul ndey sénégalais yi ñu diviser leen ci ñaar mhm. ñii di xoolee seen moroom ni ñii di xoolee seen moroom ne la am ñoo xam ne am nañ bépp droit ci réew mi yow jàlloo ñaata yoon nga yeewu gis nit taxaw télé wax loo xam ne autorité religieuse wala doomi aadama keneen ku bokkul fi mu bokk bu ko waxee du fanaan kër gis nga continuté bi mu wax bu sénégalais xalaatee état de droit situation bi ak justice rek dana tax moom mu ñàkk réew mi yow sénégalais di kaas justice état de droit yow jàllu fan yi passé li ñu libéré ci nit yow loolu yéemu la réew mi dafa mel ni ñëpp ñoon kaso nit ñëw na la continuté boobu laa yóbbu léegi nag pour daana xam a Amadou Ba jàll xam kan lañ ñàkkee moom chance jot ci réew mi boo fàttalikoo jour bi ñu tapé Amadou Ba chef du gouvernement da nga def édition spéciale. oui. benn dimanche. ay yow Pa Assane. Siressi si Diop Siressi. Mhm. ma ne la Amadou Ba ñëwut ak bâton magique mooy comme bu Cheikh Bara xam naa bu Cheikh Bara moom mën na. soppi lu bëri Thierno Diop. Mhm. waaye Amadou Ba moom bosam mënut soppi dara. ma ne la lenn rek la mën a def ci onze mois yi ko dese. ma ne la sénégalais yi dañoo ne ci fitna diggante Macky sàll ak Ousmane Sonko ak jaaxle. Mhm. ñu jàpp ni moom jege na ñaari am na fu mu jaar ak Sonko mhm. am na fu mu toll ak Macky Sall na nekk ki leen di jubóole apaiser mhm. man la bu ko defee dana séduire sénégalais bu ko deful sénégalais du ñu am ci moom yaakaar mais Amadou Ba bi mu nekkee premier ministre lu Sonko daj lu mburu dul daj ci taal situation yi mu dund yi ci gën a met bi Amadou Ba nekkee premier ministre man keroog bi ñu ko interrogé ci benn télé barricade bi ñu def Sonko sans ordonnance bu juge délibéré mu ne c'est tout à fait normal laa ne kii buñ ko falee ñiy dund lu raw li d'accord la diaspora balaa may ñëwaat si Cheikh na ñàkk xam àddina wala ñàkk xam réew moo tax ne diaspora ni mbooloo bi toll rek lañ toll diaspora ku ci jël minimum am na ñaari nit yu muy dund ñu ko yaakaar waa léegi yow ñooñu bu ku nekk wooyee sa soxna woo sa wayjur woo sa xarit woo sa mbokk woo ki la jege na ko voteel nangam wala bul voteel lii ñooñu est-ce que dinañ nekkati 4 pour cent Macky Sall mii bi muy gagné réew mi est-ce xam nga ndiiraan bi diaspora la commencé. Mhm. waaw waaw. Mhm. diaspora bi muy ñàkk réew mi ndiiraan gi diaspora la. est xam nga ne ba mën na nekk sax influence ci ñenn ñi nga xam ne voté gu ñu woon. merci ñooñu dem am taxawaay boo xam ne da leen di gën a ëttal ngir ñu voté. changement moom toujours diaspora la parce que ñooy gis leneen ñooy gis. dëgg-dëgg état de droit ñooy gis dëgg-dëgg démocratie ñooy gis dëgg-dëgg maanaam beneen les meilleures conditions de vie yi nga xam ni xam nga diaspora yi bu ñuy sonn Sénégal parce que dañu gis leneen lu mën a nekk moo tax. d'accord euh, dama lay jox benn relance comme sànq ni fi wax yi soxna Bassirou Diomaye Faye dem Mbour présenter ses deux épouses politiquement ndax mun nga ko jàppee réponse li fi am coow temps yi nii ak li nga doon wax léegi nii. gaa yi dañu ne woon amul dafa irresponsable amul ñaari jabar amul jabar jabar ca dem na loolu waa benn ñoo ko doon bind fan yii yëpp. waaw ah, loolu tam jaar na fi. waaw léegi nag non seulement waxuma. pour woon ne waaj daal mënut a yor réew daal. waaw waxuma benn waaye mi ngi ñaar léegi nag kon ku dee ku yor benn moo mën a yorum réew kon ku yor ñaar ko koy dàq <laughs> ah ku yorut jabar ngi ne mënut a yorum réew ah te nag sax moom soxna yi dañuy xale sax car macha allah. léegi nag xam naa ne bongo maan yeeg tëggkati sabar yeeg yooyu xay na tey mën nañoo am ñu am chance sax ñu ne tey président mooy tudd ñu mën caa dem ci ngéntal président. d'accord ah xale la di. léegi beneen mbir bi. <laughs> léegi ngéntal président moom mosuñu koo dund ci Sénégal. <laughs> amoon na benn foo ngeen bi ak. Euh, waaw bu fi ak jour waaw. Ah, ngéntal président daal mën nañ ko fee am dégg xëy na ndax gone lañ yor yor yi gone. bongo maa ne nag kon affaire baa ngi noonu. da ko waajal waaw wolof Njaay nag nee na. Mhm. mbay peexu koy wax sax ginaar du topp kuy taxani bàyyi kuy bojj. ma ne ko waaye yàlla na ginaar xàmmee kii taxane kii bojji. ndax moom looloo ko dal. PDS mi déterminé moom fii ne mi ngi topp Amadou Ba yaakaar ne kuy bojj la topp ndeke kii taxani la topp. <laughs> xalaat woon ne sax fa nga jëm. Hmm? PDS mi déterminé tey. waaw PDS de xam nga PDS. wolof Njaay danaan kuy ku ne ku fu ma joxañ ab jant fenk fa del joxañ penku. Mhm. du ma du ma du ma du ma du ma ah. mës a nekk ci lu Mimi Touré nekk te Mimi moom di dem rek nga ne du ma nekk moom ci lenn. Mhm. tey nekk ngeen il parce que PDS dafa sëyul nag Pastef sëy ba tas sëy nag bu tasee boo ca amee doom ju góor ak jigéen da ngay yóbbu doom ju góor ji jigéen ji bàyyi bàyyi fa bu góor beeg papaam. Mhm. mooy élection yu mujj yii ñu mujj a def Benno Bokk Yaakaar euh, euh, nu mu tuddati Yewwi Askan Wi muy waa Pastef. ak waa PDS ñoo ñoo ñoo lëkkaloo woon. Mhm. dem ci élection yi. donc ñoo bokk bu boo demoon tey ay Malem Odar ay Bakel ay ñoom Kër Ndiaye Lo Kër Jëmb maanaam dëkk kaw yi euh, nu mu tuddati. Cissé mm. Cissé euh, Kaymoor ak yëpp. kay moor yooyu dëkk yooyu yëpp boo demee PDS baasu PDS bi baasu yeew bi ñoo ànd battre campagne. Mm. kon loolu ab sëy la. suñ demee ba mu yàgg ñi tas sëy bi dañ fay bàyyi doom wala wala ñu bàyyi fay donc mm. même PDS su contrôle coalition Jomaay PDS bu bokkul rek ñee ñañ doon àndal di campagne la ñu dem àndaliwaat parce que da ngay wax ne quatre cent mille voix yeew yi yëpp ba PDS yëpp yeew yi man naa kaa jël wala mu jël ci genn wàll gi te même bu PDS da d'accord ak moom officiellement parce que dañoo dañoo dañoo sëyoon deuxièmement mooy PDS man man xamoon naa ne danañ danañ dem xamoon naa ko. am na ñu seen mbetteel de. non xamoon naa ko nag man. lu tax waaw leeral lu présidentiel bii la ñuy rëbb. waaye législatif bi war a am après septembre bis bu pere àndut ak Pastef da ciy dem en tant que opposition wala mu ànd ak Benno Bokk Yaakaar dem ci. Mhm. munu bu demalee boppam mënta génne cinq députés yu man lu compliqué lañ jëm muy législatif bi. Mhm. ñoom looloo tax députés yi ci seen bopp ñoo bëgg a dem ci Diomaye. lu présidentiel bi mais xamal ne législatif day ñëw te ñoom dañoo yor kenn ku nekk poste député ay ñoom maam jaara faam ak ñëpp ñu ngi seeni i kenn ku ne mais nañ seetaan jomaay mu gañe réew mi dem tëggi tëggi tëggi législatif ñu ñoom ñu demal seen bopp mën nañoo bañ a am sax cinq député loolu mooy premier problème bi deuxième bi mooy PDS bu amoon li ko gënal deuxième tour lay bokk ci yëf yi mais élection yi dafa am risque jàll ci premier tour loolu moo tax ku teelut dugg doo dugg waaw ah. que boo xool évolution bi Karim Wade bi muy mujjee dafa ne woon man gis naa tendance yi waaye kenn àggul fa ma àggoon man waaye ne waxtaani ñu ngi wéy ba ne sax waxtaan naa ak Khalifa Sall waxtaan bu xóot waaye waxtaani ñu ngi wéy kon toute attente ñenn ñu doon xaar mu dem si Khalifa Sall ñeneen ñu doon xaar mu maandu ba deuxième tour comme li nga waxoon mais tey jii si ajuma ji wala démb si ajuma ji ñu ne basiru jamaay Diakhar fay la ba mu indi sax ay jiixi jaax même au sein du PDS ku mel ni euh, le porte-parole euh, ki dëkk Mbour le porte-parole. Euh, Tafsir Thioye mel ni ku si interrogé wu. Ah, parce que parce que ma ak Mayoro duñ dajee ci dara te Mayoro moo moo moo ngànk yëf yi. Ah, Mayoro moom ma nga woon Mbour moom. Mayoro ngànk mbir mi maanaam mbir mi Mayoro ko yor Tafsir moo tax mu du mooy. booy xool ñoom ñaar dañoo tolloo dayoo ci politique bu kii ngànkee rek kee mooy kee day arrière. loolu day am moo tax ma yoroo affaire bi du ko neex tafsir laay wax affaire bi du ko neex ma yoroo bu ko bu ko engagé rek kee day dem def léegi. tey sax Mayoro laa déglu RFM. waaw mais gis Mayoro moo ngànk mbir mi mhm. même affaire rapport beeg yëpp moo ko ra ngànk ñoom ñaar la ñoo a yem ci dayoo ci politique ko léegi gis nga élection yi élection yi Sonko ak joomaay depuis ñu dem Kaolack képp koo xam ne faroo de laa wax nga toog di analyser politique rek di xool terrain bi da ngay xam ne lii premier tour parce que élection ñaar a koy xëccoo ñaar ñaar heure bii waroon naa fekk ki jiite programme Amadou Ba ak ki jiite programme Diomaye ngay teg ci palaato demal wut Amadou Ba wala wëral ku la fi toogal programme bi amadu Ba yor gisoo kenn ku sol mbubu toog naa ko maa la koy layalal. mais ñoom ñu ngay ŋàññi seen programme de si CFA. mais lan mooy programme am moom. mais yéen daal dangeen ngeen a dugal réew mi si guuta daal maanaam falu bu fi indi CFA. waaw ah. loolu mën naa ci wax lu bëri mais gis nga yéen réunion exécutif bi nga xam ne moom ngay wax naan euh, Macky Sall da ko defoon. Mhm. Macky Sall foofu dafa wax ne gars yi ban yoon nekk ci. ah bon xam nga Amadou Ba nag ñoo ñoo doole. parce que day wax loo xam ne sax wérut nit ñi nit ñi sëkkatal ko ba mu mel ne dëgg. moom mooy bi mu ñëwaat Amadou Ba Macky Sall da ne ko man wóoluwuma ko. yàlla xam na ko laajal xoolal ku fa dem da leen wax ne que ne man wóoluwuma ko parce que damaa waxtaan ak moom secret mu sennal ko hmm. loolu la leen wax mais awma beneen candidat bon Abdallah Ndione du sama candidat lii la leen Macky Sall wax léegi nag ñoom ñoo génn nag ràbbe ko ni mu leen arrangé wax ko mais yow nit dina la man kii dama ko wóoluwut te dafa wax na tamit kenn xamul lu mu nar Macky Sall loolu la leen wax Amadou Ba mënoo ko jege ba xam lu mu nar man xaw ma lu mu nar te itam du nitu secret parce que damaa wax ak moom waxi biir mu génn dégg léegi loolu la Macky Sall wax loolu nag bokkut ak daara Amadou Ba laay jàppale doo gis bind doo gis këyit doo gisub déclaration doo gis lenn lu Macky sàll di wanee ne mi ngi ci amadu Ba amul daf ci génn totalement maandu ci dëkk yi ngay wax nii nag politicien dafa am loo xam ne dañ ko bu ñu ko jaawale Abdoulaye Daouda jàll du nangu bokki jalbe Amadou Ba ñëw fa am fa mobiliser fa mbooloo bu fekkee mobilisation bi day réussir rek day génn ne ko maa ko réussiral récupération la mais jàppalewu ko Farba Ngom Agnam du nangu amadu Ba ñëw fa bu réussiré mu ne ko maa ko réussir loolooy tax dañ lay génneel mbooloo mi ngi mel ne Mimi doon nañ ko ko def ci local yi législatif yi fu mu dem dañ koy génneel mbooloo taxawal ko mais mbooloo mi sama mbooloo la daal yow moom ko hmm. maa ko moom gis nga fii li ma fi yor léegi mais gis nga amadu Ba kenn ku génne koo xam ne ànd naa ak moom ci responsable Benno Bokk Yaakaar yi nga dem àndeek moom beneen gox bu bokkut ak sa gox yow Omar Sarr na la ko xaar hmm. am Abdoulaye Daouda Diallo dëkkam la ko xaar ba dëkkam la ko xaar keneen dëkkam la ko xaar bi mu demee Ndar bi mu demee Louga affaire bi xam nañ ne du réussir Moustapha Diop du ci dugg danaan pat bu réussir mu ne maa ko teree réussir ndax maa demul politique loolu dong la récupération wala ay effectivement boo xoolee tamit Amadou Ba dëgg dëgg dëgg dëgg nit ñi am base politique te nekk te ànd ak Macky Sall te muy dëgg ci ñoom kenn àndutoon moom transhumant ngay nekk ba pare am ak problème Sonko problème bu wér man doog ànd ak moom Ablaye Seydou Sow wala boog nga nekk apériste bu amul base politique docteur Malick Diop amul base. non Mambay sax moom dafa àndut ak moom. waaye Mambay moom lu mareem nekk ca lay nekk lu mareem nekkut nekku ca mareem mu kaful ci candidature amado Ba réewu ci Mambay kafu ci réewu ci. mais Mame yi moo gën a am Amadou Ba ndax Mame yi au moins bi mu bëggee ñu dàq élection laa taxaw directement ne dàq leen élection yi bi mu bëggul Amadou Ba dana bëgguma ñoom Thérèse Faye bi ñu bëggul ñu dàq bi ñu bëggee ñu dàq élection dañoo xool sénégalais nañu bëgg ñu ngeen dàq élection yi mais Amadou Ba dafa taxaw ne taxaw taxawaayu bëggut ñu dàq ko dem ci suuf signé ko ñëpp ko ñoo ko gën Mame Mbaye gën Thérèse Faye ko gën Macky Sall ko gën ndax Macky Sall bi muy dàq daa taxaw directement ne damay dàq tam dàq gi mu dàq moom Amadou Ba ak Macky Sall ñoo ànd dàq élection yi ba noppi amado Ba toogaat ci plateau yi di xas dàqook élection. mais Cheikh Bara réorientation de discours envers président Macky Sall loolu nan lañ ko mën jàngatee même ba ci Ousmane ñu ci parce que donatul candidat kii mooy candidat est-ce que réellement loolu kese la. maanaam réellement Amadou Ba euh, nu mu tuddati ñoom la moo tax seen discours sensé envers Macky Sall. waaw. Macky Sall laajatul troisième mandat laajul troisième mandat dix neuf candidats yi Macky Sall bokk ci campagne lañ nekk léegi dama bëgg ñu dem tem dem ci Macky Sall di wax ay Macky Sall nangam nangam te yow Amadou yi mii taxaw di laaj réew mi nii am ay weex-weexam doo ko génne man loolu tàmbali naa ko bu yàgg man ñu bari dañ may laaj loo jotee ak Amadou Ba man leen moo nekk candidat man Amadou xam naa ko bu baax sama nit la woon. xëy na sax ba léegi. waaw <laughs> mais mënoon naa gën a rafet de. ah nu mu gën a rafete comme lan. ma ne mënoon rafet daal. comme ah, que mais li ngay wax ni yëpp ci moom mais li ngay wax ni yëpp ci moom te te mu ne sa nit ku nu mu mën a mën a nangoo muy nekk sa nit Ba mu a nekkee sa nit mu nekk sama nit léegi lëndëm ma ne ko da ngaa leer ah yéen a ngi Amadou Ba def na quatre fois déclaration de patrimoine waaw bi muy nekk ministre des finances bu muy dugg waaw ak bu muy génn bi muy nekk premier ministre bu muy dugg ak bu muy génn waaw loolu yëpp anamu mi ngi OFNAC mais loolu ngeen koy topp naa ko dafa déclaration patrimoine dafa mi ngi OFNAC lu tax publier wuñ ko xam nga déclaration patrimoine jomaay ci parce que man bi mu ne am naa damay def rek li njëkk gis mooy terrain boo xam ne ma ngi am ca tool tool ay tool mhm. ci inspecteur u imp kon kii waajut a sàcc daa bëgg bu retraité dem bayi kon kii li ci bopp baayam ni ci moom mooy dunde saw ñaq boo paree li nga am nga dem investir ko ci mbay toog di bay xale mi nekk ci mbay moo tax kon bu amee problème bi mu gis ñaga ñaaw ñu nangu tooley baykat xam na ne baykat la mu dem xeexi parce que baykat laa man boobu firin laa ci am Amadou Ba nag ba adduna yi tukki du la wan déclaration patrimoine am ñaari compte yi benn bi trois millions benn bi sept cent mille compte kan Diomaye Faye waaw d'accord loolu set normal tuuti rek la ëppalee Babacar Kébé de c'est normal wala yaa ëppale. moo ah. sax kay. non c'est normal. Mm-hmm. fuuf parce que jomaay. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> jomaay day liggéey. Euh, kër gi mu dëkk kër gu baax la. 200 mètres carrés. waaw 200 mètres carrés ay kër gu baax la bu ñu tabax tabax yu mucc ayib. waaw mu koy wax ci léegi kër gu toll noonu boo ko tabaxee. da fekk sàccoo luubaloo. c'est normal que ne da dina la nii maanaam li nga am lépp di nga ko def ci kër gi wala sax nga yori bor am am na ay bor am na ay bor te nag dama lay wax gis nga booy yi ngay gis ñoom ñi ngi naan ñi yaa ngi naan ay bilan gis nga bilan gis nga yàlla réew alxuraan li muy réew réussitu alxuraan yenant bi la mhm. daa mat man koo incarné mate ko moo tax mhm. alxuraan ji nekk fi mhm. mais bu doon te day wàccee aaya dem di fecc fee di sabar fee nekk fee sàngara aaya yi gars yi fàtt nañ ko de programme wu jub nekk ci këyit du dara ki koy pro incarné mooy dara gis nga Ousmane sonk ak Jomaay loolu la waaye mën a wax lëj mët lëj mët lëj mët lëj mët duñ ay sàcc duñ ay fenkat kooku maa la ko wax gis nga Ousmane Sonko boo xamoon condition yi mu amee këram gii ngay doog a xam. si kër góor gi waaw lu bëri damay gis ñu naan. li mu am kër si kër góor gi warut woon a mën a liggéey ba am ko man si kër góor gi loolu gis nga bi ma ko déggee man lépp dama koy topp. gis nga dafa am mën naa laa wan bu subaa naa la jox numéro. Mhm. ki nga xam ne moo doon moo tabaxal xam nga Sonko kër la amoon Est Foire. Mhm. Est Foire ku la laaj fu Sonko ma sa am titre foncier ne ko Est fa la njëkk am ab titre foncier. Mhm. tabax ko R plus ñu dem ba mu yàgg mu mu gis terrain cité kër góor gi ne da koo bëgg. jaay kër gi. bi mu ko jaayee jël xaalis bi ñëw jënde ko terrain cité kër góor gi di kolo kolo di tabax. bi mu defee RPL réseaux sociaux la ko def amatul dërëm mu dem leb banque pour def RPL 1 moo tax bi mu koy bi ñu koy dàq yaa ngi doon dégg ñu naan daa am bor ci banque bi bu fayut ñu nangu kër gi. Mhm. booba RPL li mu tabaxee RPL 1 bi loola la ci la gaaw lijjanti xaw ma 14 millions la desoon xaw ma mu gaaw lijjanti ko fay ko. boo doon wër adduna ba mu daj fépp suuf wu nekk ci turu Ousmane Sonko wudul kër Keur bi doo ko gis. te foofu titre foncier global la cité kër góor gi yëpp du titre foncier individuel Ousmane loolu mooy loolu mooy jaar-jaaram ak xaalis yëru dërëm. foofu xam nga boo xoolee Ousmane gis nga ni différence bi bëriwut ay nit lañ yoo xam ne seen carrière ak seen amam dañoo yem ci li leen seen salaire yi may. léegi Diallo de l'autre côté xoolal seen nawle yi nekk DGID. ñaata nit lañ may kër ñaata terrain lañ am ñaata kër lañ am fan lañ ko am ak train de vie bi ñuy mëne en mais, yaa ngi indi ressemblance mais est-ce que joxul tam benn paternalisme boo xam ne nii maanaam nit day mel ni daf koy am ku ko yëlif te kooku ñu war kaa fal loolu tamit. Diomaye fay pour am ku koy yëlif kooku war koo fal Diomaye gañ Ousmane yëlifu ko moom. xam nga foofu foofu dafa am lu ma lay wax gis nga. dama doon xaaral ma àggale la lii ma lay wax gis nga jomaay bi oto bu baax oto bu baax laa la oto la yor ñaar waaw mi ngi si déclaration de patrimoine oto oto bu baax laa wax bi mu ko amee ak bi ko jàppee ci kaso bi mutul ñaari weer oto ba mu njëkk a yor ak ak faraj la woon boo xam ne fu ma ko mas a gis ne ko wut doo wutub oto ba mu ko amee keroog ba mag a magaañu ma dem di ko jaale ji fekk mu yor oto bi mu mu muy doog a jot ma ne ma malheureusement am naab oto kaa ñaanal ma ci muy ford nii mooy mooy ford yu yu kii yi te booba sax du du yu seer ah xaw ma man damaa xamut ay ay oto yu waaw mm-hmm. mooy yu set place yi boobu la bu weex tàll ba ma demee ca bis booba la ne ma waaw kay yow sama yor oto bu bees kaa ñaanal ma ci ma dugg ci oto bi ñaanal ko teguñu ci dara booba laa ko mujjee gis sax ba niñ ko jàppe ab oto bu baax sax amu ko woon parce que dafa tabax kër te kër moom boo ko tabaxee mu gànca léegi nee nga nit yilif ko dama laa bëgg yëgal ne gis nga Macky Sonko mm-hmm. dafa am lu mu am xam nga Abdou Guité ngi koy way naan ndax wàlli yu la wala xutbu la xam nga lu tax mooy niveau information bi mu yoree ndax dañuy wax est-ce xelum kese la te loolu lu garaaw la parce que nit gis nga boo nemee ci ñiy def euh, ñiy def RC mm-hmm. ah ñiy def wàllum métier renseignement scénario yi ñu koy def dañ lay jàngal boo amee information yi ba pare ni nga koy segge yi ci wér ak yi nga xam ne da topp waaye wéru xoola kese tam yi rek ngay jël vidéo yi information yi mu doon jëlee ci Macky Sall dangay xam ne yu bari la nan la ko seggee ba xam ne yii mooy yi wér yii mooy am exact duñ ma jox sama parrainage bu ma demee dañ may baare bu ma dugalee Diomaye danañ ko attaqué ak Cheikh Tidiane Dièye mais bu ma dugalee Habib Sy def ko ba mu normal ki xam loolu da ngaa yaakaar ne xamul ne barte dana ko war borom borom Dakar est-ce ne la est-ce que am niveau xam li Macky ko ba teg ko def ko ci kaset teg hmm. am une heure sans wax xam ne xamul mi warkat la. est-ce que Barth da koo war. non ko Barth naral kon bu war bi dafa diis. Hmm. est-ce que kaay yi mu doon nat naat nati di leen di leen di leen di leen di leen di wutali ay ay di leen di leen campagne bi gën a metti Sonko def ko député yooyu est-ce que am na ci kenn ko woo naan ko sa salaire nii nga koy seeree wala lii ngeen may defal lijjantiwu leen sax te pourtant moo leen fal Abba mbay ma ngi taxaw tey jàkkaarloog moom pourtant Sonko ko fal moo ko campagne tête de liste ba lépp falu ki mën a def loolu mën a fal ay maire te lijjantiwu leen maire Ahmed Aydara bu fa Sonko masee dem benn yoon la ma ngay ànd ak Malick Gakou lijjantiwu su Sonko masee Abba Mbaye ak Barthélémy Dias ak ñu yóbbu député jeex na da nga cee a gis kenn comme dab naan la sama yëf nga yor pour lan ngeen gëm ne kon bu falee jomaay moom da ko naan sama yëf nga dañ ne lu lu feeñ ci sëy nuyoo na ca ngoro ga dañ koo fayut ngoro gi Sonko ngoro kay mooy ku mas a fal lam la fale bàyyi na la ak sénégalais yi bàyyi la ak sam xel nga di ko doxal moom lam ci war a doxee mu koy dox bàyyi la ak sa bopp lu tax ngeen gëm ne kon bu falee jomaay di ko bàyyi ak boppam li doon président di neex neex neex neex falu président ko dàq sëñ bi da nga yaakaar ne bu fekkoon falu président rek mooy dara sëñ Muntaxa dem wuti nekk candidat yi wala sëñ Saaliwu wala keneen mais dafa lu dàq loolu li dàq président la ko yore tey. mooy lan. ah boo taxawee ak président yow la boo ko mere woon tey ñëpp mere ko loolu da looloo gën a garaaw li ah président de la république mu wër na la boo ko téléphoné woon ne ko mere naa la du nelaw ci lal tey looloo looloo dàq lépp li Macky Sall bi muy jot ci président gi looloo looloo gënoon a rëy ci àdduna moo tax mu jot ci. foofu la mën a yem mais Sonko tey jot doon président gën te rëy ci àddunaam dafa am leneen lu supérieur doon président lu mu doon te ba muy politique xaaru ko woon àdduna lépp ay bunt la yuy tijjeeku ngay dem su fekkee nag am nga dal am ak ak am am setantal settantal maanaam mbir yi événement yi ñëw ci sa kanam ngay saisir tey Ousmane Sonko du candidat jomaay fay bari ki démb moo njaay ñi gën a néew bayre ci Pastef la bokkoon ñi fa gën a néew bayre tey jii maanaam jomaay muy ñëw ak Sonko muy ñëw kenn xàmmewu leen ku ko def du sangoo du naan maanaam jox benn joxañu ak Ousmane rek képp. mais bokkam ci biir nguur gi. est-ce que mën Ousmane Sonko possibilité lay war a mën. lenn dama la koy wax. mooy. xam nga ñu bari dañoo deful ndànk yow nag sëñ bi ab journaliste ngeen def leen benn documentaire ngeen jéem a xam. kan mooy Ousmane Sonko lan la bëgg lan la xër ci lan la faible lan la mënta muñ lan la mën a muñ ak mooy kan. man de Cheikh Bara du ma bett mu bañ a jël benn personne ci man de dama ne la bettu ma. non ñu ngi ci. dama ne la documentaire moom ñu ngi ci. bettu boo koy boo koy def nag na ngeen ko def ci ñu xam Sonko ci xàqu lay taxalaa nga jël ko ca xam nga nit koo xam ne yow man Sonko am na mas na ma koo laaj gis nga bis bi njëkkee gisante ci àdduna man xam nga dama xaw a bizarre man duma man. damay kii quoi dama ko ne bi ñu lay dàq looy ñaata nga yore woon mu ne ma man bi ñu may dàq set mille francs laa amoon ci xaalis te booba yor naa ordonnance sama poos yu ma war a jëndal sama jabar yaa man sëñ Baara dëkk naa ci ay tabax ak sama soxna foo xam ne maanaam karawuñ ko perawuñ ko ma toog fa muñ ko te booba maa ngi liggéey di tiim ay millions ki mu la ma muñoon noonu noonu ma muñ ko ma muñ ko ah. nga xamoon ne mënoon na maa dem sama bureau lijjanti benn vingt millions ñëw karo sama kër ma muñ ko suñ ma dàqee dafa fekk muñ boobu tàmm naa ko waxtaan na ma ak soxnaam man ak mbooloo sax mu ne woor na xëy nañ woor ba tey ngir ah. ñàkk luñ lekk xëy xam ne ndékki bi ak añ bi boo ko bëggee seere doo reer ñu ne nañ far woor te kuy kuy xëy ci impôt réew mi bu amul bu amul état bi bu amul impot du dund yow yaa jàng état bi nan nga koy demele ci nit ñi jële fa xaalis injil ko ko loolu la jàng nga xam ne maanaam balaa état bee dund Sonko mooy ñëw ak ñoom Bassirou Diomaye Faye mën a xam ne ko léegi yow yaa moom lii mu ne waa mu mën a dem créer ci nit ñi nan la ñuy roccate xaalis jël ko ñëw jox ko état nga xam ne li état bi dundee lépp Macky Sall mbooleem ba Farba Ngom milliards yi mu def ci poosam yëpp Sonko ko wattee ci garab gi jox ko ko indil ko ko te moom lekku ci ki man loolu dafa muñ mën a muñ lu baree baree bari ñu bari nag dañuy natt Sonko ci seen bopp voilà Sonko mën naa laa waatal ci yàlla hmm. boo moytuwul mën ngaa xëy ñu ne Sonko mooy sëfooru jamaay mu nekk ci respecté ko di ko wooyee mu seen patron ba keroog muy matal te du dara ci moom wala muy am ci mën naa ko waat nag kon yaakaaroo mu dugg ci gouvernement bi ma ne la bu fekkee dugg ci neex na ko da ciy dugg di liggéey comme ministre yëpp bu fekkente ne gis na ne ne dawalal jomaay di ànd ak moom di waxtaan ak moom loolu loolu la ko war a defal da ko koy defal ñu bari loolu lañ xamul ci Sonko nit ku nit ku spécial la nit ku spécial la lii ñu foog nii defe na day ñëw jonguru ko naan maa la jox lii ma la waajay defoon abal waa ji mbubb mi topp ko buñ demee ci xew bu bëgg a toog mu fa taxawal mu taxaw mu faxas fi mu toog na ko toogal sama mbubb la mais si wàllum loolu Sonko du def noonu si wàllum communication est-ce que Diomaye a convaincu si wàllum communication waaw wàllum communication am na ñuy naan la Diomaye yéex naa jénn sax yenn opposant yi ah naan Diomaye yéex naa jénn de waaw ah, loolu ay wax la rek bu teeloon bu teeloon jénn sax seen musiba génn fi mu coow lu coow lu coow lu du am ñaari ñaari communication yu am yu benn bokkut ak morom ji mooy taxaw yorub mikoro di def euh, comme DJ Bob su ni muy def loolu Macky Sall sax mënu ko maanaam nekk ci kanamu mbooloo show nuyu naa leen nangam nangam loolu Khalifa Sall mënu ko Macky Sall mënu ko Youssou Ndour mënu ko Mbaye Guèye Faye li muy defal Youssou Youssou la ko mënu non mais politique nag dafa am nu ñuy waxee par exemple loxo ca kaw yooyu noonu maanaam par exemple Ousmane Sonko door si mbooloo mënu ko boobu waaw defal ndànk boobu Déthié mais arrangé communication rek nit ku ci ci communication rek maanaam amul xam nañ loolu nit ñi dañoo bëgg ñëw rek ne jomaay mënut a communiquer ku far ci communiquer amul non wax ma perfection fii ne Youssou Ndour dafa bu ma dugal foofu si way politique yi laa dama lay jàngatal foofu ci communiqué rek Youssou Ndour fii ne Europe micro na ko mais toog ñii dara ba mu leer pour dëggal li nga la preuve bi ñu ko defee ministre mu dem assemblée waa PDC dañ ko doon reetaan waaw bi muy présenté budget am en tant que ministre delluwaatal ci archive yi te xoolal ni bopp bi li ci mën nekk mën naa mën naa créer fii lu ne nit ñi di ko dundee mais toog nii di expliquer Youssou mënu ko tey sëriñ buub mbooleem ñiy wax ku ci ëpp xam-xam amut mais ni mu koy waxee xaal bi mu koy waxee moo mooy dal ba mu ëpp ba kenn du ci bàyyi xel mais mbooleem ñiy wax nii maanaam suqali wax wax wax lu jub lu fasu sëriñ moo ko man mais ni mu koy waxee day wéeru ne nii. mais sëriñ bu ci boole ko fàtte yow. si du ci boolee sest nii lay def di wax lu am solo nag daan ne nii nag nga yaakaar ne heureusement bi ñu ko tuddee parce que sànq dañ koo kii day nelaw après mm-hmm. léegi doo ko déglu fekk li li ñu wax jinaan yi mm-hmm. jomaay nit la koo xam ne bu dee toog nii nga indil ko xam ab wax rek mu argumenté wat ko kooku moom kenn dàpp non mën na émission mais mutu mais des naa mën taxaw ci kanamu public nii di wax waaw des na ko mën loolu nag émission moom mën na ko lool sax mën na ko émission moom mën na ko lool xalifa mën na ko Abdou Diouf mënu ko Abdoulaye Wade ko mënoon Macky sàll mii bu jàkkaaroo ko public du wax waxi dara. non Macky Macky Macky day porté. discours nii discours ci kanamu kanamu téeméeri nit. Macky Macky voix am day porté. non non mënu ko. Macky dafa toj réew mi toj. mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko. mënu ko non Macky toj na de. Macky Macky mënu mënu ko. Macky plateau nii sax mënu ko. Macky discours à la nation la man mooy. Cheikh Bara doo seeraan Macky de. Euh, mon cher compatriote. loolu moom dangay ngay xam ne kii président la vraiment ak su dóor costume bu bula bi taxaw mhm. mais débat nii boo ko indilee contradiction day mer daal di wax lu gàtt loo xam ne waru ko woon a wax en tank que président bu dee public nii tamit mënut a wax naan na ñu naan na dem na dem eh, demeewu ma noonu maanaam mais <laughs> communication du noonu de mais jomaay nag ay maxaasa non yi dafa am xam-xam te su toogeeg yow day argumenté ba nga bëgg day argumenté gis nga Birame Souleye Diop tey mhm. bu dee taxaw nii liirub discours nii waaw moo ko daa ko wax ci réew mi la bokk mais toog ci plateau nii ngay am muy indi mënu ko moo tax ma la communication ay poste la de foule la mais communication la a débat dafa des buy débat nii dafa des ay poste la da ngay fii mais ñooñu Guy Marius Sagna li mën da ngay fii ñoo defee même Guy Marius Sagna mënul émission. non si non non mënul émission. non si non mënul émission. moo leen dàq arrangé ful. Guy Marius Sagna xam nga lu mu mën. moo leen dàq émission li Diomaye nag. mooy mbokk yi duñ ko nangu. ku bëgg def nag. loolu la gi man nag. xeexat na gii syndicaliste la lool la man yëngal mbooloo mi xabtal leen. Mm. boobu nag jomaay mënut boobu. mais boobu gii moo ko man mais bu gii bu dee émission yi day yaru ba ëpp. Mm. comme li dal sëriñ boobu dafa xaw a dal gii. moo tax boo dee xool ñu jël. mais ñu jël sax ay ñi ñi communication ñu gis mën passé bëriwul am na ku mel ne Ngagne Demba Touré ngay gën a sawar ci jël ko ci jii non Ngagne Demba moom leneen voilà mi ngoog nag Ngagne Demba comme Babacar Kébé la mel mi ngoog léegi nag noon la affaire bi demee moo tax bu leen jomaay rek tëlee na lee man na lee mais jomaay dafa am xorom nit ku am xorom la d'ailleurs <laughs> am na xorom te xam-xam bu bu tegu dafa nekk ci moom man damaa dem ci kaso bi seete ko dama doon def chaque semaine dinaa yónni nit ne ko dama seetali ma joomaay bu dee dafa am lu ma bëgg a wax mu wax ma ko man bu ma koy wax dara ma wax ko kenn yónni ko ko benn bis ma demal sama bopp ba yegg ne ko nag tey ñëw maa ñëw xam lu ma ñor nag moo ma andi mu ne ma ah ma ne ko waaw gis bi ma ko ne lu ma ñor moo ma andi daal ne yóot kaye bi ak ak akos mbik teg ci wetam di ma déglu ne ko élection yii nu jëm de mu ne ma ma ne ko bu ñu amul stratégie bu tegu duñ bokk stratégie rek wëndeel wëndeel ba gars yi miir rek am lu ñëw waaye bu dee teg nii rek muy dem duñ bokk parce que loi demul mun ne ma ah bon ma ne ko waaw man ne ko nag léegi mu ne ma léegi stratégie ma ne ko xalaat naa way kenn ku ma la ci gën a wóolu yow amul nii laa ko waxee na ko bu dee teg ay plan ñii yu ñu mën a yóbbu hmm. yow mii yaa ma ci doy léegi nag li may bañ mooy nga toog fii mënoo gis sonko sonko mënu laa gis mais defal moyen yoo man boo manee ngay bind di jox avocat yi ñi koy jox muy bind di la jox mais deel am information yi nga soxla nga tëral stratégie yoo xam ne dinañ am candidat te man xam nga ne man su ma demee ba xalaat ba ne ba ne bu jomaay xalaatee mu dox xam nga ne man xam naa jomaay kon xam naa ne xalaatkat la xalaatkat la maa ngi fàttaliku benn yoon boo xam ne dañoo xaw a werante maak moom tuuti du ma wax nag li ñu waaye dafa défendre Adji Sarr man gisewuma noonu pour wax la maandu teem ma ne ko non man du ma ko def mu ne ma noonu nii la def ma ne ko du noonu bañ xaw cee xëkkante ma ne ko téyel li nga téye ma téye li ma téye. loolu la moom si mbirum Adji Sarr. la wax ngeen doon werante noonu non du ko wax. <laughs> moom position am dafa. non daf ko doon def ne ma. du nii nii la parce que loolu maanaam dafa favorable ci aji maanaam def ko def ko daf maanaam daf ko daf ko défendre daal ci gàttal ci benn loo xamante ni dafa yaakaar maanaam dañ koo defloo daal waaye daal non non non non du loolu yeneen affaire la yoo xam ne suñuy mbir la daal dama laa bëgg wax ne rek humanité moom humanisme ak xalaat ak mën a déglu nit ak teey maanaam yooyu yàlla da ko jox ba pare jama jomaay nit ku kaamil la comme ku am ak mat la daal am nag mat ànd nañ tukki France maak moom jamono yi mu yoree diaspora bi. jamono yi mu yoree diaspora xanaa. waaw boobu defe naa ko waaw. mu ab ab ab diine daal la woon. mu doon coordonné nekk fa ba mu jógee fa ñu dem Belgique ma doog a jógee Belgique bàyyi leen fa ñibbisi. xam naa ko bu wér waaye daal man du ma waxantu nag. li ma lay wax nii gis nga joomaay nit la koo xam ne li ko di incarné ni mu ko bëggee joomaay moo ko mën te ñu bëree bëri dañoo defoon ne bu jamaay jëlee ay émission toog rek. maanaam benn xuusmaa ñàpp la goo xam ne day jaawale ay article di juum di jaxase fii bu ko defee ñu mën ne walaa kaay leen ba mu ñëwee ak nëgëni te jomaay ci palaato yi la dëkkoon amul palaato yow mii def nga ak moom émission mësoo mhm. dégg kuy xeeb jomaay dem ciy waxam mas nga koo gis kuy kenn ku yël daggiitu waxu jomaay rek naan déglul fii li mu wax amul li muy wax day kaadare mat sëkk gis nga loolu ñi koy xas nag ñoom dañ koy dañ koy jël natt ko ci ab tubaab wala ñu natt ko ci keneen dégg nga naan xoolal ni mu sewe xoolal ni mu ñuule xoolal ni mu ñaawe waaye jomaay moom nuruwut du dudub séeréer doo nga la nuru waaw jolo nag ñaawut bàyyam la nuru ab sénégalais bu demee ba koy xeeb parce que dafa nuroo ko sénégalais ñi koy xeeb ay complexe lañ may wax Lat Diop naan bu demee taxaw ak Joe Biden Joe Biden ak quatre-vingt-deux ans taxaw sax bu baax kooku bu taxawee ak joomaay sëñ bi ñun ñu xam ne ñun ay nit lañ ndax fal nañ gone gu dëgër yow Donald Trump bu mënee jiiteem réew jiite première puissance adduna bi Donald Trump ak na may doxee ak na muy waxee na muy falax falaxee américains est-ce que nee nañ ki bopp bi daa rëy wala bopp daa bëri daa rëy wala duñ ko fal moo tax ñun da ngay yëg ne ñun jafe-jafe biñ am mooy lu tax Lat Diop ay ñoom sa xarit bi Moussa Bokar Thiam waaw moom moo sama ay Pape Malick suñu ministre ay Mame Mbaye Niang nan lan def ñun bañ toog fii sëñ al maan Sy Cissé mi di leen wax monsieur le ministre ñi ñuy décider ci kawam ko mais kenn ku ci ne ak équipe parce que ñu bëri ñu ngi naan imaginer Diomaye nekk ëllëg président mu dugal Cheikh Bara Ndiaye comme ministre wala ay ma jox dama leen bàyyi nga intervenir après ñu ñëwaat Cheikh Bara bu nekkee am loo bëgg a préciser rek boo bëggee am loo sof rek wala mu ñëwaat si moom ma bàyyi ah Cheikh Ousmane ma demaat si Cheikh Bara parce que tey mooy suñu gànnaaw ñu privilégié ah. quoi. boo gis ci man nii. am ñu naan mais xoolal ñu topp Diomaye yëpp ëllëg bu Diomaye faloo nan lay def ak Cheikh Bara Ndiaye. nan lay def ak mm, Cheikh nan lay def ak Dame Mbodj nan lay def ak lay def ak nan lay def ñoom Diop Taïf ak ñooñu nan lay def ak ñoom waaw surtout ak allié après ñu doog a ñëw ci allié waaw yow kay dafa am lu ma la bëgg a njëkk a xalaat naa ne dama lay wax ma a ku lay xas ci lay topp rek xas ci ñi la topp rek daa ñu la topp yow Boubacar kan nga xam ku koy topp na xam bu yor Sénégal pire mais amul équipe mel moom moo ànd di laaj équipe équipe équipe laax Boubacar Camara boo ko faloon tay tay tay day xëy di wër ko ñu mu àndal bi mate na ko mën naa yor réew mii man maa la ko wax yàlla xam na ko mais ana équipe am. Siré si de bokkoon na si. à part à part Serigne Boub ana équipe bi ngay doxal réew. <laughs> ndam si Sonko ah? Siré si. <laughs> ndam si euh, Sonko euh, euh, nu mu tuddati Anta Babacar Ngom. am na xam-xam. mais ana ñu ana équipe bi bi mu war a yore réew mi équipe bi ana mu ah. Thierno Alassane hmm. ana équipe bi. moom da nga koo fàtte woon sànq. ana équipe bi. ah. Mhm. Mame Boye ana équipe am. si am na ay booy yu koy topp de. équipe bi laa équipe boo xam ne man la ministre génneel ci ministre intérieur génneel la finance defal la DG yi loolu Pastef doo nga ko fi am nañu waxante dëgg Pastef nag bu amee ñu cadre ba am mouvement de cadre bu Diomaye jiite bu après mu am ay Diop Taïf ak ay ñoom Cheikh Bara ak ay ñoom ñooñu nag da ngay xam daa nekk daa nekk ko loo xam ne askan wi la léegi nag man man est-ce que man damay nekk ministre wala damay nekk député hmm. loolu tontu naa ci tontooti ko dinaa du ma nekk dara. bu yàlla buggoo du ma nekk dara. mais bu ñu jàpp naa ne jàpp naa ne li ma wax nii li ma wax nii. waaw maa quatre-vingt-dix pour cent Pastef ñoo ko bokkule. ñoo xam ne nag ñu bëri jàpp nañ ne dañoo bëgg dara dégg nga. Hmm. maa ngi fàttaliku ko kenn ci Pastef jërul ma koy tudd na xaw ma neex na ko mu déet. te xaw ëllëg àdduna àdduna dafa gudd tànk mën naa am ëllëg mu falu mën naa am ëllëg mu falu waaw ñu naan ah pourtant Cheikh Bara daa waxoon kii bëggut dañ koo def suppléant suppléant suppléant laa la wax de waaw ci ci benn département mu meram meram meram mer man di mertu ci man lu tax ñi may def suppléant ma defe ne man dafa bëgg a nekk ci kaw mu ne ma damaa dogu woon ci yàlla dinaa ànd ak Sonko ba bàyyi ko du ma feeñ ci lenn lu muy joxe bëggul benn dombo tànk te ñu te kooku mooy moo gën a taxaw ci Pastef tey tey mbooloo mee nekkoon fee mën naa wax ne bu du woon ak taxawaayam du am te ñu bëri ñu ngi yaakaar ne <laughs> daa bëgg dara te kenn ëpp ko fa xam-xam kenn ëpp ko fa responsabilité te man xam naa ne ñàkk na sax fame sëyam parce que parti bi te man moo ma wax loolu su ma la ko tudd loon nga ne diw kon léegi kooku yaa ngi yàpp ne kii moom day wiise poste xaaju ko wiise Pastef man ku ma waxoon demal grève de la faim vingt-huit jours ma def la ministre du ma ko def man da ko def yow toog lekkoo naanoo juróom ñaar fukki fan ak weer vingt-huit jours laa toog lekkuma te xeex rek moo ma ci dugal. kon de koor dara si yow. xeex pourtant man bu ma waree di bëgg a dee ma looloo ma jaaxal. Hmm. <laughs> mais bu ñu la joxoon poste ministre Koundoudia man bi ma leen gisee bi ma leen gisee si weeru koor ngay campagne laa ne bu leen topp Cheikh mi la ne ko da ngay seere bu la faim ku mos grève mii yaa koy def du yow mii nii nii nii mënu ko mënu ko ah, maanaam situation moo lay nekk mais du yow yaa koy def nii yow mii man woor bu tey deux minutes nangu ma bu ndokk jotee damaa ne waa ji da ngay seere ci tali daa seere de ñu defar café gi ndéeg ndokk <laughs> sooga <laughs> nga man amul bu Pastef li ñoom Diop Taïf mii li ñuy daj ci Pastef ak ñoom saa wolof ñoom saa li ñuy daj ci Pastef loolu mhm. poste ministre fayu ko poste DC fayu ko Sonko mënut a fay ñu ñu ànd ak moom xam nga lan la ñu mën a reconnaissant képp jàpp nga ni def na ko Sonko moom am na reconnaissance mais dama ne la reconnaissant rek maanaam am maanaam reconna reconnaissant bañ a fàtte mbir mi daal. fi mu ngor daal ngore gore. koo ci gis ñi la ñi la demal kaso. ñi ci dee seeni parent mhm. maanaam nga dund ko daal bañ xam ne yow lii ñu doon def ni asaarut ba pare tamit xeex bi. Mhm. bañ a niil mooy bu bu joomaay jëlee maanaam liñ waxante ak sénégalais yi mu nekk ci. su ko defee rek ñun siggi nañ jeex na mais ay poste ministre mënuñoo fay man man dama la koy wax fii. xaaroo ko suppléant chef de quartier maire député ministre DG conseiller amul lu may jël. xanaa da ngay opposé wu après. non du ma opposé wu. nooy def doo opposé wu parce man ñii di yor nii gëm naa leen man opposant laa de nature man wax dëgg yàlla. boo gisee boo gisee boo gisee ñu wàcc yoon xanaa nag di nga alerter. non wala ñu def lu nduróog la nga doon xeex. man du ma toog fii du ma mës a gis ci àdduna ma toog di défendre lu dul dëgg. Mhm. doo ko mës a gis. d'accord waaye nag boo yi man gëm naa leen man joomaay gëm naa ko gis nga déclaration patrimoine bii mu def nii dëgg la liggéey bi muy wax nii dëgg la te dana toog ba jóge fi ay affaire u sàcc ay affaire u njublan yi gaa yi di def nii du am léegi nag li ci des hmm. foofu nag la baaxe mooy yenn procès yi ngeen teg nii baaxut employé bi ngeen digoon xale yi matut nangam nangam kooku problème la boo xam ne ci la ñuy dëkk ma ñoom mais yéen ko sàcc yéen a ko fen yaa tëj di waroo ko woon tëj loolu moom Pastef du def loolu man xam naa ko du ko def duñ ko def mhm. du loolu li ñuy a am nag ñun ak ñoom mhm. gi ba léegi parce que employé yi ngeen waxoon mbay mi nangam nangam baykat bi investiture bi nangam nangam sa ministre bi dàq ko parce que lii kat la fi mu indi woon bi daa baaxul d' accord léegi laaj bi am na changement suñu koy junj. Hmm. Darou Mouhty qu'est-ce qui s'est passé lan moo xew sa diggante Diagne Fada. waaw loolu de moom ñëw naa ci ñëwaat ñëwaat ci waaye hmm. dinaa ci ñëwaat que ñi seetaan bokkul Diagne Fada. bokkul public yi du benn te fi mu doon yaa ngi Sénégal dafa Moussa Bokar Thiam depuis le grand nu ñuy politiqué. mooy ñoom dañuy jàpp ne politique ñoom dañoo am ay kaw-kaw yuñ yuñ yekku bu demee ci kaw-kaw bi. yóbbu seenu walis bu ñuy ñëw nañ jël ay garde corps jël oto yu naan vi vi xam nga yooyu ci ginnaaw tuuti nit ñi dañ koo complexe woon mhm. ñu ne day mel ne yow ca yàlla nga jógee mhm. bu ko defee boo ñëwee dajale leen ñu naan ñu fatawoo ak yow nga jël dix mille yu bees tàq di joxe maire yi nag jaañ faa daa fi ne bu élection yi jotee ñoo naan dafa oyof bu ñëwee moom boo dafa foofu sama doom ji ay waay mi ngi nii doon na ma ree sax dégg nga <laughs> yow gis nga parfum bi yow. <laughs> yooyu lañ doon def gars loolu bu njëkk ba la. politique bu njëkk ba la. dajale seen nawle yi ñu dimbaliwul yëpp naa leen kaa leen kër ga. waaw añ ci. naan yow diw yow sax kii naanam paas génne ñetti bee ñëpp di ko yaakaar dëkk bi ñëpp nga jox ñaar ñu yóbbu. yooyu lañ doon def nit ñi di leen xaw a rey bu ñu paree indi affaire bi jox ko jox jox Ablaye Wade Ablaye Wade jox leen ci ay ay poste léegi nag mi ngi mel ne man ni ma koy misaale rek orlosé rek orlosé waaw mu njëkk ba ay place yu defar rajo nii horloge ku ne yóbbu rajoom di defarloo ndax xam nga loolu moom gisatoo ko. lu ko fi jëlee ndax beneen système moo ñëw rek faxaas effacé loolu. Pastef dafa ñëw indi benn système politique boo xam ne dafa effacé loolu dafa effacé nga jël benn dëkk lëmm mën leen a boole nax leen ndax ñi mu yee daa bari. léegi nag mooy li Bombardier dañ doon doon di wax rek nit man ngaa nax nit ci benn temps benn temps mais mënoo mm-hmm. nax ñëpp ci temps yëpp nit ñi dañoo yeew mënatoo nax nit ñi léegi dégg nga am na ku tëdd biir néegam mi ngi ak téléphone di xool li ñuy wax di critiquer que xam na li xew nit ñi dañoo xam léegi léegi nag nit ñi dañoo yeewu élection yi locales yi dafa ñëw neexlewul c'est la première fois élection ñëw fa mu dëgër ci moom législative ñëw mu perte ko muy première défaite am mu consommé ko léegi nag dof na pour moom àdduna am yàqu na léegi nag sagataak moom dafa bàyyi woon daaru parce que xam na ne daaru mënu fa am dara muy def ay sagata dëkk kaw-kaw yi lay jam di leen nax keroog nag damaa ñëw raatale foofu nag dem sagata dem dëkk kaw yëpp mu mer nag ma ñëw daaru mu bëgg maa rey waaw <laughs> bëgg laa rey képp damaa bëggoon a rey parce que nit bu fekkee dangaa toog sa oto kenn ñëw jël birig fi nga toog mu dóor birig bi mu toj mu dugal boppam ne nii goon yër kooku lu mu bëgg maa ci biir oto bi tëdd. mu damaa tëdd. damaa tëdd. <laughs> moytu la ba Cheikh Baara mi a jaral aw ma am non loolu moom baatin la Cheikh Baara. man damaa kaw oto bi. gis nga maa ngi oto bi xam nga boobu mi ngi karawaan damaa xam nga boo yéegee ci kaw li ngay gis. ak hmm. taxaw ci suufu bi doo gis. man dama ko dama seen ñu mu wéeru ci ñaar ñu nuróole lakos. Hmm. sol ay cap ñi wéeru ci kii bi takk ñi goon dama leen a seen ñu wéeru rek ma xam ne ñee naruñ jàmm naruñ jàmm rek ma wàcc lecture de jeu rek ma gaaw wàcc ndànk ci biir oto bi bi ma wàccee au lieu ma toog waaw ci ci ci kii mais dama ñëw ba fi fi ñuy teg tànk yi safoor bi fi muy teg tànk yi ma capp foofu ndànk hmm. euh, après laa jëkk-jëkk rek gis rek birig bi ñëw dugg ci oto bi bip euh, birig bu la fa fekkoon leneen la ñuy wax comprends nga ma gis waa ji yërndu mais maa ngi toog nii di ko xool mu yër dem après nag man jóguma fi ma tëdd ba waa ji avancé ba ba ba mu xam ne affaire coow li jeex na ma doo ko jëw. mais boobu yow anti sécurité. non ñu ngi ci kaw oto bi mais ay góom ay jaas yi sécurité yi ñu ngi ñu ngi ci kaw oto bi. non kon moom jéemul visé pour ne damay tas mbir mi. non dóor na ay ñetti bal da dégg dégg yaakaar na ko. ay tir tir ay tir oto toj jaas yi gaañ fi damm te booy yi gaañ leen mais nag moom man damay def sama plainte moom man loolu moom maa ngi ci. parce que dafa masoon a ak affaire yooyu dafa amoon foofu ba ba ba moom mii mu maanaam mu rey ci nit ku ñuy wax du Diop ci ay loxoom la des kenn lijjantiwu ko tey su ñëwaatee affaire u mécontentement yooyu am mu bëgg a rayaat du mu ko dangu. yoo xam ne nga quitté woon gon bi. xam naa ko xam turam xam ndeyam xam baayam xam garde koor ya fa nekk yëpp ñu yoroon jaasi ñëpp dama leen a xam ñunu neena di. ñunu nee na ñooñu ñëpp daaru lañ dëkk ki doon dawal oto bi bëgg a ci sama kaw xam naa ko xam naa ko bu baax. mais lan moo tax yow ak ni nga miinee foofu amuloo ku la alerté wala ñu la mën a wax na la moytul parce que boo ñëwee loolu yëpp amoo ko woon alerté nañ ma ñëw nañ ne ma am na sa benn xale bu jigéen boo xam ne Diagne Fada kidnappé na ko kidnappé waaw dafa njëkk ñëw ci mbooloo mi fekk benn xale bu jigéen bu nekk ne rek mu jël ko yóbbu dugal ko biir këram moo tax ma xam ne moom la parce que wéren ndaw si ci boppam maanaam jaañ faa daa dem taxaw di wax ak moom naan ko looy wut sama koñ ak lu tax nga takk bracelet ba pare di ñëw sama koñ di ma provoqué da jël jël paaka dagg bracelet yi ñi ma ko mhm. ma ne leen bu leen ko wax ci rajo bi parce que fii li fi nekk ci ay nit dafa bari bu ngeen waxee kenn nappe nañ nit ku ne jug dem te mën naa am sax ay problème am bàyyi leen rek ñu taxawaat ba mu yàgg ñu ñëwaat ne ma bàyyi nañ ko ñëw na ma ne ko léegi xamal ma kan la ci xale yi pour bu ma paree ma enquête ko ba xam lan moo nekk ci ginnaaw loolu. pour xam voilà léegi nag ñu paree nag bay ñibbi nag. après nag man tax alerte boobu nag moo tax bi ma séenee ñoom ñu taxaw laa xam ne ñi naruñu jàmm moo tax ma teel a seey. am na ñu ne yéen da ngeen foofu dangeen jaar def li ngeen def jaar ci foofu noonu. di cokkaas fi ñu jaar dëkku fa. di indi ay moom jógee na lu tolloog daw na lu mat cent mètres doog a agsi fi nekkoon moom buntu këram ak fi ñu nekkoon ëpp na sax deux cent mètres defe na après looloo la merloo ba nga ne réew mi daal dama ko Amadou Ba dafa non non moom dafa defee ne doolee Amadou Ba lay moom Amadou Ba lay jàmm parce que man damaa gëm ne Amadou Ba moom fii di bu déggoon ñu ne dee naa dina maye sabar moom xam naa ko xam naa ko Hmm. léegi nag bu fekkee moom dafa maa bëgg a rey ndax Amadou Ba la bëgg a neexal xayrun bu dee dafa defe ne bu ma reyee Amadou Ba day jël Sénégal après ñu nëpp nëppal ma sama dee niil ah hmm. du mën a nekk parce que Amadou Ba moomu mu carte gim carte laa ko ne parce que Amadou du falu léegi am na tamit ñuy ragal te man waxumay caaxaan de mais man xamoo man ci lan laa bëggoon ñëw par exemple Chabar waaw ñu ngi ci veillu élection yi dañuy dem voter dossier bi moom leeral nga ci li nga ci leeral ay taxawaay bi nga ci amit leeral ko da ngay porter man dama lay soutenir ci porter plainte boobu ndax gëwuma ni réew bu ñuy wax état de droit nit war naa mun a jug ay nit di doxal seeni caravane politique nga attenter leur vie ba pare loolu war a muccee noonu man loolu gëwuma ko dafa amul ci lu ma bëggoon néew ñi ngi ci veille campagne nit ñi campagne nañ veille élection yi nit ñi campagne nañ ba pare élection yi ñëpp gis nañ tendance yi ni mu ay Sénégal dafam ñoo xam ne ay mercenaires lañ dañuy jaay seen wax ndax yow bawoo xel nii am na ñoo xam ne ci jouru vote bi danañ gaaw njëkkantoo dem toog ci plateau télé yeeg site yi di joxe tendance yoo xam ne seen candidat lay arrangé te yëf yi demeewul noonu yow loolu loo ci xalaat ak lan nga jàpp nit ñi war nañ ko taxawee ngir mën a kot loolu ba du am waaw Euh, tendance yi man li ma lay wax nii bindal nga denc bu dee sax Pastef moom xamal na stratégie kese lañ dañoo nekkoon di campagne pare nañ lu ñuy def ba sécuriser seeni wat déglu leen ci fii ñaari fan danga nga ci dégg luñ ci génne te su boobaa loolu luñ denc lay doon loo xam ne état bi du ko mës a xalaat mais bu loolu lépp jàllee tendance yi kenn mënu ko sàcc gis nga élection locale ak législative bi tendance yi wàcc Ndakaaru kenn mënta la ne kii moo a kii wax naa ko sànq mi ngi mel ne mag ji bi Gaye Njaay doon sutante rek <laughs> ni ngay xam ne kee moo sut kee xanaa si noonu lay demee sol mbaxana mu njool ak ci yam boo xool rek xam ne waa moom moo sut kee leere noonu nga foog noonu lay leere parce que li ngay wax ni kon nekk ay 60 pour cent côté ma wax la ma wax la xam nga man analyse laay def man bëgguma sax di wax ci ay waxu baati nag kurus man ndax yooyu moom deuxième deuxième la waaye dama lay wax si analyse waaw yow Dakar Dakar la wat yi nekk ak cees Diourbel ah. ak Diourbel. lu noonu la. Mhm. Ah. ak Ndar ak Louga. walla nañ jël dakaar cees Diourbel. Diourbel ba mu daj Amadou Ba ban liggéey la fa def bu koy gañaloo ci koo xam ne da koo pertoon. mais l'ancien de Touba defe naa moom la. maire de Touba mooy kan. Cheikh Mbacke xaw ma na. kii sant Mbacke waay. Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Ndaw. Abdou Mbacke Ndaw je pense Amadou Ba lay soutenir. oui waaw ah mais Abdou Bakke Ndaw bu soutenir Amadou Ba léegi. soutien de taille la de. moom Abdou Bara Dolly. day neexal élection yi beneen soutien de taille. waaw day neexal élection yi moo nekkoon député Abdou Bara Dolly day wàññi électoral. <laughs> ci naka. non da ngay war a yeewu dem wote ji. fàtte woon naa sa yéen ñaar ay xarit ngeen. boo paree ndam lépp lay jël ne maa ko maa maa ko fal. ku àndut ak man du falu. Amadou Ba ah, kii bu jàppale woon Sonko bari na ñoo xam duñu wote ji ndax dañ naan damay pare Abdou Bara Dolly di ko bàkko <laughs> moom day wàññi électorat moo tax bàyyi gi mu bàyyi soo ko baax kooku man gisuma lu mu am waaju ñaari nit. mais mais mais mais mais Diallo. bu fàttali ne mais na si bool bi Mbacke ku téye Mbacke lee du xew Mbacke nga te àndoo ah. bul fàttali ne. gis nga maître El fii la toog nee na li ngeen di wax nii yëpp moom classé wu leen sax ci quatre premiers. cinq premiers sa boole aussi Diomaye cinq premiers. nee na Diomaye mu ngi ci cinquième sixième yooyu noonu ay. waaw d'accord moom fi mu classé boppam ngay xam ne mënut a moom. <laughs> PTP. waaw ah, moom boo ko doon classé sa bopp fi muy teg boppam nga yëg ni kii yëgul li xew. <laughs> nit classement di ndax moom boo ko la réew mi maa fi ëpp mbooloo maa fi ëpp xam-xam maay falu maay jël paie international la maanaam loolu muy wax noonu ni mu ko kala ni mu réeree boppam rek noonu la réeree jomaa yeeg. jour la am de juin l'homme du juin. waaw introation ne la. ñëpp moomale ko. El Hadj Diouf daal balaa nga ko ne kalaaseel ma jamaay da nga naan ko kalaaseel ma sa bopp ba pare bu kalaasee boppam nga yëg ni kii li muy wax ba kanam lay kalaasee ne kalaasee wut ci réalité dama ne la cees ba mu daj da koo pertoon ba Tiwaawoon dafa dem Jóob si def ko ci base ngénte mu ñibbi ñëwaatu fa. Hmm. Thiès gisoo ko fa gis bu tax ñuy wax Mbàkke benn yoon la fa dem mitin ba mu fa def loolu du mitinu Mbàkke loolu dafa dafa néew ci mitinu Mbàkke baaxul. Mm. mooy bi muy léegi yow ndakaar gi fan ak fan nga fi gis Amadou Ba. Ndakaaru kii Khalifa Sall mu ngi fi. Ba laa fan ak fan nga ko fi gis. mais bon gis nga li mu wane kii Medina. ñëw na Medina. Pikine da ko dégg. ak fii tey waaw ak ca Abdou Karim Sall. bu ko weesoo. Ndakaaru moom day métti ci dëkk bu ñu la rawee woon cent huit mille voix. xam nga Dakar. léegi yow ñetti dëkk yi nga xam ne amano Ba da koy daw moom risaatool la dem ay ñoom Añam ay yooyu la dem parce que foofu wéetut bi mu fa demee muy dund kii bi mais dëkk yi nga xam ne fii la électorat yi nekk moom dañu koo bàyyee dem yoonam parcelle gi ëpp doole. ci bureau de vote yi taxawu fa def tara ak géejawaay. ak géejawaay géejawaay ñëw na fa. waaw man kenn loolu daf ma jaaw gis nga bureau fi bureau fi vote yi nekk sax moom ñemewu faa dem di dem ci dëkk dëkk dëkk yi nga xam ne maanaam foofu kiiwul moo tax ma ne la résultat bi ñun ñooy wax nii rek. waaye dafa leer ba pare. ah ba dimanche loolu dimanche yu nekkut ay ay ay ay ay xëccal ma ko fii ak wàññil ma ko fii de guddi ba ma la man kay man maa la ko wax ba boo ndogoo bala ngaa dinaa fi la xam président bi. <laughs> d'accord amul beneen laaj. Hmm? man daal am na ci lu ma bëggoon rëbb. waaw <coughs> boo xoolee enjeu bi du rek changer président. Hmm. ak fal président bu bees. enjeu yi dafa bëri. xam nga dakaar tey enjeu bi dafa rëy. waaw confirmation. waaw règlement de compte politique daf si rax. Ah, daf ci am. Mhm. que Bat est le patron de Dakar. wala mairie ba dañ ko ko sponsorisé wu. Mhm. wala est-ce que Ousmane est réellement Yewwi. voilà wala est-ce que Ousmane est réellement Yewwi ndax bu fekkee ne Ousmane dafa gañ a Dakar. loolu day dëggal ne Bat mairie bi dañ ko. man de dinaa la wax dara. Grand Yoff de Khalifa du ko gañ. waaw loolu moom leer na. lu tax loolu. gañ dem ba jamono ji xalifa moo la gën a xam li tax karawaanul Grand Yoff Bart li tax demul Sacré Cœur Mermoz karawaan fa xam na ko te xorey si caama nga fa bis bu nekk ma ngay wër Bart ñëw fa yow boo demee sa propre localité yow demoo fa xam nga ne am nga loo xam xalifa du gañe Grand Yoff bay gañe feneen. Bart bari na doole de borom Dakar bu ba noppi li muy ñaan mooy yàlla na deuxième tour am. waaw taxaw moom ci deuxième tour lañ misé. kon kay xam na ne moom xam na ne koy. mooy bu leen insulté avenir bi xamoo leen. suba la nga ne c'est impossible de gagner cette présidentielle là. dès le deuxième tour la investir moom loolu leer na. d'accord kon règlement de compte politique yooyu noonu. la clarification bu loolu jàllee élection. demoon naa ci benn journaliste mu ne ma mbooloo mi comme li nga wax léegi mbooloo du du du baromètre pour gagner ma ne la waaye wéet baromètre perte la. <laughs> mais am na beneen wax bi ñuy wax. nee nañ ñi nga xam ñoo nekk diggante dix-huit ba trente-cinq ans lu néew lañu ci fichier bi. te yéen booy xool ñoom ñoo leen topp ñoom ñoo leen di dar si loolu nag yéen ngeen di fondé wu naan jomaay. mooy jiitu li ñu dar. waaw or xam nga mbir mi ñu ëpp ñooñu ñu ngi si si fichier bi ne tekk nag ñu ëpp ñooñu ñu ëpp ñooñu bu ñu topp ci gisoo ko ñu topp ñoom ah. te la ma lay wax PS am na APR am Mhm. PDS am magi magi APR mosoo koo dégg magi PDS mosoo koo dégg magi Pastef rek ngay dégg Pastef rek moo am manifestation am paa bu am quatre-vingts ans soixante-dix ans génn ci mbedd mi naan day xeex ak police yi ñoom père Mayabe ñii nga leen gis dañuy dem sur le terrain di xeex léegi loolu kay ku ko am ci mag ñi kay xamal ne am nga ñëpp. d'accord d'accord amul beneen laaj. Hmm? <laughs> amul beneen laaj. ah c'est léegi daal moom bëggoon na maa soññ Sénégalais yi. waaw mais ma daana mais bëggoon na balaa muy soññ. Euh, Ousmane Sonko dafa am fu ñu doon xaar par rapport ak les alliés. Mhm. naka nga yaakaar ne noonu la fas yéene matérialiser ëllëg jomaay. super alliés yi nga xamante ni yi pertinente rek ngay posé. boo tax moom nga ko ne dañoo ñëw seen seen coalition bu balees. dafa am loo xam ne naka lañ ko fas indi te damay ñaan yàlla yàlla na ko yóbbaale mooy diverser sénégalais yi am ñu taxaw ne ñu naan ñii ñoo contre kilifa diini ñi ñoo ànd ak kilifa diini mais yéen tamit yéen a fi indi système anti système waaw d'accord te fu mu toll nii seen doomu aadama de seen moom Karim Wade bi nga xam boo ko waxee waxatoo nit portable bii dafa am système buñ ci portable bi dafa am système bi muy demee am waaw boo nee système rek waxatoo doomu aadama ndax ñun ñii ci système yonent bi lañ nekk te yonent bi jógee na fi saaba yi jógee nañ fi mhm. Hmm? waaw su doonte ne système bi nit la kon yonente bi affaire ba jeex na di mhm. hmm? kon parce que dem na Sonko waxul nit ab système la wax mooy tey Macky Sall day toog ci pale bi bëgg laa tëj jënd mburu moo gën a jafe ci Macky Sall tëj la yow parce que système bi mu lay tëjee da ko dañ ko fee dañ ko fee sànni comprendre nga détourner xaalisu Sénégal maanaam système bi ñu teg maanaam transparence moo mënta am état de droit a am dégg nga koom-koom bi mënta dem parce que amuñu politique de amuñu vision économie système bi ñuy demee. Ah. moo baaxul te dafa am lu garaaw lu amoon Sénégal mooy da ngay jël inspecteur impôt yi ak ñi nga xam ne ay euh, euh, administrateur civil lañ. ay technocrate ak yëpp am xam-xam. ñu toog benn politicien bu xamul dara dem fee di politique di politique di politique ba ñëw yilif leen di leen def loolu lu ko neex. Mhm. système boobu itam dañ ko war a dañ ko a jëlee. mais ñi daan composé système boobu ñi tabax état di ko dund buñ jiite wut état keneen ku mën a ñëw bu yoree état bi du xam li mu jiite mais ñi ko daan loolu dal na Macky Sall mi fii ne Macky Sall xamutub état waaw mais ñi ko daan composé ñi ngi naan expérience expérience mais Macky rek lay def c'est la première fois yow ci àdduna nga dégg président boo xam ne république la jiite maanaam décision justice wàcc mu ne defuma léegi ana expérience politique bi ñu jox la cinq ans xamoo ne yow mandat kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo yokk Macky Sall essayé na yokk mandat wàññi mandat te nekk na ministre nekk DC nekk maire nekk député nekk premier ministre nekk ministre de nekk lépp lim xam ci état lépp xamul ne am ab mandat kenn mënu koo yokk kenn mënu koo wàññi mu dig ñëpp ne danaa ko wàññi nekk mënu ko malgré que moo doon wàññi mandat ñu ne ko mënu ko wàññi maanaam xëyaat na di yokkaat mandat. proposition Macky xamul luy état mi ngi mel ne musaa Bokar rek discours bi mu mën a bi mu defal waa Rosso gi mooy état la xamut mooy lan luy nee na waxam koy sopp nee na waxam dañ koo sopp déedéet moom dafa la am na droit digal ñii mais da koo xamut ko dénk ay yoo xam ah, waaw mhm. yooyu la mais discours boobu lu tax ma indil ko mooy que gis nga koy jàng gis nga ku mel ni Mimi Touré sëñ bu waxee alxuraan da ngay xam ne da koo jàngi woon gis nga am na keneen koo xam ne bu ko liiree ci tubaab buy wax da ngay ne yow mi jàngatu alxuraan yi da xam ne kii da koo liir ci version français mm-hmm, mm-hmm. force da nga ah, koy xam gis ko jàngut rek doo moo tax moo yàq yëf yi Macky ak moom daanaka nag moom ay règle sax la gëmut ma mais yéen ñi nga xam te nii waaw tey sax gis naa nu vaar Ousmane Sonko bi muy wax ne Karim Wade woo na ko mais jëlu ko parce que nangam ak nangam loolu itam mu dem ba fu mu toll nii Karim Wade ko jàppal tànk ba ñoom sax léegi ñu gëm ne avec Karim Wade dina mën a nekk euh, ñuy jàll premier tour. wax nag foofu dama ne la. li Macky Sall indi mooy ñu naan ñee dañoo gëm kilifa ko. waaw yéen nag ngeen indi boo demee ñu naan ñii ñooy waa mbëri mbëri Macky Sall ñii ñooy mbëri yu baax yi. waaw ñii ñooy patriote yi ñii mm. duñ patriote. loolu Macky Sall ko indi Sénégal dafa xar réew mi. waaw nee na yéen a fi ñi noo baax ñi noo safaan ñii dañuy jubóole Khalifa Sall man Khalifa Sall leen day jubóole sénégalais candidat yëpp sax dañ koy wax damay jubóole sénégalais damay jubóole sénégalais mm-hmm. c'est parce que Sénégal dafa am ak réeroo ko fi am boo xam ne makee ko fi indi na ko yóbbaale man li ma gëm mooy Pastef wërta toog wax ne ñu bokk Pastef roog man ay xalaat laay àndal boo amee xam-xam te mën a liggéeyal senegal yow da masa ànd ak Macky Sall kon wala mas ngaa ànd ak Abdou Diouf yow kon doo bokkate ci lii ñuy doxal su boobaa da ngay marginaliser ay nit su yàggee ba yàgg loolu day nekk aada ci réew mi ñoo xam ne ñii ñoo yor état bi mhm. ñii moom dañ leen di dàq duñ bokk man li ma gëm mooy poste bu nekk mhm. nañ ko jox ko am compétence ba képp nga xam ne wóor na na la sëñ Mansour mii ñeme wut taxaw ne kii ñu dénk budget de mënut budget su ko manee rek démbam ak barki démbam su ñoo nekku ci xam nga lan la suñu woon war a nekk mhm. mooy teg ay loi yu dëgër yoo xam ne boo sàccee dërëm benn day teel a feeñ te bu feeñee dañ lay topp loolu suñ ko defee hmm. man d'accord naa man Cheikh Bara suñ premier ministre na nekk Farba Ngom Aliou Sall na nekk ministre budget hmm. Mame Mbaye Niang kuréel mag koy def mais coalition ma kuréel bu amul xam-xam na dem na na nekk ci ci banc bi seetaan bu amul xam-xam na seetaan comme man d'accord mais ku am xam-xam te am compétence foo mën a jaar ñëwal mi ngi nii mais transparence bu amee boo détourné dërëmu état corps de contrôle yi bu ñëwee ci at mi dañuy xam ne at mii mhm. diw sàcc na fi nàngam te dang ñuy fay te da ngay dem kaso mais ñi leen dar gis nga ministre yi France bokkuñu jub mais loi ba dëgër ba boo am na ay ministres yoo xam ne sax da leen topp ñu mettre en yow boo demee nit ñi ni ñu dawalee oto dawal gu yaru parce que booy def dara balaa mat vingt quatre heures ñu jàpp la ne la am yaa ko defoon parce que ah. caméra yaa ngi la tiim looloo yar nit ñi mais bu fekkoonte ne yow da ngay def loolu la neex ñi bari loi yi nekk loolu bu il faut ñu teg loi yu dëgër bu ñu tegee loi yu dëgër hmm. yëwul ñu naan kii fii la bokkoon keefee la bokkoon ku am xam-xam fal leen ko bu sàccee ñu jàpp d'accord voilà maanaam ndax da ngeen def ni waa benn waaw gagner ensemble wala ndax yéen da ngeen moom laay wax nii bees waaw gagner ensemble ak gouverner ensemble ko li ma Sonko sax daf cee tontu léegi bi ngay wax waaw man li ma d'accord waaw mooy dañ na fas bu ko dénk sa waay dénk ko waayam dégg nga balaa ngaa am lu la neex sa costume bii tey boo ko bëggoon a jox sa waay mu ñëwal la ko. bu mhm. sotti da koy jox waayu costume mu ñëw ko. poste yi nañ ko jox ñu am compétence te am xam-xam. Mhm, maa ngi lay doog a dégg. comprendre nga. Mhm. su dee kooku nag kooku noonu man sàkku ma ci ne Pastef la bokkoon wala bokkul Pastef tey Abdourahmane Diouf tey boo ko jëloon di ko dénk dara. ci réew mii kenn du la wax mënu ko. mais nag ñoom baax na de si yéen. waaw c'est bon. sàmm bu am doole. est-ce que d'accord nga gouvernement Diomaye expliquer monnaie bi ak poste de mais est-ce que d'accord nga gouvernement bu Diomaye mu am kenn koo xam ne ci président Macky Sall la nekkoon dugg ci d'accord nga loolu bu dee loxo yi dafa set bu dee am na xam-xam am na bi te am compétence def ko bul xool de diw la tudd république xamul tur xamul pour yow kan la war bu dee loolu war na mën a am pour ah? yow nga gis su gouvernement am ñoo xam jàpp nga ne kan am nañ assez de compétence ba pare gis nga si ñoom bëgg boo xam ne ni jàpp nga war na mën a reconduire. mais Cheikh Bara xamul ñooñu seen gestion ndax ndax épinglé nañ leen ou pas. Hmm. mais ku mu ko yaakaar rek koo xam ne yaakaar na ne kii koo yaakaar pour pour maanaam tabax tabax état bi. waaw war na mën a bokk ñëw ci jumaay gis ñoo xam jàpp nga ne. man man loolu du suma affaire dégg nga ay gouvernement bi na nekk man li ma gëm mooy gouvernement bi bu doon nekk di quarante ministres c'est bon nekk cinquante ministres c'est bon mais na nekk ay boroomi xam-xam yoo xam ne faluñu leen pour poste politique récompense politique. ku nekk dafa am lu sérieux luñ la jox nga xëy nekk ci. damaa gis jumaay muy wax a wax. ba cité yooyu laa gëm ba cité Abdou Mbow ci benn exemple. waaw ne moom bokk na ci ñi nga xam ne fonk na ko parce que ak lu mu mënti wax it day indi argument teg est-ce que loolu nangul euh, di firal que ne ëllëg ci biir war na mën a ami mu dem ñuqati kenn ci waa Macky Sall dugal ko ci gouvernement am. Abdou Mbow moom gëmuma ne mag jomaay dina ko jël di ko dénk dara xanaa mu assemblée ba mu xam. waaw par exemple waaye leneen moom yaakaar naa Abdou Mbow moom kiiw ma mais non man da li ma la wax ni dafa yóbbaale lépp te man xam naa jomaay ban genre esprit la yor d'accord gis nga mënoo wax a wax a wax wax xam nga état lépp dañ koo bind mënoo wax a wax ba mu jël loo xam ne nii li loi bi wax ak li lii ànduñu mu koy def parce que day politique léegi Cheikh Bara voilà Cheikh Bara laaj bi defe naa boobu lay nekk langay ngay tontu ñuy jàpp ne amul jaar-jaar bu war a tax kat ñu war ko wóolu jox ko réew mi parce que nit la koo xam ne nii jaar-jaar yi tam daanaka impo domaine na ko def lu am solo la si réew mi parce que day indil koom réew mi lu am solo la waaye si wàllum yorul réew gën naa yaatu lool ba bu amul yenn expérience yi am loo dund tukki bu baax a baax am ñooy waxtaanal dugg si organisation yu mag yi waxtaan ak ñoom xam ñoom nit ñuy négocier yenn contrat yi ak nangam maanaam daal mbir mi nga am si jaar-jaar bu wóor comme président Macky Sall jaar-jaar bi mu amoon comme jaar-jaar bi mu am comme docteur Boubacar Camara comme keneen ak keneen mais loolu est-ce que jàppoon tamit comme ni Bassirou. Boubacar Camara am na jaar-jaar. Boubacar. waaw man comme jaar-jaar la. directeur douane rek la directeur am na ñeneen ah dama leen lim di rek am na ñeneen. Ah, waaw d'accord léegi gisoo ne Bassirou Diomaye par exemple bu faloon dina toog ñaari at ñetti at di jàng. comme ni ñu defoon ñun si CFA bi non non CFA bi nii la déedéet communautaire nangam ñëw si poste poste de vice président bi da koy créer non Sonko ñëw na non non léegi na renforce le poste de premier ministre maanaam loolu noonu koo boo si falee nit na jàppoo ne tamit deux ans trois ans fii lay nekk di teg ko a teggi di ñab ñabal te boo falee ku mel ni Amadou Ba wala keneen day fekk ne moo xam na yoon bi day ñëw rek dem. dégg ko nee na falu tey liggéey tey. kan Amadou Ba mu ne day falu tey liggéey tey. na pare na. moom moom bañ ko falee premier ministre mooy premier ministre boo xam ne toog na lu man ñaari weer amut bureau. loolu da koo dab. moom moo gën a ah. du li amul bureau bu mu xëy toog di xoole di ñu ne ko yaay ministre premier ministre Sénégal muy xëy di tëdd këram. <laughs> naan ma la moom Amadou Ba xalaat dafa yaakaar ne ci asamaan si la jógee ñun ñu ngi fii di ko seetlu di xam lépp. da ngaa wax ay affaire expérience ay nangam nangam euh, joomaay est-ce que xam na lii est-ce xam na laa gis nga dama lay wax benn affaire am na ay président yoo xam ne. Mm-hmm. ñu ngi doxal seen réew. c'est très rare laa la wax nag nga fekk réew mi dox ma noppi président ba di tukki lu bari. Ah, demal Chine demal Singapour dëkk yi nga xam ne mën nga leen a naw te président bi c'est très rare ngay dégg ñu ne la jël na avion gis nga yii nga wax fii yépp maanaam jàngum tappale la tukki bu bareeg noo ko waxeeti dem waxtaan ak dem waxtaan ak keek def xool négociation yi duñ koy defee loolu ngay wax lépp amul problème xam nga Sénégal lan moo ko dal ñun dëkk bii ñu nekk dañ fi dul produire dara daara duñ ko fi produire liñ fi dul produire dara nit fu mu nekk day dund léegi produire oo d'accord da ngay dem di jëndi di indi parce que nit ñi dañuy dund moo tax port bee indi xaalis bu bari léegi boo produire ndaw ñi nekk ci dëkk bi duñ liggéey parce que bu dee gerte gi ñu mënoon a def transformation wala dara circon wala lu mu mën a doon ba ña ngi koy transformé jëbiti ndaw yi ñooña ñoo koy liggéey sa ndaw yi réew duñu am ñu am am xëy loolu mooy suñ jafe-jafe deuxième jafe-jafe bi ci des mooy réew mi ab liggéey bu baax moo fi amul parce que nit buy jóg di liggéey li mu bëgg mooy daa gis jabar gis oto gisu kër bëgg ko ñu ne ko lii pour nga am ko ab liggéey da ngay dem di ñaq nga am ko Sénégal ñii ñaq kenn mënu cee ñaq ba jënd ko oto wala nga takk jabar yow ci sa bopp kuy takk jabar sa yaay day teggi natt ak lu ne ñu def ko liggéey ba jëndu kër daanaka amu fi léegi kon daanaka nit ñi li taxoon objectif bi ñu amoon ci xëy di liggéey amuñu ko léegi mu dolli ci suñ suñ suñ croissance ni muy yokkoo ak ñun ni ñuy juddoo di dem ni ñuy yokkoo dafa tolloo wut ñun dañuy jur di dem bu baax a baax te suñ croissance doxut yii mooy suñ jafe-jafe lii ma la wax nag maanaam doonum ministre rek doonum DG rek yàgg naaw ci avion yeeg mën a sañ seet loolu rek wu ko am volonté ak bëgg-bëgg. xam-xam ak expérience xam am na solo de. léegi jomaay xam-xamu lan la manqué xam-xamu tukki ak xam-xamu négocier xaalis. expérience. waaw xam-xamu tukki la la manqué négociation yi. Hmm? c'est Ah. dem waxtaan ak FMI. Ah. banque mondiale mais banque mondiale ñooy dañuy daaneel dañuy dañuy daaneel ab ab état. sax man bëggoon naa fa ñëw. en fait dama ne ñooñu dañuy daaneel loolu sax Cheikh Bara li ñuy jaay banque mondiale mën ko utiliser. d'accord gis nga état Amérique moo dàqal lépp ñëpp. FMI ak banque mondiale bu dee lool rek rek mooy sa wéeruwaay day daaneel nguur nguur bu leen def ab wéeruwaay doo dem. parce que ñoom mayewuñ sarxewuñ dañuy le dañuy leble. d'accord. kenn ku nekk loi yi mu teg pour lebal mënu ko ci sensé lu virgule même bu demoon ba sa dëkk dem ba ñuy ba suux ba yàqu hmm. seen yoon nekku ci d'accord dégg dama laa bëgg a wax ne la gis naa dafa am xam ne ay complexe rek la mooy li ma lay wax ci politique li kii di wax naan politiciens yu njëkk ya loolu rek la waat mooy diw dafa mas a nekk lii dafa mas a nekk laa dafa ma a nekk lële loolu bu doon mooy tax nit doxalum réew Macky Sall du arrière Sénégal amul lum doonut ci réew mi te xamut sax état ba koy doxal Macky mooy koo xam ne fi ne lim yor réew mi lépp ci ay yëg-yëg yi boppam la doon demee rek taf yëngal jeex. d'accord dama laa bëgg a wax ne école bi ñuy formé ne fii ku fi génn am nga xam-xam fa la génne. ana ah dégg nga. Mm-hmm. bi mu fi nekkee di dund ak tey jii dañu ne la waxal ñu xam yaay kana loolu lañu wax. dangay wax rek ñu xam la arab loolu la wax dégg nga joomaay plateau bu mu toogut amut débat bu mu musta dugg amut question xalaat xam-xam bu mu musta souligné amut dama ne la nit laa wax gisaguma kuy xeeb joomaay dellu ci ay waxam nit nag bu fekkee ay waxam mat na ay jëfam mat na ñu koy wërali leneen lu matut lu mu matliwut loolu nag sëñ bi man xamatuma ci dara d'accord ah? contradiction bi ñu am mooy ku naan la jomaay matut nee nañ la Sonko mat na président moom loolu la ñu wax. te ñoom ñaar bokk jaar-jaar. dama ne Sonko moom du Macky Sall sax nee na daa bëggoon Sonko bokk ndax dafa bëgg Sonko mat na bu Sonko matee jomaay mat na ndax Sonko tukki wut de. mais au moins Sonko bu nekkoon candidat candidat de premier choix la nekk mais ki candidat de substitution xamuti palais xamuti xamuti lobby xamut fenn man mii di wax ak yowul lii ngay wax nii daloon na ma ci Sonko man dama naan wax waa jii nu mu mën a defaree réew mi te xaw ma ko muy tukki xaw may xariti président yu mu am ak mm-hmm. yu ma xamul parce yooyu yëpp ay ndëgg sërëx la yu ñu lay dugal nga xam ne da ci def vingt ans doog a yëg ne ndekete yoo lii du dara lii dara mooy doonu patriote gëm réew mi bëggu ko gis nga gis nga euh, nu mu tuddati mi euh, Paul Kagame mii ab kaw kaw la ca kaw ga la jóge ñëw coow li bari rek mu jël nguur gi ne ko ciix gis nga moo defar Rwanda mbooleem yi ngay wax nii yi ne moo ko moom moom euh, mu def ko kii yi nga wax nii ne maanaam mooy expérience amul benn boo ci fekk Paul Paul Kagame am ko mësta sax xam ne moom dana doon dara ci sa ci àdduna te pourtant bi mu jëlee réew mi d'accord est-ce que doxal na ko d'accord d'accord est-ce doxal na réew mi wala doxalu ko sëñ bi yow xam fu ñuy noose xam fu ñuy tukkee xam fu ñuy tappalee ba pare ñu doog ne jox leen ma réew mi bu ñu la ko joxee nga noose ko tukkee ko tappalee ko ah, ah d' accord léegi da ngay kii. waaw après Cheikh Ousmane après Cheikh Bara mhm. bëggoon ñëw d' abord. waaw sur euh, mhm. moo am ci programme yi noonu laa koy waxee. Mhm. c' projet contre projet. de ça Ahmed. dafa am défi boo xamante ne bii. moom la élection bi. wund avec plusieurs déclinaisons. déclinaison bu jëkk ci élection yi ma ci sama xalaat. mooy président buy ñëw yaa ngi koy wax sànq sëñ bi xam naa jafe-jafe bi nga nar njëkk am mooy jeunesse bi. Mhm. jeunesse bi yàkkamti nañ. jeunesse bi. Mhm. dafa jonkan toog di xaar. am doole wér ANSD ne la plus de cinquante pour cent des sénégalais ont moins de dix-neuf ans. Mhm. loolu waroon nekk avantage mais finalement handicap la doon. bari formation amuñu xëy. loolu nag fi ne nii problème mu monnaie bi nag foofu lay waxee. sañ waaw waaw man man pour man monnaie bi. nga Sénégal rek mooy dëkk boo xam ne mën nañ ko defee différé. suuf saa ngi fi suuf si. Uh-huh. mi ngi fi gàdd kenn du ne suuf amut. Mm-hmm. am nañ ndox. Mm-hmm. kenn du ndox amut. am nañ jant am nañ jeunesse. Mm-hmm. am nañ position stratégique doo ne amu fi te am nañ service bi te soxla nañ liggéey bi. xam nga lan moo manqué. am accès ci xaalis. état bi mënu leen koo jox. ñoom mënuñu mënuñu mais sax na nga wax bu dem ci banque yi mënuñoo dem ci banque yi leb ko hmm. amuñu accès xaalis da ngay gis fi ne yow Mouhamed Diallo mi maanaam am deux milliards rek moo teewoon mu def benn télé boo xam ne Afrique yëpp mën na ko deux milliards sax bari na am na par exemple laa la wax mais accès la amul ci xaalis hmm. loolu nag li kay def hmm. yor sa monnaie la senegal état bi ak askan wi ñoo yem amuñu accès ci ah pour ñu am état état bi pour mu am xaalis dafa jafe yaa ngi déggoon kii di wax ay ay eurobond la ñuy dem ba dañ koy leb rebond taanu voilà parce que docteur Boubacar Camara parce que léegi taux bi ñu gis nga gis nga plus que ngay gën a gën a ngay gën a leb maanaam intérêt yi ak état boo xamante ne stable hmm. bu ñu lay lebal maanaam diire bi ñu la war a jox tey FMI du la nangoo jox xaalis maanaam bàyyi la nga dem ak diire bu bari ba pare dafa am lu ñu wax ay chèque euh, comme États-Unis tey li mën a def mooy defar defar produire ay chèque jox la ko nga xam ne day mel ne que yow fay nañ la nga dem sa parce que da hmm. xam ne lii dafa am dafa am dafa am garantie état boo xamante ne comme suñ état bii nga xam ne li muy leb day bari di bari loolu yëpp dafay faible gis nga Sénégal fii il faut ñu am suñu monnaie mais monnaie nag comme li ma koy waxee nekkul loo xam ne danga nga naan bëxër nit déedéet am ko c'est dans une dynamique communautaire monnaie boo mën a gis day tabax day taxaw ci kaw hmm. état de droit bu dëgër am transparence ba pare nga xam nga xam maanaam économie réew mi fan la jëm il y a trente ans ñu am ci politique bu wér tegu ci règle yi léegi nag foofu nag boo amee politique boobu ba pare maanaam nga xam ne da am vision économique soo amul banque mondial maanaam boo xam ne banque central laay wax boo xam ne dañuy ñëw sujjóot ci kanamu idée bii nga xam ne da nga naan lii mooy vision économie bi ñu bëgg a yoree Sénégal banque mondial ñëw ne man de damay sukk ci kanamu jébbalu naa ci idée bi pour ñu topp ko dem ah. tant que banque central bu bu jébbalu ci idée bi idée bi naax saay na parce que parce que parce que amul lu koy lu koy lay tay looloo tax il faut ci fa ñuy mujj mën na na doon fii ba trente ans na doon fii ba vingt ans mais li may ñaan Pastef fa ñuy mujjee ñun hmm. nañ ñu libéré ñu génn ci CFA am suñ monnaie bopp suñ ko defee am liñ bëgg léegi léegi beneen défi bi wax naa ko léegi wàllu mooy jeunesse bi la mm-hmm. beneen euh, défi bi mm-hmm. Ahmed Diallo mm-hmm. mooy transparence exemple bi gën a banal lan moo tax am na sénégalais yoo xamante ne bii fay impôt mille francs par maison waxuma par tête mais par mhm. maison mhm. xaru moo leen ko gën a mhm. parce que daf leen wóoru ni boo leen dajalee seeni mille francs mu mat un milliard da leen ci yaxanal da nga leen ci beesalal seen tali danga nga leen ci gasal par exemple ay teen da leen ci tabaxal ay hôpitaux xam nga loolu aussi tamit ça interpelle toutes les consciences ou bien toute la confiance euh, conscience collective. Mm-hmm. beneen défi bi mooy rupture d'égalité bi nga xamante ne depuis 60 ans am na ñoo xamante ne bii. jam ñaajo gii jam ñaajo gii bokk na ci communes yi nga xamante ne ñoo gën a jafe ci Dakar jam ñaajo gii ñooñu tey jii boo leen laajoon xam nga ne soxla wuñu ay terre dañoo xam ne dëgg beneen défi bi mooy te loolu sax da koy dugal ci. conseil des ministres décentralisé. Mm. am na ci boo xam ne président moo ne Abdou Karim Fofana yow tu fais dans beneen bi Mariama Sarr la interpellé li mu ko wax dara ko ci maanaam retard bi ngay. gis si lycée bu kii Sandiara ci suñuy travaux. des années de construction. Mm-hmm. des années de construction te ñu fexe fexe fexe fexe fexe ba jox. pour un simple lycée. simple lycée mu nekkee bon lycée technique mais bon. non mais tu comme ça. waaw beneen bi Ahmed Diallo mooy tey am na ñoo xam ni. bu ñu waree mucc bu ñu seen jëkkër wala seen mbokk amul vingt cinq mille francs ci seen Wave wala ci seen Orange Money ñu envoyé ko ambulance amaana mën nañ ñàkk seen bakkan billahi loolu moo am ci dëkk je ne parle même pas de ñi nga xamante ne moom à risque presque à quatre vingt quinze pour cent ñu leen di transporter à travers une charrette gis nga ñeenti def ci diir bu gàtt président bu ci deful ay jéego waxuma nga ñëw rek lijjanti ko mm-hmm. non sëriñ bi dana mel ne yow faluñu la woon. d'accord voilà donc beneen bi peut-être may jeexale mooy keroog maa ngi ko doon annoncé. Mm-hmm. mooy ndogu bi ma waroon def finalement fee laa koy defee euh, camp bu jigéen ñi. liberté 6. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que il fallait respecter par exemple la procédure administrative. laaj demande ñu jox la autorisation d'accès nga dem foofu waxtaan ak la directrice de la maison. d'un commun accord ngeen choisir une date donc c'est la date ce la marche bi à 15 heures ce sera un jeudi. d' accord incha allah jaajëf. dafa am loo bëgg a tëjee par rapport au débat. non c' am na loo bëggoon leeral de pour ñu tëjee ko. waaw am na lu ma bëggoon tëjee. waaw mooy portée ak importance bi élection 2024 yi am. Mhm. ndax dama jàpp ne élection la yoo xam ne avenir Sénégal. Mhm. pour des décennies daf ci nekk en mooy Sénégal am na benn chance unique. sans précédent ngir bokk ci réew yi gën a naat ci Afrique ndax réew bu yàlla defee ressources naturelles yu bëri feeñ mhm. muy pétrole rawatina gaz bi fi àddina bi toll ak suñu gaz bi réew yu ko soxla mhm. réew yooyu li ñu mën a ci wàllum transfert de technologie mhm. ci lu bëri bëri bëri nga am leadership boo xam ne ndaw ñi reconnaître nañ ci seen bopp ba mu jaral leen su wootee ne nañ dellu ci tool yi ñu dem su wootee ci nañ dem ci lu nekk ndaw yi dem ci volontariat boobu noonu ca ndaw ñi ëpp ci sa population li ci ëpp soixante di pour cent yi nekk ay jeunes réew yi développé yëpp loolu moo leen développé mooy am benn leader bu askan bi identifier seen bopp ñu jàpp ne ku jub ku tegu ci dëgg la fi mu jëme réew mooy fu baax dama jàpp ne Sénégal bu ñu saisir occasion bi réew mi mun na dem ba nekk ci réew yu ñuy joxe exemple en terme de développement comme ni ñuy tuddee tey Rwanda wala Angola wala feneen ak feneen. 2024 mhm. porté bi dafa bëri. dama koy faral di wax damay wax ni mooy élection bi gën a géopolitique ci suñu élection yi. Mhm. boo xoolee président de la république Macky Sall discours bu mujj bi. accord ak contrat yi fi nekk lenn rek la signé lenn mhm. rek la mentionné. mooy stratégie en matière d' énergie. Mhm. kon nga xam ni porté bi. Mhm. lu amaam solo la. Sénégal am na chance boo xam ni bu tànnee l'homme qu'il mu am les équipes qu'il faut. Mhm. les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. nekk nit ku bëgg réew mi. te complexe jiital intérêt réew mi ak bëgg réew mi. mën naa defar Sénégal ba Sénégal du ñëwee benn réew. Mhm. ndax réew yi développé yëpp ñaar la am rek ressource mhm. yu bëgg réew mi. Mhm. patriote dëgg. nekk ay patriote dëgg ak askan bu identifier seen bopp ci leader yooyu loolu bu amee rek réew mi baax. moo tax na Sénégalais yi bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy voté choix bi lan la du rek fal fool non non avenir u réew mi la fii ak des décennies des en fait Sénégal mën na fa baax ba faw Sénégal mun na fi jaaree na sax nag ba faw d'accord soit Sénégal dafay nekk benn Qatar baa mu nekk benn Nigéria mooy benn élite nekk au pouvoir di jël contrat wu exploitation ressources yi di ko wecceek ay centaines de millions yor ay kër yu kenn xamul yor ay appartement fu ne ci àddina bi New York Londres Paris lu ne barricade seen bopp ci ay pàcc-pàcc ci réew mi di dund train de vie boo xam ne même les européens wala les occidentaux seen dirigeants yi sax dañ koy ñee loolu moo am Nigéria te yéenoon ko moo am Sénégal tey Nigéria da ngay nekk Lagos nekk Babana Island di fa gis appartement deux millions de dollars nga tourné beneen côté Lagos bi amul courant amul courant courant mënu ko am te lenn waralu ko ludul benn élite bu fa nekk di séddoo alal ji di am ñi ñàkk di gën ñàkk loolu nag bu ci Sénégal bëggee mucc ba réew mi nekk réew moo xam ku ne dañ fii bëgg ñëw ndax dafay développé sénégalais bu nekk dañ ciy gis sa bopp comme Qatar ak feneen tànn nit ku bëgg réew mi la salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf maa ngi nuyu euh, Grand Mbaye Fall bu Oeil du Tigre du maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu ngi teewlu de borom Oeil eh, du Tigre kooku sama xarit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mbaye Fall moom non moom borom baax la borom baax la <laughs> Cheikh Ba yan kàddu moom ngay tëjee waaw li may tëjee daal mooy gis nga àdduna mhm. réew mu yàqu ñëpp xam nañ ko waaye lu yàquta ay nit yàquñu ko gisuma ko lépp loo gis mu yàqu rek ay nit dong nga ko yàq nit ñeet yëruñu nam nit ñi yëruñu ay yat di toj yëruñu jaasi di def dara dañoo sàggan rek mhm. lay yàqu-yàqu lépp loo gis mu defaruwaat ci àdduna itam ay nit a ko defar te it ci farlu lañ ko defaree. Mhm. kon nit ñoo xamante ne gis nañ réew mu yàqu ak sàggane sàggane alal ja sàggane mhm. suuf ja sàggane ndaw ñi mhm. sàggane même Sénégal dañ lay wax ne la projet bu nekk mi ngi fi waaye mi ngi ci mi ngi ci mi yi parce lépp sàggan la dañoo amoon état boo xam ne dafa sàggan ba lépp yàqu ñu jëm ci état boo xam ne dafay farlu te li yàqu ay nit a ko yàq kon liy defaru ay nit a koy defar te yàq daa am jamono ju mu yàqu lu ne tamit daa am jamono ju muy defaru mhm. man loolu laa gëm li ma gëm tamit mooy gis nga man am naa liberté bu wér parce que man yàlla dogal na ba fii ma toog di wax ak yow mosuma lekk ceebub Sonko mosuma mhm. naa xaqiiqa bu ma bu ma lu ma bëgg a wax ci moom am naa liberté bu wax mhm. li ma gëm laa wax mooy tey jii rek wax naa ko nit ci waa Pastef mën naa ko wax sax sa Sadikh Top lañ toogal ma ne ko ah. oui maa ñoo nekk doon. lenn daal laa xam ne moom bu ngeen bu ngeen fexee ba réussir ko. Mhm. maanaam développement Sénégal moom ni ma leeral ne lii biteel la. Mhm. noonu la ma leere parce que man xam naa Sonko xam naa Jomaay te xam naa nit ñi nii jamono jii ñu toll bëgg nañ réew mi mbëggeel goo xam ne luñ ci mënta profité def ko amul. Mhm. te ñii war a jiite réew mi moom xam naa ne moom ay patriote pire lañ. te yi daje. mun ta daje ba noppi échec di am parce que tey population bi bu Sonko naroon a jëm fu koy échec loo sax hmm. ñoom ñoo dul bëgg mu jëm fa ndax kon bu échecgee ñun ñëpp ay échegatoo hmm. li daje moo bari léegi nag lenn rek laa xam ne moom lay tiit nga xam ne bu ko réussiré moom maanaam nañ am nañ li ñu hmm. mooy mooy réew moom moom moom ku tëddal newal nelawal mooy bëggante gi ñu bëggante ñoom Pastef ak patriote yi ni ñu bëggantee ci seen biir nga xam ne dañoo bëggante daal téyante gis nga bëggante bëggante googu bu continuer ak ñu protéger mi Ousmane Sonko ba mu nekk fi continuer maanaam nga xam ne ay xalaatam ak ak ni mel nii du yàqu mu ne fi ñu protéger ko ko maanaam ba mu doon ki mu doon ni continuer dem réew mi amul lu koy teree dem man loolu laa gëm parce que première sëñ Mansour suñu jafe-jafe ci réew mi maanaam première première jafe-jafe xam nga mooy lan mooy état bi daa gumba état bu gumba mooy da ñëw ne dangay ngay régler problème askan wi te yow xamoo lu maanaam da ngaa gumba mënoo koo gis. pourtant président de après événement ah. mars yi. Ah. na ni je vous ai compris. xamu ko yàlla xam na ne xamu ko. xoolal nga déglu waaye xam réalité bi xam nga politiciens yi ñun ñun pour ñi politique xam lu ñu xam. électorat tey ji Amadou Ba boo ko laajoon ñaata ñoo la war a ñoo nekk ñoo ñoo inscrire ca Podor da la koy wax. dernière élection yi ñaata ngeen fa amoon da koy wax lu ci yokkaat da koy xam lu ci wàññi ko da koy xam mais pauvreté ba fa nekk wala ña fa ñàkkoon liggéey ci at mii wala ña fa am liggéey wala ñaata ñaata entreprise ñoo fa soso mhm. ak biñ sosoo lan moo nekk seenu mujj maanaam yooyu noonu état bi xam moo yow mi yéen a ci boo ko yam daara xamuñu ko ci da ciy def liggéey nag daara dara mbooloo xamuñu ko ci léegi nag état bu gumba boobu nag mooy tax tey nit mën naa nekk Sénégal di pauvre ba dee du ko yëg ba koy faj mais état gis ko sous l' impulsion du président son excellence le président Macky Sall mu teg fi euh, couverture maladie universelle. teg fi teg fi bourse de sécurité familiale loolu lépp c'est l'une la République Macky Sall def na loolu politique la wut ay carte d'identité pour ñu woteel la. Hmm. mais xeex ñàkk tax koo jóg. gis nga tey Macky Sall nga ko joxoon mille milliards ni ko séddaleel ma ko maanaam deux millions yi gën a pauvre ci Sénégal mën na koo joxaat ñi gën a am te du ko xam. parce que xamul ñi pauvre Sénégal mën ngaa dem man mën naa laa wan Sénégal gi ku am koo xam ne am na ñeenti jabar am ñeent fukki doom te état bi xamu ko am kër amub oto bu amee lenn lu état bi xam ci moom mooy mën naa mu jox ko passeport jox ko carte jeex na amatul lu ko booleeg état mi ngi takki jabar amul déclaration mi ngi ami doom dugguñu sax école. d'accord dégg nga. mu mhm. ngi jëndi oto ko jaay yoon maanaam nit ñi dañoo nekk ne état bi nekk ne looloo tax affaire bi doxut gis nga ñoom joomaay nii ngay gis ya ngi lay wax ni tey jii danañ fi toogaat bu ñu toogee li ñuy njëkk a xam gis naa ko mu ne day favoriser xaw ma lan ASN ASN ASD ASD mooy ñiy def xam recensement yi recensement yi wàllum ngaam domaine yëpp sax yëpp wàllum ngaam Sénégal loolu foofu rek la bën bën bi nekk gis nga bu fekkee respecté nañ recensement yi xam ko mm-hmm. di ci sukkandiku au mooyee au moyen laa la wax sénégalais bu nekk am na sax lu la état bi mën di jox. Mhm. loolu kay Abdou Diouf sax waxoon sénégalais yi ñu de wallahi bonuñu. Mhm. bu ñu amoon ab président bu góorgóorlu as tuut danañ la dimbali ba nga defee ne ba nga defee ne ñi ay jaam mais état bi daal doxalu dara. vendredi prochain incha allah. non dina am leeraange si lii di xew. léegi nag dinaa la wax benn affaire man nag maa may ma def benn. benn message pour sénégalais. sa caméra bi. message bi may def mooy. Mhm. li ñu jëm ay élection la. bu kenn benn bis dong la jëraluma paas jëraluma lii tabaski benn bis dong la te bis ba sax ñaari rakka dong la. te aw yàpp lañ fay lekk am na ci dibiteeri bi waaye teewul da nga koy xottil mbubb ñawlul ko. waaj ko jóge ci ay kilomètres demal ko parce que tabaski la tabaski googu nag na nga xam ne maanaam bis bi ko bis bii pour tabaski bu normal ak màggal gu normal ak gàmm gu normal ak koor gu normal ak kori normal ak mën a takk jabar ak yëpp dafa am benn bis boo xam ne mi ngi mel ni course da ngay téye benn per fekk mi ngi téye nga téeméeri per bis bii nu jëm dafa nekk bis boo xam ne dafa boot mille huit cent defe naa soixante-huit jours yoo xam ne maanaam bis boo juumee ci bis bii mille huit cent jours yooyu yëpp ñàkk nga ko dootu baax ndax da koy cee juum mi ngi mel ni julli rek maanaam bu am na am na loo yàq ci julli gi farata rek maanaam yàq nga julli yëpp jul bis bii nag maanaam loolu la boot mille cent nangam suur boot soixante mois dégg nga boot lu lu lu jege maanaam euh, ay semaine lu ëpp mille semaines hmm. dana ko jege wala boog trois deux cent soixante quinze semaine defe naa la woon la la boot nekk bis boo xam ne tamit maanaam dangay dem mu jaral la nga jóge dëkk ak dëkk def ko ngir xam ne bis bi maanaam mën nga cee profité jóge ci feebar faju xiif lekk mar naan bëgg suuf am ko bëgg liggéey am ko kenn dootu la jaay doole te dootoo gis ku ñuy jaay doole yooyu yëpp maanaam mën ngaa dem régler ko bul toog tamit daan ne man dong man sama wenn carte yu jëriñu ci dara amul benn sénégalais buy wate ñaari yoon kenn ku ne sa wenn carte nga yor bu ñëpp ne woon sama wenn carte jëriñu ci dara rek ay wat du am kon donc dafa am loo xam ne ñàkk koo fekke ngay wax mais ku la yàlla dimbali nga fekke ko te man te tal war nga rus maanaam ba ñu ne ba muy xew man participer wu ma ci te histoire nag day bind histoire day nettali rek ñii ñuy toog di leen nettali bañ leen di nettali jàpp ñu woon sax lañ doon def fii la jëm Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba Adji Sarr di jëkk cëb taxi am dem di pelente ji xamul woon ne lii histoire bi fii lay mujj histoire moom histoire la saa yoo xëyee nekkal ci li nga war a nekk dañoo nekk ci réew élection yi ñëw na dañuy tànn njiitum réew njiitum réew mooy ki nga xam ne mooy garantie dundug doomu aadama yi seen lépp seen lekk seen naan seen sécurité loolu nag bu ko waree tànn yow nga ne bokkoo ci te ñàkk te te dong la ci bañ boole maanaam yëraatal sa bopp ndax xam ne bu la réew mi bari lee rek maanaam réew moom deltu na gannaaw képp koo xam ne maanaam gëm nga ne bu mi waree développé wu dama ciy bokk lu mu jar dinaa ko def kooku bu la réew mi bari lee daal di jëm kanam kon maa ngi woo Sénégalais yépp ñu teel a dem wote te def kon ni ko citoyen war a defee tànn seen njiitum réew delluwaat seen kër toog te xam ne réew mii yàlla mën na koo dogal waaw ndax nit ñi bëgg nañ mu jag loolu kenn wéranteetu ko bu njëkk way dee yi moo fi ñëw senis bi génn baa mut noo di bëre senis bi génn bu njëkk ba sa Afrique gii ñi amoon idée yii Ousmane ko am maanaam na nii la ñuy defee réew nii la ñuy rëcc ci eh, tubaab bi nii la ñuy defee nangam ñun ñëpp koo ci seet ma ngi ca kaso ba baa ma te booy dem ci kaso ba sa waa dëkk dañ la koy yéene sax euh, nu mu tuddati sax Michael Michael Luther King dafa waxoon ne li jeexal sama xeex mooy ñi may xeexal maanaam ñi may ñi tax may xeex dañoo wàññi ko di ma xeex boo tax sama xeex yeex Ousmane nag lu néew néew tey gis nga lu mat mille jeunes taxaw ne duñ nelaw guddi parce que dafa am ku ñuy xaar lu mu leen di doyee ñu ne nee na day defar réew mi comme am nañ jeunesse boobu nag jàpp naa ne am nañ sens mille sens pour defar nag réew mi ci guddi yi ñu toll. d'accord te nag yàlla kat bu indee ak gone nga war a namp ci weenu jàmbur muy sa weenu yaay day ci bëñ yi ndax yàlla du tooñ jox la jox ab liir bëñ ñu ne weng ba noppi na la nampal bu ko màttee day tooñ meer moo tax day téye bëñ yi ba gone gi toll ci fer mu jox koy bañam ne ko del yéey te bàyyi weenu jàmbur bi ngay nàmp mm-hmm. dégg nga mm-hmm. booy xool jamono bu nekk bu waree taw day taw bu tawee ba noppi war a tàng day indi tàng war wu tàng mu ñoral gerte gi su paree ngelaw li ñëw pour nga mën a jëri bu paree mu seral naaj wi pour nga mën a dem lal ci def ci gerte gi dem ja lépp noonu la amul yàlla lenn loo xam ne dana mat ci àdduna mu manqué yàlla nag may nañu gaz may ñu pétrole may ñu sonk ci même temps may nag senis bu buy déglu ab politicien ba mu jaral mais ñu président Macky Sall mu defar réew mi ba nga xam te ni keneen ku na lay jógee mhm. waaw mooy da nga <laughs> maa dëgg yàlla mbégte la woon woo ah. loolu sax wax dëgg yàlla dara la maa ngi woowaat daal doomu Sénégal <laughs> jeex na sax waaye nag waaw moo tax li nga def sax waaw waaye daal maa ngi leen di woo ngeen jóg waaw dem voté ji wote pour ñu defar Sénégal bala maa Babacar Diagne waaw jërëjëf Cheikh Bara sant na la bu baax a baax. waaw gërëm la wax dëgg yàlla sant euh, sëñ Mansour Cissé Babacar Kébé Cheikh Ousmane théâtre yi nga xam te ni ñoom ñooñu tey jii ñu def ci émission ak mbégte koor tamit fi ñu koy defee sant gërëm bu baax a baax al afifa bi nga xam ni aussi moom moo ñu accompagné si mbégte koor di sant ak gërëm bu baax a baax CO tam bi nga xam te ni moom moo ñu accompagné sant ak gërëm bu baax a baax Oumar Diaw ak Prince de Galles noo nekkoon ci cadre social bi at liggéey bu am solo bi nga xam te ni ñu ngi koy def sant bu baax. gërëm maa ngi nuyu nag Cheikh Sidi Mouhamed Diakhaté. Mm-hmm. mi ngi ca États-Unis. Mm-hmm. mi ngi seetaan. waaw bëri nañ fa de bëri nañ fa bëri nañ fa ñoom fu mu toll nii moom àdduna bi yëpp ngi doon seeraan. waax xadi les quatre point a ah, nga wax liil. non xadi li xadi jatu bu la naree nag fi la ñuy fanaan parce que fépp lañ nekk euh, sëñ Saliou maa nuyu bu baax a baax wa leen ci programme incha allah ah. présidentiel bi dara du leen si ump incha allah si biir réew mi ak bitim réew ba si Canada sunu ndaw euh, Jamilatu Jaxate mi ngi foofu kon dara du leen si ump incha allah la journée euh, du dimanche la longue journée du dimanche incha allah en live sur Seneweb TV seneweb.com Seneweb rajo wéy leen suñu programme jaa ngeen jëf